ñu seetaan TFM waaw bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu siwaat nañu ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot euh, tey nag di euh, QG bu samedi soir ce qui veut dire ñun ak yéen ba euh, fajar mën na nekk puisque demain dimanche liggéey daanaka amul donc mën ngeen àndandoo ak ñun en direct et en simultané ci King FM 99.4 ngeen di seetaan ba noppi itam am possibilité déglu jotaay bi la nga xam ne ni mooy premier talk show fii ci Sénégal et comme d'habitude d'habitude dañuy tàmbali ak euh, ibi euh, téléphone yi parce que xam ngeen ni euh, li des pour ñu jeexal koor gi daanaka bëreetul donc c'est le moment ou jamais ngeen profité moo xam ci enveloppe yi ñu leen bëgg a jox ay xamante ne benn bu ci nekk def na cinquante mille lépp a ngi nii tege alors ci écran bi nekk fii ku dugg dinga am possibilité soit nga jot ñu en direct ñu jël la bu la jëlul itam en direct kii toog nii moom mooy jël di leen jox merci beaucoup Eva donc regardez enveloppe yaa ngi te yiñ fi yore bëri na dañ ciy teg itam ay pièces yoo ngeen ko mën a xottilu euh, ci korité euh, bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal am nañ fi itam euh, billet Makka dinañu ko tiré bu ko defee ñu tànn kan moo nar a nekk ujaaj bu quartier général comme ni ñu koy defee chaque année depuis que ñu tàmbali aventure bu QG premier talk show fii ci Sénégal dañuy tàmbali ak première partie bi muy téléservice bi njëkkee ko ak tableau yi nga xam ne ni ci la ñuy sukkandiku pour jox leen xibaaru jaww ji par exemple suba dimanche lan mooy prévision Euh, service national météo alors dañuy njëkkee ak tableau euh, bi nga xamee ni ci la ñuy xool euh, température yu suba alors dëkk bu ne ak li mu nar a yeewoo dakaar ak Saint-Louis évidemment ñoom ñoo nekk ci littoral bi donc ñoom jege nañu géej gi moo tax ñuy yeew ak température yu gën a minime 21 degré donc Saint-Louis 21 degré lay yeewoo suba ci dimanche bi dakaar itam waxi pour 21 degré mën na yéeg nag ba diggante 23 jàpp 24 ba 25 degré di fi nga xamante ni moo di Kolda Linguère ak Euh, Podor euh, Diourbel dina yeewu suba ak 23 degré Kolda 24 euh, degré Ziguinchor 23 Matam 32 Tambacounda 32 Kédougou 28 Kolda dina yeewu suba ak température yu nar a toll ci 25 degré bu ñu demee nag ba ci après midi bi thermomètre bi mën naa yéeg ba 46 jàpp 47 degré boori Matam ak fi nga xam ne ni moo di Tambacounda Linguère dina yendoog température yu nar a toll ci 46 degré Diourbel 43 Kaolack 34 Kolda 41 Ziguinchor 38 euh, Podor 42 euh, euh, Saint-Louis 33 Dakar dina yendoo suba ak 26 donc lii mooy température yi maximum yi ginnaaw minimum yi ñu leen njëkk a jox nga xam ni mooy yi ñuy xëyee suba ci dimanche bi bu weesoo température yi waxtu maare yaa ngi nii diggante marée haute ak marée basse alors waxtu marée haute yi bu njëkk bi ci suba gi lay doon bu 8 heures 17 jotee. marée haute bi ci topp dañu ko am exactement ci guddi gi bu 20 h jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi euh, tey ci guddi gi la bu 1h57 du matin jotee euh, marée basse bi ci topp dañu ko am exactement bu 14h21 jotee bu ñu descendee ba tey ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu nga xam ni moo nar a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu njëkk yi tey ci guddi gi lay doon diggante minuit euh, jàpp 2h15 du matin footballkat yi consigne bi bu leen ko fàttee euh, bu leen fàtte mukk seen ay gilet euh, de sauvetage ndaxte xoddee ko balaa ngaa lakkale et puis jant bi euh, moom la ñu tuddee le roi soleil dina xëy suba 6h39 du matin nara tëddi guddi gi exactement bu 19h36 jotee ngërëm ñeel Bamar Diagne ci jàppandalam ak service national météo ñoom guddi gi ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji ñu leen koy baaxee ci première partie quartier général beneen tableau ngi ngeen mën actuellement fii la toll bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique un dollar ñoo ngi koy weccee 586 virgule 972 francs CFA un euro ñoo ngi koy weccee 655 virgule 957 euh, francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne euh, dëkku euh, Dabassar yaayu seex yi suma yaay jooju nekk London donc dëkkam bu dee da ngeen bëgg a wecci xaalis boobu ak CFA mu ngi toll ci 741 virgule 56 francs CFA un euh, yuan chinois di xaalisu Chine euh, ñoo ngi koy weccee 85 virgule 0459 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60 euh, virgule 5 172 francs CFA à propos du Maroc euh, ci subaak léegi ñu ngi fay gis benn nataal boo xamee ni ab sénégalais la euh, bu ay naar fel mu faatu boobu nag ba tey ñu ngi wër pour xam ndax corps bi sénégalais la ou finalement xam nañu kan la d'ailleurs naa leen woon léegi nii photom am na ñu ko gis ñu bëri nekk foofu ci ay mbokkam ak ay xaritam fi mu ne li ñu bëgg rek ñu dimbalee leen ko mooy ñu jàppale leen ba ñu mën a rapatrier corps bi donc euh, avant may jóge fii naa leen woon photom bu ko defee ngeen mën euh, bu dee mën ngeen ci jàpp euh, ngeen jàppale leen ñu mën a jot seen néew doom jooju nga xamee ni ci accident il paraît la faatu faatu bu metti donc ñu ngi doog a découvrir identifier kan la ndekete sénégalais la donc ay mbokkam ak ñi mu nekkal foofu ca Casablanca yónnee nañ ñu photom on va vous montrer ça dans quelques minutes donc Maroc boobu comme dafa bëri ay sénégalais am na itam di dem bu ak dirham mu ngi toll ci 60 virgule cinq mille euh, cent soixante douze francs CFA euh, dalasi mooy xaalisu Gambie wan dalasi ñoo ngi koy weccee onze virgule sept mille neuf cent trente trois euh, francs CFA ki fi représente Gambie xam ngeen ni Awa Gaye la tudd alors Awa sera avec nous tey comme ni bu koy defee chaque samedi dina dem seeti ñoo xamee ni Sénégal la ñu nekk mais Guinée la ñu fekk baax puisque brassage bi nga xamee ni moo am ci diggante dëkk yu mel ni Mauritanie Gambie ak Guinée dafa yaatu ak Sénégal moo tax chaque samedi. dañuy dem ndogu ak soit benn euh, famille gambien bu fi nekk wala benn famille mauritanienne bu fi nekk tey nag dinañu dem ndogu ak benn famille euh, euh, guinéenne boo xamante ni ñu ngi fii donc awa moo demoon seeti leen donc loolu mooy dewis bi actuellement foofee la toll li ci des ci tableau yi mooy waxtu julli yi pour suba lii nag heure de base la mën ngeentee cee sukkandiku puisque différence yi solo gox bi dafay uute ci ay minutes donc fajar gi julleem suba dina toll ci 5 heures 21 du matin tisbaar 15h08 euh, takkusaan julleem suba ci 16h31 la toll euh, timis dinañu ko julli 19h41 euh, Kanta Gueye ko julli suba 20h51 li ci des nag mooy naafila bis bi daañu ci ak ki nga ni mooy oustaz Assane on va le retrouver dans quelques instants ci plateau bi le temps qu'il se prépare alors lii nag ay événement la yoo xamante ni comme koor gaa ngi jeex dañuy waaj a delluwaat ci fi àddina donc lii mënta ñàkk Momo Dieng suñu rakk la suñu la et puis naa ko fi keroog avenir musique sénégalaise mu ngi ci ay loxoom am na talent mën na woy moo doon ndaanaan yu mel ni baayam alaaj Ndiouga Dieng donc koor gaa ngi bëgg a jeex ma bëgg ngeen noter événement bi nga xamante ni moo ngi koy préparé ci seen i agenda donc Momo Dieng mu ngi jëm 6S euh, le 6 juillet ren demul grand théâtre mais mu ngi jëm 6S daf ko fas yéene yaatal ce sera une fête nationale ak ki xam ni mooy Momo Dieng donc bëgg nañu ngeen euh, bàyyi ci xel euh, déjà y a des numéros de téléphone réservation 77 182 20 82 donc Momo euh, ñu ngi koy ñaanal euh, ndam ci événement bu mag bi nga xamante ni bëgg naa ngeen bàyyi ci xel ñu nar ko amal le 6 juillet euh, ci fi nga xamee ni mooy CICES donc Momo qui viendra nous voir xam naa ni fii leeg Korité ci télévision Futur Média bi itam lu ma bëgg ngeen wàcc la déjà Titi dafa génne ñaari way def ko ci ñaari version benn bi mbalax benn bi acoustique mu jagleel ko sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla nijaayu Maam Jaara ak Ndey doom ji doon bàyyam diggante Ndindi ak Dakar Titi def na ci lu ne euh, donc loolu nga xamee ni euh, moom la togg euh, muy ñaari way daf koy dugal ci album album bi dina génn incha allah le 3 juin donc le 3 juin maanaam lundi ci la Titi di génne album bi nga xamee ni ay namante la lu ko lu ko tuddee lu ko mooy suba ci dimanche bi ñu ngi invité presse bi yëpp ci ndogu presse bi nga xamee ni moom lay amal à partir de 19 heures donc loolu di programme bu am solo boo xamee ni suba donc ndogu ak euh, journalistes yi pour présenter leen album bi nga xamee ni bëgg na koo génnee incha allah le 3 juin ñun nag woy wi nga xam ne ni euh, moo ñu jaral euh, rey suñu bopp ndax kii mu ko woy mooy li mu jagleel euh, doomi Serigne Fallou bi di sañ Abdou Karim Mbacké ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér donc Titi daf ko njukkal ci album bi mu nar a génnee le 3 juin et puis le 16 août Titi dafay tëgg Grand Théâtre donc ñu ngi nuyu waa Mifa Titi ñoom Boubacar Diamé nekk France Boubacar Champs-Élysées ku wax ci Titi mu kontaan moom ak Fatim Niang suma umpaañ donc Titi préparé leen sorti albumam ce sera donc pour le 3 juin et puis balaa le juin suba dafay ndogu ak journaliste yi pour wax leen euh, plan yi nga xam ne teg na ko en attendant albumam boobu euh, di génn moom Titi. jaa ngi euh, dégg naa ñu naan sàcc bi da koy bañ boo demee France wax naa ko démb am nañu Gad Elmaleh am nañu ay humoristes yu mag yoo xamante ni ñu ngi ci cinéma bi ñu ngi def ay stand up alors stand up nag ni mu defee ascension ci addina dafa exceptionnel ba nga xam ne ñun fii Sénégal am nañu wallu wàllu humour bokk na ci Abba No Stress animateur humoriste Abba Show déjà mu ngi def feu et ci télévision Futur Média ñun nag ñu ngi jëm ci lii événement télévision Futur Média la nar doon muy Dakar MDR euh, d'habitude buñ dee dem Grand Théâtre dañ fay fekki Wally Seck fekk fa Pape Diouf fekk fa ñoom yuusu Ndour waykat yi waaye ñoom euh, léegi xewal nañu bu ñu tëggee Grand Théâtre ñëpp ay ñëw guddi gi nag dañoo nar a boole euh, képp koo xamante ni humoriste nga fii ci Sénégal am na ay invité surprise est-ce que Gad Elmaleh mooy ñëw est-ce que euh, euh, Jamel Debbouze mooy ñëw on ne sait pas tout cas am na mystère préparé leen ko euh, muy Dakar MDR ce sera pour le vendredi 5 juillet 2019 je vous donne deux numéros de téléphone yoo xamante ni bu ngeen ci wootee dès à présent di ngeen am place puisque guichet fermé ak ñu nar a def fi nga xamante ni mooy Grand Théâtre le 5 juillet donc woote leen ci 77 655 51 80 wala 78 162 88 13 donc événement la bu ñëpp di préparer 5000 euh, ak 10 000 mooy entrée bi donc Abba Show di ko présenter un très grand événement que tout le pour le euh, vendredi 5 juillet au Grand Théâtre National Kouthia tamit mu ngi jëm euh, New York à euh, ci dëkk bu mag boobule pour amal fa Kouthia Show euh, donc événement bi ñu ngi koy préparer ñu ngi leen ci woo donc le 6 juin maanaam 6 juin bi ginnaawaati suba c'est là on est déjà le 1er juin donc le 6 Kouthia mu gi New York di amal li nga xamante ni mooy Kouthia Show même dégg naa président aux États-Unis baa ngi préparer arrivée Kouthia biir New York donc ce sera aussi un événement télévision Futur Média quant tous pour un rendez-vous demain ak famille yi nga xamante ni ñoom la ñuy jàppale bu ngeen ci bëggee information dem leen ci sama ay page euh, Facebook Twitter Instagram ak chaîne YouTube bi di Pape Cheikh Diallo univers où vous aurez la possibilité de découvrir sama univers yëpp bokk na ci euh, tous pour un bi nga xam ni euh, bu ngeen ci bëggee jàpp mën ngeen fa dugg bu ngeen ñu bëggee yónnee ay photo ak ay vidéo kër yi ngeen bëgg ñu defaraat ko allez sur nos comptes yi nga xamante ni am nañ ko ci réseaux sociaux yi kii nag Ndiogu Afia la moom mu spécial déwénal la ko tuddee euh, Ndiogu Afia ak groupe euh, euh, Ngëneel donc moom dina ko tëgg fi nga xamante ni mooy théâtre national Daniel Sorano jouru Korité donc Korité bu leen neexee ngeen dem feetu ci ay cant àndandoo ak ki nga xam ni mooy Ndiogu Afia donc ce sera ci jouru Korité lii nag ay avis la mënul ñàkk euh, bëggoon naa ko leb sax wàcc ba toog mais bon euh, bàyyi ma woon leen ko rek très rapidement parce que loolu itam lu leen mën a jëriñ la euh, Abdou Faye la tudd mu ngi dëkk Thiès alors moom dafa réeral portefeuille am entre Mariste rond-point Zac Mbao ak Bargny comportant tous ces pièces importantes la personne bi ko nar a for for ñu ngi ñaan mu woote ci 77 368 67 71 77 368 67 71 14 euh, moom nag këyitam yëpp daanaka dafa réer euh, euh, mu ngi nekkoon diggante Mariste ak fi nga xam ne ni mooy rond-point Zac Mbao lii itam bëggoon nañu ko jàllale rek ci téléservice bi am nañu itam ay xale yu réer ñu ngi ñaan bu ngeen xàmmee kii ngeen woo ay mbokkam wala ngeen indi lu ñu ko fii ci buntu télévision Futur Média parce que moom bi mu réeree ak léegi mu ngi bëgg a yàgg mu ngi tudd Abdoulahat Massaly huit ans donc la am mu ngi réeree Touba depuis vendredi bële mu ngi bëgg a donc ñu ngi ñaan ku ko gis nga indil ñu ko fii euh, ci euh, buntu télévision Futur Média Almadi wala ngeen woote ci 77 792 81 87 77 792 81 87 donc kii xale bu réer la ngeen xool ko bu baax euh, Amza boo ñu ko mënee woon bu baax ñu ñaan rek ku ko gis mu yóbbul ko ay mbokkam mën ngeen ñu ko indil sax ñun fii ci télévision Futur Média ça nous ñu jébbal ko ay mbokkam kooku xale bu réer la kii tamit ku réer la encore mu ngi tudd Ngor Ñing Sall Faye donc xool leen ko bu dee xàmmee ngeen ko euh, ngeen dimbali ñu rek lu ñu ko fii euh, ci buntu télévision Futur Média comme ça euh, ay waajuram mën koo gis moom itam bi mu réeree ak léegi mu ngi bëgg yàgg qu'est-ce que j'ai encore ah ku encore finalement ñu réer mu ngi bëgg a bëri et bu yàggee ñëpp jaaxle donc moom it ñu ngi leen di ñaan bu dee xàmmee ngeen ko mu ngi tuddu Djibi Thomas alors Seymidié j'espère que j'ai bien prononcé santam il est âgé de quinze ans euh, doomu Oumou Ndiaye perdu depuis le 16 février dernier euh, mu ngi dëkk HLM Rufisque en face terrain Ndefane euh, donc février ak léegi mu ngi bëgg a yàgg donc ñu ngi ñaan ku ko gis soit mu woote ci 77 423 27 32 wala 77 433 04 40 donc moom Amza wan ñu ko bu baax bu ko defee ku ko gis rek mu mën ko indi fii ci télévision Futur Média wala woote ci numéro téléphone yi nga xamante ni Euh, moom lañ leen euh, moom lañ leen bindal ci suufu euh, suufu affiche bi donc voilà c'est c'est un c'est un jeune boo xamante ni dafa réer kii lañ leen doon wan sànq mooy sénégalais boo xamante ni mu ngi defee accident Maroc accident bu metti bi mu defee accident bi il paraît que ñi ko fiir dañoo daw bi ñu dawee nag ñu yóbbu ko hôpital xamuñu ndax sénégalais la ou beneen nationalité la c'est après qu'on s'est rendu compte enfin ñu jox information bi après la ñu xam ni moom ndekete sénégalais la Euh, euh, lii mooy photom normal donc bi ñuy wër euh, pour xam kan la nii la nekkee woon hôpital faf malheureusement mu mujj faatu ay mbokkam nag ak ña mu nekkal ca Casablanca fi mu tollu tembe dañoo am jafe-jafe pour rapatrier corps bi donc ñu ngi ñaan képp koo xamante ni mën nga cee jàpp nga jàpp ci bu dee am ngeen contact yu consula bu Sénégal nekk ca Casablanca ngeen woo leen directement mën ngeen ñoo contacter aussi fii ci télévision Futur Média comme ça ñun ñu xamante ni euh, yor nañu ko wala numéro de téléphone euh, euh, bu tantam il paraît wala ay xaritam wala ay mbokkam yi nga xam ne ni ñoom la nekkal foofu ca Casablanca donc xool leen ko bu baax ñu ngi koy jaal ay mbokkam di leen massawu dara gënul metti nga am doom mu juddu dem àll faatoo fa loolu moom dafa miti donc ñu ngi ñaan ku ci mën a jàpp rek actuellement ñoom dañoo am problème pour rapatrier corps bi ngeen jàpp ci rek yéen bonne volonté yi gis nañu yu baax yi ngeen di def ci dëkk bi donc n'hésitez pas ngeen jàppale leen leen ñu ngi ciy woo itam autorité yi ak ñi nga xamee ni ñoo yore euh, lépp lu jëm ci wàllu diplomatie diggante Sénégal ak Maroc donc moom daa mujj faatu actuellement ñu ngi wër euh, lu ñu leen jàppale pour que ñu mën a rapatrier euh, corps bi voilà donc je pense que fii laay jaaree jeexal euh, première partie bi euh, ñu jàll ci li nga xam ni moo jëm ci naafila yi mais balaa ñu koy def fàttaliwaat leen ni mën ngeen woote ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 je de téléphone ou les numéros de téléphone euh, donc 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 99 90 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 biya màkk ak ay suukaru koor yoo xamante ni 50 soirée c'est ce que nous vous offrons fii ba ba ñuy jeexal quartier général bi premier talk show fii ci euh, Sénégal euh, dañuy tàmbali nag euh, cant yi bu fekkee Cheikh son yi bu pare na ñu bàyyi ko mu ubbi ko en attendant ñuy àndandoo ak yéen ci jotaay bi la nga xamee ni moo leen di gunge guddi gi yëpp tous derrière Sadio Mané moom lañ leen proposé woon keroog tey on sera très foot Henri Camara sera avec nous euh, euh, mbay Diagne sera avec nu euh, Papis Demba Cissé sera avec nous surprise bi nag tee ma ko wax rek Pape Alioune Ndiaye Badou sera avec nous et puis Henri Camara mi nga xamante ni beneen génération la bokk moo nar a àndandoo ak ay rakam tey ci quartier général bi et puis en première partie daañu jam ñaajo c'est vrai que jam Diamniadio foo xamee ni la zone bu bu bu bu bu saf ci ñu sénégalais yi ki nga xamee ni moom la ñu Euh, côté boobule euh, di euh, galo di suñu mag di suñu xarit et di xale boo xamante ni jàmbaar la mën li muy def ci liggéeyuk jam ñaajo moom mooy nekk ak ñun ci première partie quartier général bi donc son bu bu fekkee noppi na yow lañuy bàyyi nga ibbi jotaay bi tey bu ko defee ñu tàmbaleekook ay cant laataa ñuy toog bay jaatal tey quartier général bi je rappelle encore premier talk show fii ci Sénégal. wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima jal salamatan tadumu ya salam walilki ya lafi dari salam jal salam أن تدوم يا سلام يا ولي العيال في دار سلام اجعل سلامة تدوم يا سلام سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولي كان في دار سلام دار سلام جل سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولي يا ولي دار سلام جل سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولي يا في دار سلام دار سلام سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولنك يا أهل في دار سلام دار سلام جار سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولنك يا سلامة تدوم يا سلام يا سلام يا ولنك يا أهل في دار سلام sara waa macha allah euh, son yi bu mbaay euh, tey moo ñuy euh, gunge ci guddi gi fii ba ci kanam ñu am mbégte lool fas yéene dem ak yéen ba xëdd en direct ci télévision Futur Média et en simultané ci King FM ñu ngi tolloon ci li nga xam ne ni moo jëm ci téléservice bi jox leen waxtu julli météo beeg taux de change bi li ciy topp nag mooy naafila yi dañ ci àndandoo ko Oustaz Assane ñu ngi lay ziar bu baax Assane tey fu naafila yi toll wala naafila bi toll. delloo ziar Baye Cheikh la jox sa wàccuwaay di ziar mbokku téléspectateur yi ñuy topp téléspectateur yi ñuy topp ngodd guñot ci quartier général naafila bi wala naafila yi ñaar yëpp baax na ñu ngi si guddeel ak ñaar fukkal ak juróom-ñaar muy laa nuyu di vingt-septième si weeru koor bi nga xamante ne moom la ñu nekk nga xam ne tey am na ñoo xam ne si la ñuy màggal li nga xam ne moom moo di laylatul qadri mhm. yal na ko yàlla nangu ak yi weesu yëpp si barke weeru koor bi nga xam ne tey dañu ne naafila bi ku ko mën nga def fukki rakk ak ñaar muy douze rakk boo defee ñaar sëlmal def ñaar sëlmal def ñaar sëlmal ba mu mat fukk ak ñaar rakk bu nekk da ngay jàngal li nga xamante moom moo di fatiha bismillahi rahmaani rahim ba mu jeex wala dallin amin boo paree nga teg si li nga xam ne moom moo di suratul qadri fukki yoon muy inna anzalnahu fi laylatil qadri ba salaamun hiya hatta matla'il fajri nee nañ képp koo xamante ni euh, taxawe bi borom bi subhanahu wa taala la bindal ay yiw yoo xamante ni kenn du xam app bi nu muy toll maanaam daf koy ful ba lu ko soob borom bi subhanahu wa taala dana la li nga xam ne moom moo di leeraayu weer bi waaye itam di nga nekk si li nga xam ne moom moo di kaaraangay borom bi subhanahu wa taala kon naafila tey bi mu ngi noonu fukki rakk la ak ñaar ñaar sëlmal ñaar sëlmal rakk bu nekk fatiha ak inna anzalnahu fi laylatil qadri baay cheikh ku mën lu ko ëpp nga def ko ku ko mënul nga def li nga xamante ni moom nga mën ndax laa yukallifullahu nafsan illa wusaha yàlla nee na du ma teg benn bakkan loo xamante ni mënu ko rawatina guddi gi nga xamante ni tey am na ñuy màggal laylatul qadri ku si def naafila bi rek yàlla na ko yàlla nangu baay cheikh may ñu ñu fekkee ko at yu baree baree baree baree ndax tey la yàlla di dogal li di xew déwén yépp incha allahu taala yal nañu si yàlla defal barke ak xéwal ak sutura Baye Cheikh. ñu ngi toll ci période boo xamante ni murum koor la ñuy waxtaanee ay sotu pay Fall ñu ngi lay nuyu d'ailleurs def nga ci ab euh, reportage euh, di loo xamee ni euh, Oustaz Assane dina ci indi ay leeral ci naka la ñu koy nattee et tout ça mais gëstu bi yow la koy tàmbaleel muy li nga xam ne ni moo jëm ci murum koor. waaw Baye Cheikh maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew di nuyu ñu ñuy seetaan comme ni nga ko waxee tey euh, ci wàllu woowu la ñuy waxtaan euh, ñu doxantu woon nag dem seeti oustaan oustaz Alioune Sall mu xaw ñu ko ficcil tuuti comme ça ñu gën a xam euh, loolu lépp lan lay wundu Baye Cheikh. ak suñu bokk waa IGFM. muddum koor. muddum koor xanaa ñuy jox muurum koor mais muddum koor. mooy lu ñuy joxe boo xamee ne koor gaa ngi jeex képp ko jullit sas nañ la nga joxe deux kilos ca la nga doon lekk bu dee ceeb bu dee dugub bu dee mboq walla nga joxe lu tol noonu fekkee kilo ceeb deux cent lay jar ñaari kilo huit cent la loolu mooy muddum koor ki ñu wax sallallahu alayhi nag moo ko moo ko farataaloon ci képp kuy woor gisoon ne dafa ñëw Madina am at ci déwén sa mu gis ne bi ñu wooree bay wori am nañu mënul korite gi ndax lott ca wala néew ca doole mu ne kon ñoom ñëpp nañ leen teg loxo jàppale leen ñu laaj def nag kenn ku ne ñu laaj la jaari kilo ca la ngay lekk ñuy pepp ñu mboq am na sax ñu dama joxe tàndarma mbo ça dépend ci la ko lekk ci weeru koor bi ñu ko dajale nag mu nekk jal bu rëy mu ñëw séddale ko fàqir rek miskin loolu moo ko indi ci penc bi kon loolu mooy muddum koor hmm. du force ngay ñëw di ko jël si ndax ki koy joxe dafa am ñuñ ko jox ne ko deg ko jox faqir lañ koy jox wala miskin faqir mooy koo xam ne kii lim am doyu ko te munte yalwaar kooku mooy faqir miskin moo xam a xam ne ki lim am doyu ko mais mu rusute yalwaar fu kon faqir lañ da ko jox ba mu doyal door a jox miskin amaa nag nit ki yow di ko jël si moom bokk ci woon ci bokk daal mooy yaa koy génne faqir bi ci gën a yey su fekkoon man tey ji la dama naan kii di yalwaan ci buntu kër gi su ma génne kër gi rek moom laa koy su fekkee nekku fi su ma kër gi kër ci bopp ko ba laa koy jox su ma génne sama asaka ma dem koor yi mel ni par exemple mu mat cinquante mille wala quarante cinq mille ma évalué ko ma xam ne am na njëriñ su ma génne ci kër gi xool sama góos gis soxna si toog fii ma jox ko ko nekku fi ma xool droite seen koy toj ci ma jox ko jàmm na ñooy waaye nag nit jóge ca cël ma xam mbàkkol ñëw naan moom la jël si yor ay siwam loolu moom du diine sunna su dëgër la soo xam ne tuuti kon mu doon farata mu tàmbalee ci ki ñépp a ko war a joxe bu ko benn fan mbaa mu des ñaari fan ko ko génne jox ko faqir waa miskin mënoo ko nga jox ko sa ilimaan wala si nga xam ne jàpp nga ne ci diina doy na la ci nga dem yëkkati ko jox ko moom mu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo donc loolu boo ko doon seet tey soxna si fii Sénégal bu fekkee mat nañu quatorze millions jullit wala treize millions jàppal ku ci nekk génn huit cent franc huit cent franc fois treize millions ça coûte ay dix milliards ay dix milliards lay bat su boobaa loolu su génnoon ci dem fa mar dem ba moytul asaka mu dum ko réglé fi loo xam ne lii bokkut ak li muy réglé léegi li gën daal na koor gi des benn fan wala des ñaari fan waaye ñu um rek a génne ko bëggewuñ ko noonu mu ngoog ngërëm ñeel euh, internet bi di igfm point sn ay surtout pay fall nga gis fa loolu euh, di lu am solo loo xam ne ni yéen a ngi ko seexoon ak euh, oustaz Alioune Sall muy muurum koor wala muddum koor ci ni mu waxee prononciation bi. waaw xam nga nag ñun dañu tàmm wax Euh, bi nga njëkk wax murum mm-hmm. koor mm-hmm. mais muddum koor la ñuy wax mm-hmm. euh, arab bi di wax zakat al fitre ñun ñu ne muddum koor mu nekk loo xamante ne mën nañu wax day mel ne impôt la daal boo bëggoon tey sa koor mu jàll ci ni mu ko expliqué faw bu fin koor gi jotee nga génne Euh, muddum koor boobu nga xamante ne par bopp bu dee tey da nga nekk Baye Cheikh am ñetti bant macha allah euh, ku nekk di nga ko génneel euh, ñaari kilo ceeb. Mm-hmm. wala ñaari kilo dugub wala nga génne ko en nature muy maanaam kilo ceeb bi lu muy jar bu dee 300 la nga def 300 fois 2 mm-hmm. nga génne ko. pour rek ñu ne koor gi egg parce que ñu ni mu ko expliqué boo ko defulee euh, koor gi nga koor ci weer bi yëpp euh, du jàll mhm. donc mu nekk loo xamante ne war na bépp jullit nee na sax même tey jii euh, bu doon liir dafa juddu tey wala démb war nañ ko génneel. Mhm. mu nekk euh, liir bu tooy day bokk ci ñi nga xamante ne dañ koy génneel euh, murum koor mu nekk euh, comme lu mu ko waxee sunna la waaye sunna su dëgër gu dem ba nekk farata. Mhm. mooy ne kon képp kuy julit rek muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen war nga génne murum koor googu la bay. macha allah oustaz donc loolu sunna la mais bu bu bu baax lool. waa xam nga sunna la mais sunna sunna boo xamante ni bu ñu feddali la. Mhm. ndax boo demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Dawud ibnu Abbas radiyallahu anhu anhum si moom lañ ko jëlee mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri tuhratan lis saim min al lahwi war rafath wa tu'matan lil masakin mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa farataal maanaam dafa obligé si ñun ñuy génne li nga xamante moom moo ni mu dum koor lu tax ñu koy génnee kii nga xamante ni dafa wooroon li tax muy génn mu dum koor yi mu war a xool yi mu warul xool si bëccëgu weeru koor mu xool ko wala lu mu warul woon wax mu wax ko wala fu mu warul woon dem mu def ko mu dem fa wala lu mu warul woon déglu wala du mu noonu laal mu laal ko rëcc rëcc yooyu si bu def bëccëgu weeru koor mu dum koor mu dum koor bi moom moo koy faxas moo koy yóbbaale donc bàkkaar yi nga xamante moom moo di déchets yi nga xam ne moom la ñuy def si bëccëgu weeru koor moo tax ñu koy génnee ngir yàlla subhanahu wa taala mën a xool si sarax boobu jéggal ñu rëcc rëcc yooyu mën a nangu suñu koor beneen bi mis masaakin ak fuqaraa yi nga xam ne ñoom la jëm si ñoom ndax bésu korité bi ñuy dëgmal bés la boo xam ne bésu feet la si jullit ñi la kenn warul xiif kenn warul war kenn warul mar kenn warul rafle moo tax ñu fexe war a fexe ku nekk bés boobu nga lekk ba suur li gën nag mooy ñu génn que deux wala trois jours avant tey la samedi gannaaw suba la dimanche mercredi incha allah yàlla mën a dogal ñu wari kon dès lundi nit ñi war nañu mën a génn li nga xam ne moom moo di si mu dum koor buñ ko defee espèce à partir de lundi mën nañ ko def suba peut-être waaw demain à partir de lundi au plus tard mën nañ ko génne léegi nag bu ñu ko génnee nag nañ ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yayoo mudd boo ko déggee mooy yonent sallallahu alayhi ni mu doon natte mooy po bu ndaw bi Pape Samba génn nii bu ndaw bi li moom la ñuy woowee mudd mooy li nga xam ne boo si defee maximum deux kilos lay mat de riz li ëpp gën mooy dëkk ba la ñuy dundee ñu génnee ko tey buñ ko bëggoon def tàndarma comme waa dina problème day am ndax tàndarma doyu fi fii Sénégal ba ñu koy génnee kon dañuy xool ceeb bi ngay lekk nag di ko dundee moom ngay génnee doo lekk kilo 1000 francs di saraxe kilo 200 wala kilo 300 l'islam bëggul loolu li ngay lekk lu toll noonu ngay jël natt ko 2 kilos koo xam ne yow yaa ko war a dundal rek yaa koy génn wala li nga xam ne moo di zakatul fitri mu di mu muddum koor Baye Cheikh voilà mu ngoog donc loolu am ngi euh, mhm. euh, a mhm. mi ngi nekk ci yow parce que yaa koy dundal voilà sa jànk mais par exemple bu nekkee dafa am ñoo xamante ni dañoo ñëw woor woor si sa kër mhm. euh, ñooñu mudd bi nan lay lan lay demee ñi weer bi lañ fi nekk wala deux mois yi léegi mudd bi nan lay demee bu fekkente ne biir weer bi jógee Podor <laughs> bu fekkente ne même jànk bi <laughs> sa bu fekkente ne moom li muy fayeeku mën na ko génne te du ko lor maanaam du miskin wala faqir ndax mm. oustaz Alioune Sall junj na ko am ñoo xam ne mën nañ am dara par weer mais du leen doy dara yow bu fekkente ne moom mat na ko ba mu mën a génn mu dum koor xayrun su ko mënul yow mi mu nekk sa kër nga génn waaleel ko kii ñëw sa kër ngir woor sa fi nag bu fekkente ne moom itam poosam ak dooleem may na ko mu génnal boppam mu def ko su ko mënul yow mi nga xamante ni moom nga yaa koy dundal nga def ko ku ko mënul nag wàcc na la ndax laa yukallifullahu nafsan illa ma ataaha yàlla nee na du ma leen laaj loo xamante ni joxuma leen ko beneen question mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey suñu genre yi mm-hmm. est suñu borom kër yi ñoom ñoo ñu war a muddal wala ñun ñooy def joxel suñu bopp waa li gën li gën mooy yow comme yaa ngi liggéey ah, waaw yow mi yow yaa liggéey man nga nga génneel ko sa bopp te du la yàqal dara day ñëw rek si question bi ñuy laaj si tabaski kii am tabaski jëndal boppam ndax xar bi moo ko moom wala soxnaam moo ko moom bu dee yaa ngi liggéey di daan sa doole bu sa borom kër tëralee rendi yow tëralal rendi bu génnee muddum koor génneel sa bopp muddum koor ah ndax yàlla bu sa bopp wala yow ak peut njaboot bi ak moom comme ni mu valable waaw comme ni mu euh, valable ndax sarax du doy te loolu lépp day si yiw te day barkeel li moom moo di moo di moom moo di alal ji donc loolu nekk lu am solo ñi nga xam ne nag dañuy tardé di ko tardé la génneel ba ñu julli ba pare Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu du ñu am yoolu ku génn mu dum koor mais danañu am yoolu ku saraxe te ku ne xam ne ne zakat génne ko muy azaka di zakatul fitri yool bi mu am ak ki nga xam ne dafa saraxe nii rek naturellement yool yooyu mënul bokk mënul yam hmm. kon li gën mooy ñu teel ko génne ndax ku nekkoon si situation boobu di nga bëgg ku la ko teel a jox ndax ñun ñëpp ñam nañu xiif xam nañ ni mu mettee douze mois sur bu benn weer ñëwee yàlla ñamal la xiif ak mar ne leen nag xiif ak mar bi comme teggil naa la ko ñi nga xam ne si lañ dëkk fexeel nga génne ko jox leen ko loolu day nekk loo xam ne lu ñu war a gaawe la nañ koy def xaalis ndax boo leen joxee ceeb itam dañuy dem obligé dañ koy jaay dañ koy dem jaay ko di jënd ndawal di jënd ay ndugg di jënd ay fruit ngir mën a bég si mën a bég si bés boobu kon nañ koy def espèce lu wa ku mën a koo xam ne cinq mille nga war a génn te boo génnee dix mille la wàññi dara eh. def ko rek tatawu an nga def ko te yàlla rek tax bénévolement mhm. te yàlla rek tax ndax yiw bi day gën a yokk Baye Cheikh voilà donc euh, je pense que c'est très clair merci en tout cas Aïssatou pour ce euh, pour ce reportage euh, bu jëm ci wàllu euh, mbirum koor et puis Oustaz Assane indi ci ay leeral dans quelques minutes daañu recevoir ci plateau bi Galoba directeur de la société de gestion des infrastructures publiques ci pôle pôle urbain bu Diamniadio ak Lac Rose rappelez euh, ne nañu bëri est-ce que évolution am na euh, ñu defaat bilan euh, ci euh, taxawaayam foofu diggante jam ñaajo ak Lac Rose sànq wax naa ko zone la boo xamante ni actuellement dafa potentiel lool Dieynaba mën nañ ci commenter tuuti laata ñu recevoir monsieur Galoba mm-hmm. ci plateau bi jam ñaajo baax na ñu expliquer yu bari mm-hmm. sénégalais yi quand ñu comprendre zone boobu tout à fait parce que depuis 2014 la ñu def xeex maanaam gas bu njëkk bi ci jam mm-hmm. ñaajo depuis booba léegi logement mais am na aussi ay infrastructures yi nga xamante ni c'est des infrastructures d'utilité publique donc euh, loolu la euh, Galoba euh, di mhm. am na solo ñu xam expliquer nit yi ne bu ñu amee dëkkuwaay dëkkuwaay du rek am foo dëkk mais mhm. aussi dafay am ay infrastructures yi nga xamante ni mhm. ñoom lay accompagner ndaxte loolu dafay bokk ci li nga xamante ni moom mooy plan de lotissement de manière générale donc waa SOGIP am na ay projets yu bëri yi nga xamante ni jot nañ ko fa daal di réaliser machallah ci benn diir bi nga xamante ni euh, peut-être diir bu gàtt la. Mhm. mun ñu jël Dakar Arena. Ah. Euh, euh, Radisson Blu bi nekk kon ca ca Diamniadio gare comment on appelle gare des gare des gros porteurs des gros ah. porteurs centre mhm. d'exposition fi nga xamante ni foofu la président Macky Sall. foofu dafa garaaw de. waaw defee kii maintenant nag tey il faut ñu expliquer ñu par exemple infrastructure yooyu am na yoo nga xamante ni fonctionnel nañu am na ñi nga xamante ni fonctionnel wul ak tamit mu bañ a. ministère les deux sphères ville bu bees la voilà les les deux sphères déjà ñu ngi fonctionnel déjà ministère de l'habitat moom mi ngi au niveau du sphère euh, euh, bi nekk euh, kon Diamniadio donc c'est important tey ñu ñu expliquer ñu infrastructure yooyu yan njëriñ la ak aussi coût projet bi naka la ñuy defee montage financier yi pour ñu xam ne que état dina ci dugal loxoom privé comme public ñëpp seen dugal seen loxo kon dina expliquer un peu ce que ça donne. léegi yow Aba lu ci soo ba ngay dëggal ay kàddoom Jeynaba war a recevoir Gallo war a waxtaanee jam ñaajo nga non bàyyi man non man bàyyi musuma fa wàcc <laughs> mais boo rombee mhm. da nga xam ne fii avenir la quoi boo rombee da ngay gis mu rafet lool lool lool et puis yaa fa nekk yëpp dafa xam ne man bëgg euh, <laughs> grand théâtre déwén arena la ñu jëm waaw waaw yow yow moom bàyyi yow moom bàyyi ñaar yi moom maa ngi jëm maa ngi jëm arena ñu ne nag mën ngaa xëy waaw de de de de oustaz moom mi fu mu bëgg ma yegg fa. dëgg fa yegg macha allah ma ko moom. dëgg la macha allah yàlla yàlla defal ko jàpp. vraiment vraiment vraiment. <laughs> quand tu quand tu quand tu parlais de quand tu parlais de dëkkuwaay tout à l'heure Dieynaba dafa am ñoo xam ne d'habitude dañuy am problème parce que ñun sax fii la ñu dëkk. Mhm. Euh, peut-être bu ñu investir pour tabax euh, mhm. mën nañ ko surveiller. Mhm. mais dafa am ñoo xam ne tout le temps dañuy sonn am ay problème mu dëkkuwaay euh, muy immigré yi sénégalais yi nekk ci diaspora bi. bëri na ci ay xalaas yu ñu nettali ay nit yu yónnee ay ay millions euh, jox ko seen ay mbokk wala jënd ci euh, suuf wala jënd ci kër te ay problème lay dañ leen a yàgg dóor tellement de dañ leen a yàgg yi nekk biti réew mm. euh, ndaxte da am sa benn nijaay nga am sa benn mag sa benn rak sa benn yaay wala sa benn papa nga wóolu ko di ko yónnee xaalis mm. muy encaissé nekk xaalis bi yeneen fin la koy jëmee du ko ah indil wàllum kër donc loolu moo tax sénégalais yi nekk léegi à l'extérieur dañuy am rétention jëmee ko ko ci seen même seen bëgg-bëgg ci wàllum ci wàllum kër ndaxte sénégalais yu bëri daje chaque fois dañaan ndax wóor na wala yenn saay ñu ñëw jaay la benn terrain bi nga xamante ni euh, ci notaire yi parce que duñ koy euh, euh, tay di wax Pape Cheikh loolu moo tax nag xam nga promoteurs yi dañoo rassemblé ci ab regroupement loolu nekk lu am solo moo tax nag chaque année dañuy choisir benn dëkk dem daje ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi wan leen programme yi nga xamante yoon mais surtout promoteurs yi nga xamante ni ñoom la ñu rek daal di agréé ci loolu euh, ci le regroupement des promoteurs demoon ca Chicago dem aussi ca Montréal dajeeg sénégalais yi mais nag euh, lu ñu ci jaaxal mooy sénégalais ñu ci gën a bari ñam ñu dajal amaguñu kër nag ma loolu moom a xaw a yéem tuuti. Mm-hmm. mais mun nañ leen mm-hmm. seetaan ñëwaat ragal waaw waaw mm-hmm. ñu ñu xool après ñu commenté. Aïcha ñu dem ci. Euh, gis nañu ay produits yoo xam ne intéressé nañu euh, gis nañu projet yi développement si booy génn Dakar autoroute à péage bi donc euh, man na projet bu gën a attiré sama attention bu ma gën a intéressé bon xëy na du ma def publicité pour gars yi mais daal gis naa lu ma doon wër donc euh, loolu daal la amoon lu may tàmbale. est-ce que c'est la première fois nga bokk ci genre événement yi. bon personnellement oui c'est la première fois ma ñëw ci salon immobilier donc euh, jot bi mooy jafe yenn saay puis moo tax tey daal comme am na jot bi ma daal di ñëw xool lu gars yi présenté fekk xool ndax ñun dinañ ci gis suñu bopp ak lépp. mais jusqu'à présent daal gisuñu dara loo xam ne mën nañ ko tegg daal. première fois nga ñëw euh, ci genre salon yu mel ni non ça fait ça fait très longtemps depuis je pense que l'initiative de euh, de ce forum damay à chaque année je viens et puis dans le c'est dans le cadre du mois du Sénégal aussi j'en profite pour venir euh, et voir les choses intéressantes. Euh, bi mooy troisième fois euh, promoteur yi di fi ñëw mais deuxième fois par rapport ak euh, mois du mois économique du Sénégal donc à Montréal bi passé gisoo woon lu doy sa bët wala. en fait gisoon naa yu intéressant mais finalement j'étais pas décidé finalement donc c'est pour ça j'ai décidé de de de reporter à plus tard. dama décidé reporter les choses à plus tard et puis voir aussi d'autres d'autres moyens voir les particuliers mais cette fois-ci bi ma ñëwee ren euh, je pense que je trouvé des choses super intéressantes plus intéressantes que les années passées. kon décidé nga. waaw am nañ ci yaakaar. c'est la première fois ma ñëw mais je suis vraiment surpris si potentiel bu am actuellement au niveau des logements j'ai l'impression que dafa am benn engouement sax euh, ñu ngi proposé ay produit yu kii mais nag xaw na cher dañuy waxante dëgg nag xaw ma waa Sénégal lu ñu vivre mais ñun à l' étranger je vois des des appartements à cent millions je trouve que oh, wow c' est cher ça c'est mon point de vue là mais je pense que qualité baa ngi fii ñun Sénégal la ñu dellu donc euh, il faut que tamit l' état met en des politiques yoo xam ni ñun tamit mën nañu dimbale pour ñu am logement ça c' est c' est vraiment apprécié là. loolu loolu message boobu laa bëgg autorité yi ñu mais généralement ñi nekk ci diaspora bi dañuy am toujours ay problème mu nax euh, ci ci wàllu suuf wala ci wàllu jënd kër euh, peut-être salon yu mel nii dina leen dimbali yéen ngeen dem directement à l'information. exactement là moom euh, parce que j'ai posé pas mal de questions par rapport à ça parce que ñun ñëpp loolu la ñuy xool la parce que bien que am nañu ay famille yu ñëw ñu baax à Dakar mais tamit léegi dëkk bi kenn wóolatul kenn. mais suñu amee genre yi am benn plateforme tamit informatique boo xam ne on peut aller chercher l'information dina aider tamit la diaspora pour ñu mun acquérir ay terrain ou bien tabax entre Montréal ak fi nga xam ne mooy euh, Chicago Dieynaba Seydou Batal demoon fa doon seeti yenn ci ay sénégale yoo xam ne joxe nañu seen xalaat. Mhm. Euh, ci jafe-jafe yi nga xam ne d'habitude dañu koy am bu ñu bëggee am euh, logement oui cher na certes ci yenn yenn yenn zones yi. mais c'est toujours bien comme ci as nga jaarale ko fi nga ko war a jaarale dem seeti notaire mhm. dem seeti ñi nga xam ne ni lépp lu bokk ci processus yu tabax mooy mhm. seen métier. mais xam nga en fait Pape Cheikh man sénégalais yi nekk ci Euh, par rapport ak jënd suuf wala jënd kër parce que xam dara gënul metti nga yor sa xaalis ba pare doo ko mën a doo a dugal fi nga ko war a mën a dugal ndax kóolute bi euh, moom mooy rek euh, daal ñàkk sànq waa ji dégg nga wax na ko nee peut-être ñu créer leen benn plateforme boo xamante ni hmm. fa la dugal yenn dossiers yi fa la dugal yenn projets yi pour ñoom ñu war ko mën a am hmm. mais est loolu peut-être dina yomb parce que hmm. xam nga bu nekkee Pape Cheikh mu ngi nekk valeurs yi ci euh, koo xamante ne peut-être wóolu na ko day nekk jafe-jafe te ñoom bu ñu ñëwee Sénégal un mois la ñuy am congé généralement donc seen off yooyu du leen permettre ñu mën a wër projet yëpp pour mën a euh, kon daal di euh, daal di am lu leer moo tax nag foofu la peut-être gouvernement mën a yëngoo pour aussi may sénégalais yi nekk extérieur opportunité boo xamante ni bu ñu ñëwee dinañu mën a gis li nga xamante ni moom mooy lu leer te même sax avant ñuy ñëw ñu mën gis daal ñu mën yi ci yenn dëkk yi di fa dem mhm. dem nañu Europe dem nañu États-Unis euh, dem nañu euh, kon euh, Canada peut-être dinañ dem ci yeneen dëkk mais voilà mhm. mais le le problème de l'accès au logement mhm. dafa nekk loo nga xamante ni lu dëgg la loo nga xamante ni sénégalais ñu ngi koy dund te wuti saafara yaakaar naa dafa jot et puis y a tellement de gens qui se font passer pour ay nit wax ni ay notaire lañu te duñu ay notaire di def usurpation de fonction di nax ay doomu Sénégal sori donc moom sori waaw waaw sori sori bi moom mooy indi loolu que doo mën a def yenn yenn vérification yi ci misaal rek barki ma dafa am sama benn cousine bu bëggoon jënd greffage ah. greffage boo xamante ni daf ko dégg ci publicité ci émission Aba ah. léegi daf ma woo ne ma woote naa foofu mais kooku dafa ma ne da ngay yónni xaalis ba pare laataa ñu lay jox moo ko def lu ñu ko jiiñ moom la mais mais moo ko def bu ñu leen gëmloo keneen la moom moo usurpation de fonction ci njaayum greffage non non mais bi la woo léegi après dama obligé woo Aba Aba ne ma waa kooku lu wóor la ma woo ko ne ko léegi kooku lu wóor la mais yow léegi xoolal comment tu fais defal nànk uh-huh. donc même système bi la ak ak ak ak jënd kër ak leneen looy jënd nga xaw a sori donc c'est difficile pour yow nga mën a euh, joxe information bi mais moo tax nag euh, yenn tour yi ñuy def une fois par année. Euh, pour jaay kër xool projet yi c' important mais surtout état bi nag li mu war a gën a jaay mooy ville yu bees yi Diamniadio ak Lac Rose. on va parler de Diamniadio d' ailleurs dans quelques minutes ak ki nga moo jiite. Sojip di Galoba. Marie-Louise yow mi ne ci yëfi tribunal y a tellement de gens qui se font passer pour yenn saa yi nga dégg ci émission yi ñu ne diw dafa doon wax la di douanier diw da doon wax ñi notaire la di nax ay sénégalais yu nekk bitim réew di leen jaay ay kër di lekk seen xaalis loolu defe naa mooy usurpation de fonction su ma juumal. mooy usurpation de fonction Pape usurpation de fonction dafa am. Mhm. usurpation d'identité aussi dafa am et Sénégal am na ñu bëri ñoo xamante ne ci loolu la dundee. ay ñoo xam dañuy mbubboo turu juge avocat magistrat. yow mi euh, euh, nan la tuddati animateur bi journaliste bi pour lekk ay nit lekk seen xaalis loolu bëri na fi ñu bëri loolu la ñuy dundee tu vois un peu sànq jëy na ba mu ngi koy wax ci njaayam suuf si moo ëpp njaayam suuf si ñu bëri ñu ngi lekk seen xaalis foog naa escroquerie escroquerie foncière foncière mooy délit bi gën a ñëw ci ci ci rôle bi et pour la plupart tout le temps dañ leen di condamné ay deux ans cinq ans dañuy ñëwaat. c'est des gens qui en profitent. di gens yoo xamante voilà ils profitent de l'occasion pour dóor ay nit. ñun keroog bi ñuy def émission ak Gana Messere am na ko bind ci Facebook bi ne moom mooy euh, porte-parole u Gana Messere pour addiya yi ñu yónnee ko ko. <laughs> sànq yónnee nañ ñu ab sénégalais bu euh, faatu ci benn accident Maroc i paraît que y a un autre sénégalais qui se fait passer pour son papa euh, pour récupérer nee na xaalis bi yooyu yooyu yooyu waxuma la bi

ko dugalal. voilà Pape Samba. wóolu woo ma. avocat procureur takk wala sax taskati xibaar ngir nax ay nit ba lekk seen xaalis ñu bari noonu lañuy ñuy dundee ca tribunal àttekat yi daan nañu ci ay tàppalekat benn ñaar ba ci ñetti atu kaso bu ci mujjee mooy kaabu Daouda Sow kookee doon bu buuturu procureur sëñ Bassirou Gueye président Malick Lamotte ak doyen des juges ba naxse ay maire directeur ak i préfet muy mbir mu doy waar tax ñu bari di laaj naka la ñuy def ba teg seeni plan Maxaali Ndag Doy président chroniqueur judiciaire bu Sénégal fekkee na ay cas yu bari ma gën a marqué c'était le fameux faux commissaire boo xam ne ni dafa profité woon ci temps yi nga xam ne ni gars yi dañu doon tere salon de massage yi ak euh, publicité bu ci amoon mu dem il se faisait passer pour un commissaire bu ñëwee day fexe aborder gérante bi lekk xaalisam parfois sax yegg ci kawam dem ba ba ñu jàpp ko. moom tamit dund na ko def na fukki at ak juróom ba mu nekkee avocat ba léegi turam tax ñu bëri di ko mbubb maître Bamba Cissé dellu si na si koo kee doon ndax ay nit ca Tamba. loolu dal na ma effectivement c'était il y a de cela deux ans benn bu bu doon mbubboo sama tur à Tambacounda. et il avait fait beaucoup parce que temps boobu dafa fekk ma doon dem lu bari Tambacounda donc il avait fait beaucoup de victimes là-bas et donc après il a été arrêté et condamné à deux ans de prison ferme. donc c'est un phénomène très courant boo xam ne ça peut arriver à tout le et personne n'est à l'abri mbir mi nag gën na yaatu Souleymane Téliko moo ko wax. justice dafa nekk benn service public boo xam ne dafa am particularité ñi fi ñëw yëpp dañoo ànd ak njàqare parce que ku ñuy jugé wala ku ñu war a àttee sa mbokk wala koo xam ne dafa am benn këyit bu jàmp boo xam ni sa avenir wala sa euh, sa scolarité wala sa leneen su la dépendre da ngay ànd ak njàqare. kooku nag nax ko daanaka day yomb. surtout que parfois gars yi dañ lay gis euh, composition tribunal di ñëw nga gis benn maxaali boo xam ne warul waru leen jige mu yore dossiers yi ñëw teg ko bu génnee dajeeg yow nga gis ko ci saal bi bu génnee dajeeg yow mu ne la man mën naa ci juge bi dara loolu day yomb da nga koy wóolu avocat. bu plaidé ba pare génn ci biti jël ay dossier jox ko benn maxaale jël robam jox ko ko mu yore ko topp ko kooku bu la waxee ne la mën na ci dossier dara danga koy gëm yooyu cas yooyu ñooy indi euh, facilité usurpation de fonction. lan la si yoon wax. c'est-à-dire il faut cas. sur le cadre du monde réel ak sur le cadre du monde virtuel. Il y a ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique infraction la bu bees boo xamante ni euh, code pénal moo ko posé et en termes de répression c'est des peines très sévères qui peuvent aller jusqu'à sept ans de prison. leneen li mooy euh, usurpation de fonction et de titre loolu mooy dans la dans la réalité. mooy nga ñëw ne man maay diw wala nga sol ay tenue robe avocat wala magistrat wala robe militaire wala dara euh, nga ñëw ne man may diw mën naa régler temps nga nax ci nit ki ba mu jox la xaalis. yoon dafa prévoir ay pen qui vont de deux ans à cinq ans. lan moo koy saafaraal. organisation bi dafa des ci palais de justice bi euh, man jàpp naa ni war nañ jël ay mesures yu bëri première fexe ba. informer correctement tous les justiciables yi fi ñëw ba nga xam ne ku fi ñëw di nga xam yow sa procédure naka lay demee ban salle d'audience nga war a dem service bi nga war a dem nan nga fay demee ak yan pièce ak yan formalité nga war a def ko jot ko. beneen bi mooy dañoo war a aussi renforcer accueil ak information am nañ bureau d'accueil et d'information mais malheureusement bureau bi doxul nu mu waree parce que amul effectif bu doy te loolu tamit dafay tax rabatteurs yi. ak yeneen intermédiaires yi ñëw ñu mun a dogalee nit ñi euh, beneen bi mooy jàpp naa ne aussi ni ñu war a filtrer entrée yi des na te war nañu fexe euh, soit utiliser ay badge parce que ñu ngi koy jëm utiliser gaa mais dafa jafe euh, li tax mu jafe nag fii c'est un service public mënuñu fi tere ñu ñëw c'est un service public mais war nañu mën a fexe ba nga xam ni képp ku fiy liggéey da nga am benn badge ku fi ñëw soit da ngay nekk un agent nga sa badge wala nga nekk un justiciable bu ñëw fekkee audience publique nga nekk ci biir salle d'audience lu si mënti am daal mooy kilifa yi war nañ si jug ndax justiciable yi nañu lool. mu ngoog euh, donc woo jël fonction nit wala identité nit euh, te du sa bos moom waxuma la bàkkaar yi wax naa ko sànq sax waaye li ci loi teg moom. mu ngi mën nga tëdd ba sept ans Pape Cheikh. te li ci gën a mooy élément bi génnee na ko am na ñoo xam dañu ñëw ba tribunal di escroquer ay nit. xam nga nit da ngay am problème si si. dem ba tribunal di escroquer ay nit parce que da ngay am problème ah. sénégalais euh, xamul yoon mhm. loolu mooy suñu grand problème xamuñu fan la ñuy jaar xamuñu les voies et recours fi ñuy jaar pour mën a am avocat pour mën a am euh, voilà xam sa dossier fan lay jaarale donc tribunal dafa am ñoo xamante ne ay rabatteur lañ ay ñoo xamante ne mën nañ jaaree fii ne la waa xam naa diw xam naa diw mën mën naa la mën naa la régler dossier bi xam naa juge bi man toog naa euh, salle une benn nit koo xamante ne tekkiwul dara fekk yi may def xalaas damay teel a ñëw tribunal ma dégg ko mu naan waa ji da nga waroon ñëw sama biro sama biro nga waroon ñëw sinon du agsi fii ma tourné xool ko waa ji gën maa xool tourné waat dama nga xam dama nga xam di ah. du dara <laughs> donc ma xool ko mu xool ma mu continuer wax tourné waat donc loolu moo fa bëri ñoo xamante ne gis na ma yéen ni gisuma. fit quoi dañoo am fit ki ki mujjee intervenir wax na solution bi ah mooy problème d'organisation la c'est important parce que bu fekkee tribunal laay wax ah exemple boobu nga joxe ah même bu fekkee ci entreprise la il faut ko ñu xam ki qui est qui fait quoi. ndax c'est important problème euh, accueil tamit am nañ ko ci au niveau du tribunal loolu c'est important parce que nit kuy ñëw il mu am ba ko xam ne kii bu fi duggee lan la fiy def kii lan la fiy def kii lu ñu la wax rek da gëm da yaakaar ni kii li ma moom moo ma mën a indi sama li nga xamante ne mooy sama soxla donc c'est important problème d'organisation te ñun Sénégal dañu am problème boobu te loolu je pense autorités yi seen ministre de la a mën a jël ay matuwaay yu am solo mm-hmm. la te ñi nga xamante ne ñoo ngi koy def dañuy jege juge yi wala jege procureur de telle sorte que doo ko yaakaaree ay procureur ñoo xamante ne ay ay ay procureur yu bëri ñoo xamante ne dañuy laajte xaalis seen tur ay 1 million di encaissé anu ci koo xamante ne xalifu euh, euh, laayeen yi la doon encaissé la doon encaissé ah. ne ko dama la jëndal oto Euh, mais procureur diw dafay laajte un million pour oto bi génn parce que mu ngi tribunal tu vois un peu donc ñu coincé ko ndax ko et ak l' avocat du du xalif ñu dem jàppee ko ci kër xalif bi donc dafa am ñoo xam dañu bëri fit sénégalais ils n'ont qu'à être vigilant soo amee dossier demal nga xool cabinet d' avocat nga jël sa avocat soo ko amul peut être nga dem nga rapproché wu ci association des avocats am na association dina am ñoo xamante ne mën nañ la dimbale mm-hmm. def te yàlla tax gaa am na ñoo xamante ne duñ ko def mais am na ñoo xam dañuy def te yàlla tax mooy li ñuy ah, di jaar ci yoon euh, parce que yoon teg na yëpp quoi am na am na am na ci yoon yoo xamante ni boo fa jaaree quand même ak vigilance euh, doo ci am euh, doo ci am yenn yenn yenn jafe mais parce que nga baal ma ñun parfois ñun ñoo ñemee diw moo ma booleeg diw xam nga léegi souvent ñun dañu dem ba ñun dañu dem ba yaakaar ni fenn foo xamante ne dañ fay dem pour jëli suñu droit sax bu la nit yóbbuwul par exemple dama koy jël exemple ñiy ut visa visa papier la yoo xamante ne da koy am jël rendez-vous dem yóbbu fay xaalis bi nga war a bu dee papier yi daj na ñu jox la bu dajul duñ la jox mais dañu tàmm tellement intermédiaire ba nga xam ne dañ naan am na kuy yóbbuwaate ñu jël ay millions jox ko ko buñ la mayul dalay xool kese di la jooy ay di la wax que waa du ci man wala quoi que ce soit il faut que ñu xam ne am na yoo xam ne suñu droit la dañ koy dem pour jëli ko jarul ñuy jaar ci kenn pour a mooy joxe visa. kenn amul fa kenn amul droit wala amul capacité joxe visa nit nit comme yow la sénégalais la. Mm. ambassade ngay dem soo bëggee visa nga dem ambassade nga déposé suñ la jëlee suñ la mayee nga dem suñ la mayul nga déposé waat. Mm. mais ñu bëri ñu ngi euh, seen million ay 4 millions. 3 mm-hmm. millions mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi noyé wu ci ay nit ñoo xamante ne duñ dara. ay mm-hmm. suuf si dee na ba je pense que yéen a koy gérer il faut ngeen jóg ci. wallaay dañ ciy wax wax du foog naa. ñi xamante ne ñoo yore suuf ñu ngi fi. il faut prendre des mesures promoteurs yi bëri nañ dóorkat yi bari nañ. gis nga am na koo xamante ne dafa def onze dafa def toute une vie di liggéey dajale onze million ku jënd terrain. retraitant waa ji dóor ko. tu vois ba loolu moo fi am day leen ndànk nañ def ndànk waa ci terrain bi surtout da nga gis koo xamante ne dafa jaay terrain jaay ko fukki nit ak juróom dalay lay yóbbu ci terrain bi moomu ko mais Marie-Louise domaine de l'État ñu koy jàpp. mais Marie-Louise dóor yooyu noonu euh, c'est-à-dire que ñun luñ ci mën en tant qu'acteur yi yëngu ci wàllum euh, ci wàllum euh, information immobilière ak foncière mooy alerter. Mm. chaque fois ci yeewu leen. que mu nekk ci quartier général que mu nekk ci émission sama kër dañuy wax nit yi ne leen que ne boo leen di jënd dem leen ci notaire. parce que notaire bi voilà chaque fois dañuy sensibiliser sensibilisation boobu nag euh, euh, chaque dañ koy def pour wax leen ne yéen boo leen di jënd dem leen ci notaire notaire boobu moom état la fi nekkal. te xanaa euh, notaire bu la waxee ne la par exemple yow de terrain bi nga bëgg jënd dem naa ca domaine xooli ko waaye Pape Cheikh Toure ci nekk yow doo ko jënd. Mm-hmm. mais Sénégal facilité yu ñu bëgg yow par exemple a jaay terrain ne rek acte de rek laa lay defal ah, ah. loolu la ñu loolu la ñu war a la ñu war a bàyyi lañuy ah. def vérification mm-hmm. avant achat wala nga jaar yow fi nga xamante ni foofu nga war a jaar ci promoteur mais yu agréé donte sax que nekk am na ay promoteur yi nga xamante ni wala euh, mooy du ñu joxe yenn cas mm-hmm. mais demal ci promoteur yi nga xamante ni agréé nañ leen nga dem par exemple au niveau de la banque nga laajte ñu jox la parce que yaakaar naa ne information ku ko yor rek dina la mhm. gindi ci lu. et puis au delà de loi am na lu ci l'islam wax. c'est ça balaa oustaz di ci sànni kaddu. Mhm. mais bàyyi da ngay ah, war a waxtaanee. day dem ba léegi entreprise yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi dañuy sensibiliser. Euh, nit ñi leen wax ni bu ñu leen waxee lii wala ñu wax leen lii bu leen leen gëm tànk nag man dama yaakaar ni réew mi yegguñu ci kii dafa tiit wala dafa. bëgg wala dafay topp alalam tant que yeggoo foofu kenn mënu laa nax fii tant que rek yaa ngi toog naan garaawul euh, naa joxe lii ñu dañoo bëgg lu nooy dañoo bëgg lu féex di yónni waate non waaw ñu dañoo bëgg toog te xamoo li nekk ci ginnaaw loolu foog nga topp sa Youssou Ndour ndax ngay liggéeyee <laughs> c'est vrai que dañu bëgg dañu dañu bëgg bàyyi xale ñëw man mus nañu ma mus nañu ma euh, li ñuy daj mus nañu ma tàj mus ma tàj fenn koo xamante ni dafa dafa nekkoon ci euh, Facebook bi mu ne man la Euh, di wax ak benn xale bu jigéen ba doxaan xale bi ñoom ñaar <laughs> léegi nee na waa ji da ko doon da ko doon saaga faram bu njëkk bi euh, di ko saaga di ko saaga donc man ñu wóolu ma taaj ma quoi comme quoi man maa doon wax ak gel bi ba saaga euh, ba saaga waa ji ji dama ko fekk mu doon lu doon lu ngand toog am tax nga may saaga ci Facebook bi ma ne ko du man barki Sëriñ Tuubaa donc faites très attention et c'est dans tous les ah domaines ah ah bàyyi xale yi surtout xale yi ay fête bu ñëwee nañu vigilante nañu bàyyi seen xel ci seen bopp feet bi benn fan la gars yi dañuy utiliser noowu ku ne utiliser euh, option bu ne bii maay métti ay portable laay jaay ay cheveux naturels laay jaay <laughs> uh-huh. utiliser xale yi suñu rakk yeeg uh-huh. suñu ñees yeeg suñu uh-huh. jigéen ñi utiliser leen ba ba ba ba ba fête bi passé ñu soog a xam ni dañ leen doon nax donc il faut ñu bàyyi seen xel seen bopp c'est très important euh, euh, nga baal ma euh, maa leen di nuyu Baye Cheikh di nuyu ñëpp ñuy seetaan ci usurpation d'identité boobu Marie-Louise doon wax ak de fonction bi y a une échelle beaucoup plus réduite mooy ñi nga xamante ni léegi li ñu jël mooy dañuy fëgg ci kër yi naan ay agent Sonatel la mm-hmm. wala SDE wala mhm. Senelec te wax ji mooy ñu ñun euh, ñi ñuy bàyyi suñu kër yi la plus souvent am na ci ñoo xamante ni xaj na seen jàng demeewul noonu mënuñoo xàmmee kii mooy agent SDE wala kii mooy agent Senelec mm. wala bu Sonatel da ngay ñëw sol xaj na sa benn tenue bu bleu wala sax mën nga sol benn yére boo xam ne ci mbedd bi nga ko jënde nga ñëw taxaw ne damay xool seen compteur bi wala damay xool lii te loolu dafa am danger parce que li mën a jur tamit mooy agression parce que bu ñu duggee ba ci biir gi lu nekk mën na faa xew bu fekkente ni euh, ku jigéen lañ fa fekk xañ na ne ko euh, lii lii ñuy ñëw seet si duggee ba ci biir bëgg a sàcc kooku mën nañ ko yeew wala ñu mm. gaañ ko wala ñu def ko dara mm. donc je pense que aussi sensibilisation bi surtout loolu moom boo ëpp solo parce que ñun sénégalais dañoo xamul naan leen lii seen droit la comme ni ko sànq Marie-Louise waxee ak bijou loo xamante ne ñu xam ne suñu droit la bu ñu bëggee am passeport mm-hmm. en deux jours war nañu mën a defal passeport. soxlawul may dem ku dem sax mu wóor la ni par la force. dañ faa dem fajoo mais dañuy mel ni sax ñu ragal. Euh, ñi nekk ci kees yeeg ñii làkk tubaab ak ñii joxe ay këyit te sa droit nga dem jëli man loolu day dagg sama xol. et ñoom itam dañuy dañoo dem ba dugg ci affaire boobu dangay gis ay nit yu nekk ci ay kees ak ay accueil di la snobé ci loo xamante ni sa droit la loolu moom bokk na ci li gën a tax ma bëgg a dem Moodu ji. da barki borom Touba day dagg xol de va. ah monsieur ça va xam nga man li ma seetlu. li ma seetlu Baye bul dem Baye bul dem Baye ba ba après le cinq bul dem. xam nga Baye Cheikh li ma seetlu en fait lan moo tax sax sénégalais yi ku nekk di jéema wut kenn koo xam fenn pour mu jàppale la. Mhm. da ngay seetlu tey boo waroon dem jëli benn kayit benn mhm. extrait de naissance wala mhm. dara. xam nga am na loo xamante ne mun nga ñëw ñu jox la ko si saa si. mais am na ñoo xamante ne ngeen baal ma si ñi ñu ko wax a wax am na luñ siy séntu donc muy. ci euh, ci extrait wala feneen beneen kayit boo war a dem jëli mm-hmm, mm-hmm. dañ la naan euh, tey suba tey suba euh, am ñoo xamante ne dafa am lu ñu siy xaar mm-hmm. léegi nag nit ñi loolu la ñuy daw dañuy bañ dañuy yenn saa nga yàkkamti kayit ngay daw jaabante boobu nga ne xaaral ma wut peut-être que y a bijou wala keneen ku xam fenn kenn et puis voilà tu essaies de passer par la porte bi nga xamante ne moo gën a yomb ci yow c'est tout voilà Assane waaw mu ngi noonu Baye Cheikh yaakaar naa ne wax ji ñëpp moom nga moom nga si nga si gisee sa bopp Euh, di laajte aussi nax day daal day yomb mooy li abaa am na ñoo xam ne amee problème loo leen wax rek dañuy yow mën nga faj seen problème te fekk yow yaa leen problème foofu te say problème fajoogul gis nga boo demee si alquran yàlla subhanahu wa taala dafa koy wax mu ne wala taqulu amwalakum baynakum bil baatil wa tudlu biha ila alxukkaam li taakulu fariqan minhu bil ismi wa antum taalamuun yàlla na ne bàyyi leen di jël alalu jàmbur ba pare dem fa nga xamante nii fa la nit ñi di nekk wala fa la ñoro àttee nekk ngay ñëw di dugal di génnee pour fexe yow alal nga defe def jàpp ne defe loo xam ne luy lew la nee na poson ngay lekk safara ngay lekk te bu ëllëgee boo ñëwee danaa la tàbbal safara mm-hmm. loolu jullit bu nekk war na si bàyyi xel mm-hmm. am am neex na waaye ndëkk na lew na teey na daggan beneen bi ñu ngi wax si affaire immobilier yi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku jël benn mètre suuf boo moomul bu ëllëgee gis nga nit bu génnee àdduna buñ ko defee ay pel yow dañuy jël nombre suufu jàmbur ji nga mës a dóor yëpp moom lañ lay yéen sa biir bàmmeel en attendant day dem si borom bi subhanahu wa taala mu lay atte beneen bi yàlla bëggul dugal kenn safara gis nga ñun ñun ñooy dugalante safara ñun ñi suñu biir ñooy dugalante safara yonent dafa toog benn bés mu ne saxaaba yi ndax atadruna manil muflis hmm. xam ngeen ki fayit ñu nekk ki fay si ñun mooy ki nga xam ne da doon commerce commerce am daanu wala ki nga xam ne doon liggéey liggéeyatul wala genre mun leen ki fay dëgg mooy ki ñëw yomal xiyaam indi ay julli yu baax indi koor yu baax ak màkk yu baax sarax yu baax yàlla jël yooyu yëpp jël ko récupérer ko dem jox ko keneen ñu ne ko loolu nu mu mën a nekk parce que mu ne fenal na ki dóor na kii martu triande na kii escroqué na ki arnaqué na kii nee na boobaa dañuy jël si ay yiw yow yi nga am jël yëpp versel ko ñi nga tooñ bu fekkente ne rek mataloo ñu jël ñoom seen ay ñaawteef versel la ko dugal la biir safara mhm. kon loolu nit ñi il faut ñu bàyyi si xel nga mhm. yàlla nag bu waxee buñ ko jàppee waxi kasaaw kasaaw mhm. nee na lu ma wax dinaa ko def bu nee dinaa dugal àjjana dina dugal àjjana bu nee dina tàllal ay ndigg ëllëg dina tàllal ay ndigg ëllëg te kenn du si man dara parce que moom nee na mooy fa'aalul lima yurid ñu jéggal ma si terme bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum radiallahu anhu ba mu koy tekki dana woon fa'aalul lima yurid Mm-hmm. mooy je m'en fiche mm-hmm. yàlla nee na mooy je m'en fiche mm-hmm. te ku mu jàpp di nga xam ne lépp dëgg la ñu ma bàyyi voilà bu am solo la boo xamante ni daañ ko gën a yaatal merci euh, Marie-Louise Ndiaye ci nii nga ñu ko ëndalee tey ci euh, quartier général bi ku wax lii wax lale peut-être duñu am temps développé yu bëri euh, mais dañuy doon cof rek ci lu am solo loolu nga xam ne ni bëri na ay nit yu muy indil ay gàllankoor muy usurpation de fonction alors ñu ngi leen di xaar ba léegi su ko record yaa ngi tege léegi nii ku dugg ñu jox ko enveloppe bu takku tegal ko ci Euh, euh, pièce boo xamante ni man ngeen ko korité euh, am nañu fi ay ventilo am ay téléviseur billet màkk baa ngi tege kan moo ci nara dal a dal ñu mais woote leen numéro téléphone yaa ngi noonu affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ni fu ngeen ñu làmb daj ñu tey ci quartier général bi bu ca kanamee comme chaque samedi daañu àndandoo ak awa dem ndogu ci benn kër alors tey ji dinañu dem découvrir benn famille guinéenne boo xamante ni ñoo ngi fii bu ca kanamee awa Euh, loolu euh, la ñuy proposer téléspectateurs yi ci sama ndogu euh, ñu ngi lay nuyu et puis di la des ziar ñu ngi la dee ndokkeel. jërëjëf Baye eh, di delloo ziar di la ndokkeel eh, di la delloo ndokkeel bi tamit. Eh, waaye meanwhile di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan di la mm. nuyu foo munti nekk. Mm-hmm. waaye tamit um, comme ni nga ko waxee rek dañ demoon seeta seeti ñi nga xam ne ñooy famille guinéen thanks to Dieynaba Doe for the hookup Sali Sali nag xale bu jigéen la nag xam naa nag maybe dinañ yaakaar ne maybe mag laa doon indi ak yooyu noonu mais. Mm-hmm. bi yoon dama dem seeti jeune fille boo xam ne euh, comme boobu leer na de jeune fille. waaw ko euh, jeune fille boo xam ne euh, tubaarfakalla macha allah dañu dem seetaani élément bi su ñëwee ma wax leen lu tax ñu taamu ko indi ko si. ko ñu xam ne mooy sama ndogu léegi balaa ñuy bi ak Gallo Ba invité quartier général regardez sama ndogu ak Awa Gaye sama ndogu bi tey spécial tout la tey moom damaa ñibbi Guinée xam nga def sama tour bu baax tey moom laa invité sama xarit bi awa bu ñaawul bi <laughs> lii mooy foño bi moom laay dugal ci ndox bi maam yi njëkk ñoom ñoo doon lekk tuur tuur bi dafa baax dafa nekk dafa am vitamine déjà que euh, day faj lu bari bëri. boo ko lekkee da ngay digérer bu baax xam nga du la sonal boo ko lekkee comme du la sonal comme ceeb nu mu lay sonalee nga am ay méttitu biir wala nga sonn ak yooyu boo ko lekkee moom da ngay gaaw a digérer wu te dafa baax tamit si yaram moo tax mag yi préféré ko déjà foño la foño la am. ak kànjeek euh, affaire yooyu donc loolu du la sonal lu baax la quoi si yaram. sénégalais yi xam nañ tout léegi bëgg nañ ko euh, kii yi tamit bëgg nañ ko ivoirien yi tamit bëgg nañ ko torop ñun moom pël yi moom franchement bëgg nañ too parce que dafa baax olof yi léegi sax da gis pël bu togg sax ñu ne la may ma too parce que léegi dañ ko bëgg sax dafa neex waaw nekkul question la xam dafa parce que tool fam ñaari façon am na boo xam ne bu tege dege bi la am na boo xam ne bu laalo bi la mais neex na torop maa ngi liggéey daal sama doole en même su ma wàccee damay jàppale sama famille toggal leen too wala jàppale leen ci togg bi li may ñaan daal ci xale yu jigéen ñi tamit yoo xam ne ñu nekk seen i parents nañ leen jàppale seen waajur yi parce que nit amoo kenn du sa waajur xam nga soo gisee boo yeewoo gis say waajur ndel alhamdulilah nga jàppale leen ci loo mën ak nit amoo kenn du say amoon lenn du say waajur xam man daal maa ngi ñaan yàlla daal lépp jigéen lépp looy def daal jàppale sa waajur. moom de xanaa dootul dellu euh, Guinée parce que dégg na wolof bu baax mais ñoom loolu mooy seen lekk mooy seen. seen ndogu quoi. Mhm, fii la juddoo Dakar mm. euh, waaye ay waajuram Guinée lañ nekk. Ah. waaye nag weeri koor bu jot euh, da ngay gis seen i dëkkandoor sax dañuy xaar li nga xam ne mooy too. Ah. too ñun Sénégal ñoo koy woowee too waaye ñoom tóori lañ koy woowee. jéena ah, ba xam na ko bu baax a baax. Mm. <laughs> tóori lañ koy woowee domaine boo xam ne euh, dafa wér euh, mm-hmm. li nga xam ne feebar yi nga xam ne mi ngi euh, mel ni constipation mooy constipation waaw ak oui <laughs> <laughs> ñun seere lañ ko tuddee dafa baax si constipation yeah dafa baax si constipation dafa am vitamines tamit ak biir bu métti bépp feebar boo xam ne mi ngi sa biir bi ndaxte nekkut ñam boo xam ne dafa wow et ah. dafa wér voilà ba li nga xam ne mooy sooy gis mbaax da gis jigéen yu bari dañuy faral di am biir bu métti ah. Euh, euh, bi ñu waxtaanee ak yaayam moom xamal nañu ne lii dafa baax si euh, biir bu métti surtout xale yi nga xam ne dañuy am métti ci biir su fekkee ne dañ am parce laalo biñ siy def en fait lépp li fa nekk amul lenn loo xam ne produit chimique la yëpp euh, euh, natural kii la euh, fañoo bi nu koy waxee ñun Gambie ñu ngi koy woowe mooy findi mhm. dafa mel ni comme jaaru couscous la cere bu weex nii ah, moom lañ koy toggee mu am mu am suufu ñaam bi ak yooyu kon déjà dafa dafa wér mhm. ak tamit the other reason lu tax ma ma indi ko moom xale bu jigéen mhm. dafa nekk xale boo xam ne dafa nekk di daan dooleem mi ngi inspire pour nekk aspire après kay pour nekk euh, an actress commencé na sax di mhm. act euh, si yenn série euh, mhm. fii nii Sénégal mhm. muy ma bëggoon nag tamit Sénégal yi jàppale ko bu baax because xale la boo xam ne dafa am jom su demee liggéeyi ak lu mu guddi guddi lu mu xat-xat dina bàyyi lu muy def dellu këram dem jàppale waajuram yi si li nga xam ne mooy togg tuuri bi ndaxte ñiy xaar tuuri bi pour ñu sëdd leen ko dafa bari te yaayam kese mënu ko def ak ay waajuram kon foog naa ne it's really important ñu daal indi ko sali bi dafa dafa dafa baax et puis tamit mu ngi ñaan pour mu am jëkkër ah. ok ma ko nii rek. <laughs> promotion. promotion tuuti ah. Pierre da Silva nee bëgg na Pierre bëgg na moom. <laughs> donc amagum na benn benn benn benn benn candidat toog toog mu Serigne Fallou tamit euh, bëgg na euh, donc merci euh, Awa ci li nga ñu indil ndogu famille guinéenne la ñu wax ci taux bi ak vitamines yi mu am. Euh, Abba kon euh, commandel tôt. waaye man dama cee ñemewu la wax sax ndax comme nee na moom day wut borom kër te man fiñ ñu toll nii dama occuper moo tax mënuma apprécier sax li mu toog. mais taux bi na la jëriñ. waa taux baax na bàyyi ci yow baax na ci man ndax suñu wax a bari. te dafa am laalo te moom daa tooy fan yi fan yi dafa te dafa am laalo donc awalo loo wax. non dama doon wax ma baax na si tooy tamit dama doon jàppale a si lu muy wax. Uh-huh. xam il faut nga kii ko uh-huh. dafa baax si tooy nag on a serious note dafa uh-huh. baax si tooy. Uh, ndaxte laalo. surtout laalo nguy bi uh, dañ ko xaw a <laughs> ah? dëgg la de lii de mooy bien être bien être Mado. laalo musu indi laalo de indi nga lépp ba mu des laalo. moom nag tey def na bien être tey ba mu tendance na la indi lépp ba mu des laalo. waaw <laughs> laalo laalo laalo nguy bi lu bëri ñëpp tooy. a tooy dañu gajaf waaw kon sali sali mi ngi seetaan waaw sali yaa ngi yaa ngi noonu ah, ñu ne nga defaral leen too suba fii nii waaye nag dafa am leen loo xam ne dafa nekk ci too mhm. ah, ñu baal ma doo waaye comme soo xoolee too bi xamuloo ko mm-hmm. doo koy sawal a lekk mm-hmm. voilà comme euh, soo ko xoolee noonu rafetul si bët daal mm-hmm. waaw waaye comme ñoom dañ lay wax ne comme rafetul si bët soo ko xoolee te xamuloo ko waaye soo ko xamee ba nga ñam ko euh, di nga man dama jëloon benn kuddu <laughs> mais après dama toogaa ferankolaayo <laughs> bu baax li dóor si ba mu baax kon lekk ci taw bi euh, that was it Pape Cheikh mu ngoog for this week um, for this week sax mun naa wax ne is um, sama ndogu bi nga ñu indil euh, on va parler bien-être bu ca kanamee ak Mado am na plan bu am solo bon plan euh, nga ñuy proposé bu ca kanamee ci quartier général bi mais j'aimerais que ñu tàmbali quand même waxtaanee euh, ganuk quartier général ñu ngi ñaari pôle yu am solo ñu ngi dégg tout le temps yéen journalistes yi ngeen di wax jam ñaajo Lac Rose jam ñaajo Lac Rose pôle jam ñaajo et tout ça donc bëri na ay points yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak ki xam ne ni mooy Gallo Ba effectivement Pape waaw dëgg la que depuis euh, depuis quelque temps quand même. Mm. xam nga jam ñaajo li ñuy wax mooy euh, ville nouvelle. loolu la mm. wax parce mm. que gis nañ ni Dakar dafa dem ba euh, dafa fat Dakar dafa xat Dakar dafa fees dell. Mm-hmm. xam nga gis nga sax am ne yenn ministères yoo xamante ni dem nañ ñoom toxu nañ ba pare. Mm-hmm. ñoom ñu ngi jam ñaajo fa lañ nekk donc baax na c'est c'est une bonne chose parce que boo nee ville nouvelle c'est vrai mm-hmm. la monsieur Ba jiite lu am solo la lu am solo la ñi tamit faaw ñu ñëw. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ministère de l'élevage ministère de l'agriculture culture nga xam ne ñu ngi foofu ba pare xam nga euh, tamit seen i agent euh, mhm. dafay dafay metti tout le temps ñuy jóg euh, mhm. tout le temps di génnee jam ñaajo mhm. di ñëw Dakar te gis nañ ni léegi Sénégal oto yu bari nañu naam am nañ autoroute à péage am nañu route nationale mais gis ngeen embouteillage yi maintenant y a pas amul amul amul amul benn heure fixe boo xam ne dañ ne heure de pointe la embouteillage day am wala dara maintenant c'est aléatoire dëkk bi dafay xatiitu donc c'est une bonne chose mais wax ji mooy am nañu bëri ñoo xamante ni xam naa dinañ ko laaj monsieur ba ci kanam jam ñaajo Euh, peut-être ville nouvelle xaj na est-ce que mettiwul torop parce que pour euh, tabax foofu le xaj na en dehors des infrastructures pour Sénégal yi dem foofu installé wu mhm. xaj na dina xaw a compliqué bu baax a baax parce que Dieynaba euh, yow gis nga dañuy wax quelquefois nit ñi buñ fa bëggee dem dëkk liñ leen di laaj mhm. liñ leen di laaj wàllum appartement et tout ça parce que man naata mhm. mënuma dem foofu rek tabaxal sama bopp ça sera compliqué bëri naa ci ay morom exactement bëgg naa ci bëri naa ci ay bëri ay morom et ak yi nga xamante ni tam mooy ouvrage yi tam di gérer Euh, tamit euh, Pape Cheikh Omar dañoo war a commencer. voilà dañu commencer ah, léegi nuyu ko <laughs> waaw mu ngoog monsieur Ba. dama bëggoon juste parce que comme dama ko dama ko bëggoon def dissertation. nga amane sujet bi <laughs> ma introduire. ñu ah, doog a développer ak euh, parce que moom itam bokk na ci invité yi ma tuddee aada ci quartier général bi y a des y des y ay kilifa yu nekk ci dëkk bi nga xam ni chaque année ñëppay xaar seen teewaay ci quartier général bi moom def ci bokk Galoba xale la am na jom nangu na liggéey ñun xam nañ ci dara euh, li mu jiite euh, di euh, SOGIP mooy directeur général bi naata wax na ko léegi ni jam ñaajo Lac Rose autant de questions yu sénégalais yi di posé donc tu mu ne du teew ñuy nataal monsieur Ba ñu ngi lay nuyu merci ci teewaay bi tey ci quartier général laataa ñu tàmbali waxtaan wi ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ni ñoo àndandoog ñun tey waaw merci beaucoup Pape Pape Cheikh maa ngi am mbégte encore une fois mm-hmm. teew fi ci quartier général mm-hmm. maa ngi lay sant mm-hmm. di nuyu bi Euh, di nuyu téléspectateur TFM euh, ñu nekk Sénégal a bitim réew. parce que mhm. quartier général maintenant c'est une maanaam émission mondiale. Mhm. noonu laa koy tuddee. Euh, di beneen nuyu tamit waa Mbacke. Mhm. waaw ku ne Mbacke ne Touba. ku ne Touba sa xel dem sëñ Mountakha Bachir. ne ku ne Mbacke ne Galo Ba. ku ne Mbacke ne Galo Ba waaye ñuy ziar kilifa yi fa nekk yëpp. macha allah di am mbégte teew fi pour waxtaanee yéen jam ñaajo Lac Rose. mais mhm. également accessoirement. Sidy Aliou. Mhm. ñu waxtaan tamit euh, actualité politique bi la ñuy commencé wala euh, euh, jam ñaajo bi ak Lac Rose bi. Mhm. ginnaaw bañ la nuyoo ba pare monsieur Ba di la dalal jàmm ci quartier général gis nañ ni yéen SOGIP seen société bi am na ay ouvrage yoo bëri lu ci mel ni Dakar Arena centre des expositions ak marché d'intérêt national bi ak gare porteur yi euh, je pense bien euh, léegi yooyu yëpp gis nañu bañ ko fi tegee ba léegi lu ci mel ni Dakar Arena xaj na euh, compétition yi ñu fi gis ci wàllum basketball kese la hôtel bi ngeen ñëw tamit samp ko foofu ba jam ñaajo y a des gens qui se posent des questions nan lañ mën a ñëwee ba fu mel ni jam ñaajo foofu samp fa dafa dëkk non non samp fa sax hôtel boo xamante ni mën faa ñëw et euh, teg ci gaaru gros porteur bi tam gis nañ ko boobu ba léegi mais est-ce que seen seen ouvrage yooyu noonu yu ci bëri fonctionnel na et ba ngeen ko commencé ba léegi lu ci mel ni Dakar Arena ak euh, hôtel bi gestion lañ wax mais ndax mi ngi euh, def dara li ngeen ci doon séntu jamono ji yéen a ngi koy def yéen koy am. waaw mais merci beaucoup ci maanaam question yu bëri nga posé ndo mais li am solo mooy que Diamniadio pour man li ma jàpp mooy mooy principale réalisation Macky Sall ci premier pour man c'est la réalisation la plus emblématique euh, Diamniadio tey jii parce que en 2012 li nga wax sànq mooy Dakar étouffé dañoo wax Dakar dafa xat kenn mënut fi dund euh, kenn newtu si jàmm embouteillage yi ça nous coûtait cent milliards par an il fallait créer une ville nouvelle boo xam te dafay nekk une ville de transition entre Dakar ak le reste du pays moo tax ñu tànn jam Diamniadio donc c'est pas hasard suñ tànnee Diamniadio def ko def ko en fait une une ville nouvelle ba pare bëgg koo lëkkale plus tard ak Lac Rose daaw bi may teew fii ñu doon waxtaanee projet yi ñu yi yoroon ay chantier la woon tey jii hôtel Radisson pare na euh, Dakar Arena it pare na le centre des expositions fa le président de la République dafay prestation serment le marché international à la gare des gros porteurs également yooyu yëpp ay infrastructure yoo xam ne ni tey dañ ko livré ba pare kon ci wàll woowu li ci am solo mooy mënoo tey tabax dëkk nga bëgg def lu ñuy wax la mixité fonctionnelle et sociale fexe ba nit ki fi muy dëkk di fa liggéey ba pare doom ay infrastructure d' envergure yu mën a accompagner la politique de l' état en matière en matière d'urbanisme loolu moo tax ñu defar infrastructure yooyu pour accompagner le secteur privé ñoom tamit pour ñu mën a mën a mën a ñëw investir à Diamniadio pour fexe que tey sénégalais yi mën a liggéey Diamniadio parce que tey ministère yi fa nekk y a trois ans kenn xalaatal woon ne ku nekk ministère environnement wala ministère de la de euh, urbanisme wala feneen di nga mës a liggéey Diamniadio kon accompagnement bi donc foog mu am ndax situation transitoire lañ nekk tey mënoo tey rek nga tabax Diamniadio créer les les sphères ministérielles ba pare automatiquement nga bëgg maanaam lépp jagandoo ci benn bis. moo tax dañu nekk ci benn processus bu ñu lancé tey ministères yi au moins vingt ministère jóge nañ Dakar. kon maanaam nit ki tey war naa mën a dëkk Sébikotane wala mu dëkk Tivaouane wala dëkk même Touba. di liggéey si ministère yi. doo dugg dakaar parce que tey li am li tax Dakar am problème mooy ñëpp dañu xëy demandoo dakaar ñëpp xëy noo génnandoo ñëpp ñu wàccee génnandoo génnandoo. loolu mooy indi en fait toutes les difficultés liées au transport. et avec les conséquences liées à la pollution wala leneen. donc ci wàllu gestion bi commencé nañu gestion Dakar euh, euh, hôtel Radisson. tey jii may wax ak yéen hôtel Radisson dans l' exploitation am na benn parti bu ñuy jox SOGIP parce que li tax ak SOGIP jóg mooy infrastructure dafa dafa dafa cher état amul toujours les moyens moom rek génn xaalis pour tabax tey hôtel tabax hôtel tabax estate tabax ay ministère dafa soxla accompagnement secteur privé et pour loolu également état dafa laaj muy recourir à financement financements te it boo recourir ci financement dafay laaj it nga mën a taxaw exploiter li nga li nga yor parce que c'est la première fois dans l'histoire que ñu def am société bu mel noonu bu njëkk stade amitié mu ngi fii wala yenn stades yi. wala yenn infrastructures yi kenn da ngay jékki-jékki mu délabré wala mu yàqu. SOGIP loo ko tax a mooy bu réaliser ba pare dafay confier exploitation bi à des privés ba pare di fa am lu ñu ci am pour rembourser. li nga xamante ne mooy dette yi ñu am pour tabax infrastructure donc hôtel Radisson mu ngi jël satisfaction de même que. Dakar Arena comment commencé na gestion bon gestion Dakar Arena parce que ñun saison bi bien vrai que inauguré nañ ko depuis 2018 ah août le mois d' août dernier. mais bi ñu fa demee ci saison bi nii dañu commencé gis ay vitrines yu commencé cassé fekk nañ fa benn situation bi nga xamante toujours li problème sénégalais di posé mooy problème mu gestion euh, entretien bi. non actuellement Dakar Arena amul problème entretien. parce que c'est ñun ñoo assurer l'entretien parce que pour permettre la viabilité économique de l'infrastructure dafay laaj nga mën a nga mën a entretenir ouvrage bi. ñun suñu vocation du entretenir ouvrage du du exploiter par nous-mêmes dañuy confier exploitation comme niñ tey dañoo taxaw hôtel Radisson jox ko Radisson ñu gérer bu ñu gérer am ci dañuy am da nga am benn pourcentage boo ciy am c'est ça la même chose avec Dakar Arena avec le centre des expositions le marché d'intérêt à la gare des gros porteurs donc toutes les infrastructures yu ñu réalisé dañuy confier gestion bi à des privés tey dañoo nekk situation transitoire Dakar Arena bientôt dañ ko dañ ko confier à des privés mais nag li nga xamante ne moom laa ci mën a wax mooy commencé nañu ko joxe tey fédération de de judo. Mhm. ils ont fait la compétition africaine foofu. Euh, ba fédération basket toutes les manifestations yu am fa lañ koy defee. Mhm. donc vocation sportive bi dañ koy préserver tey du basket wala judo moo mën a indi koom au niveau de Dakar Arena. il faut des des des, des manifestations non sportives mhm. ay le grand concert de grandes manifestations religieuses de grandes conférences. yuy mën a permettre nga mën a tey équilibrer pour fexe fexe pour mën a conserver la vocation finale la vocation communication bi ngi jàll. Sénégalais yi xam nañ ni. Dakar Arena bu ñuy wax Dakar Arena dañuy xalaat basket dañuy xalaat yeneen sport yi. mais pas rek côté culturel bi communication boobu est depuis bi ñu ko inauguré ba léegi commencé ngeen ci communiquer Sénégalais yi xam ne Dakar Arena vraiment am na yeneen utilité yu dul sport bi. président bi mu koy bi mu koy bi mu koy teg c'était pour récompenser les lions du basket. waaye dafa defar lu ñuy wax un stade omnisport. c'est destiné à beaucoup de sports. mais également vocation mooy. Euh, accueillir de grandes manifestations ce n'est pas pour rien que président dafa dafa congrès d'investiture loolu du sport loolu c'est politique. de la même manière tey mën na def de grandes de grands concerts. de grande manifestations religieuses loolu on a beaucoup communiqué sur ça mais dañoo nekk ci situation transitoire boo xamante ne dañu dañu yaa a y a un comité qui réfléchit au sur ça pour xool nu ñu koy rentabiliser loolu déjà ñu ngi ciy liggéey ci wàllu infrastructure yëpp te xam naa ne transport bi pour nit yi dem foofu parce que toog nag ay artistes yoo xamante ne dañ doon waxtaan ci benn concert bu ñu fa bëgg dem léegi kenn ci staff bi ne que bu ñuy dem foofu problème bi nar a am mooy problème mu transport bi ndaxte bu fekkente ne nit ñi amuñu oto nan la ñuy def bu guddee pour ñu ñibbisi bu ñu fa demee ba pare waaw hmm. mais artistes def concert Tamba wala. mais région yi. tey Diamniadio loolu mooy loolu mooy pour man loolu mooy change Diamniadio tey ku def concert Diamniadio ku jugee Thiès wala jugee Sébi wala Kotaan wala feneen wala jugee Mbacké man nga jël autoroute Ila Touba en moins d'une heure nga jàpp Diamniadio def suivre sa concert wala def di xool si activité de manifestation religieuse delluwaat. Mm-hmm. dañoo nekk dañoo nekk si transition. tey Diamniadio li ñu ci bëgg lépp lépp amaguñ ko tey ci benn fan. Mm-hmm. mais li am solo mooy. vision bi nga xam ne moo ko lal te vision boobu mooy que ni yaatlaa quelques années kenn xaatul woon ne lu mel ni mën na am foofu mm, donc tey c'est une nationale boo xamante ni dañ ko war a dañ ci war a sant mm-hmm. ba pare it accompagner l'autorité pour mu mën a gën a yokk ay jéegoom ci jam Diamniadio mais li ngay wax ni c'est un problème réel mais jàpp naa ne que lépp loo xamante ne en tout cas mu fay am manifestation bu fa mënti am nit ñaa ngi fay teew en grand nombre maintenant il va falloir de de ait des des des des mesures euh, d'incitation et pour ñu fa dëkk ak ñu fa bëgg a justement balaa balaa ñu continuer ci euh, cas euh, bi répondre benn internet boo xamante ni dafa ni léegi ki ngeen invité xàmmee naa ko Euh, mais nee na xamul kan la alors j'aimerais euh, ñu teg portrait bi pour permettre ko moom xel mi dellu si euh, ci Galoba mi nga xam ne ni mooy invité quartier général regarde ci weeru janvier atum 2016 la ñëw ci kër gile di SOGIP ñoom sax di saytu lépp lu jëm ci wàllu infrastructure publique ci pôle urbain bu jo ak ci Lac Rose Gallo Ba mi ngi judd fukki fan ak juróom ci weeru février atum 1974 foofu la ca Diourbel moom di inspecteur du travail ci wàllu sécurité sociale principal de classe exceptionnelle ab formation wam mu amal ko ci wàllu juriste d'affaires ci bi muy ndaw xale la woon bu nangoo jàng loolu sax tax ay récompense yu bari mu daal di ko am moom ginnaaw examen bile di certificat ay études secondaires am ma ngi ko defee ci diggante Mbàkke Kaffrine Mbuur ak Louga li ko waraloon nag doon ay affectation yu bari yu way juram bu góor daan am ndax moom mi la ci wàllu yoon la daan liggéey atum 1994 mu am bac A3 ak mention moom sax jiitu woon ca centre ba mu doon defee foofule ca lycée Seydou Nourou Tall ginnaaw gi mu jàng lu jëm ci wàllu droit des affaires ci université Gaston Berger bu Saint-Louis atum 1999 mu amal maîtrise ci wàllu droit ak mention diggante 99 jàpp 2001 mi ngi woon foofule ca ENAM fa mu amale troisième cycle ci wàllu droit des affaires ak finance publique moom mile liggéey itamit ci ay poste yu am solo nekkoon inspecteur régional du travail foofule ca Diourbel nekk directeur des ressources humaines bu hôpital bu Grand Yoff foofule sax nga xam ne amoon na fa ci lu tollooku junni ci ay agent naka noonu mu nekkoon directeur des ressources humaines bu ministère de la santé foofule am na fa juróom-ñetti at diggante 2008 jàpp 2016 moom Galoba di yëngu ci wàllu politique nekk nag responsable APR di partie bu président Macky Sall foofule ca Mbàkke galo Ba kër gi ñu ko dénk nag ak liggéey bi nga xamante ni moom la fay amal mel na ni am nañu ko natable leeral yi ci lu ñeen liggéey bi nga xamante ni moom lañu ko dénk ci janvier atum 2016 ak léegi dinañu ko am ci quartier général bu tey bile lii de xanaa mooy renversé heureusement ba internet boobu posé ma question boobu la ñu tegal leen portrait wu ki nga xam ne ni mooy euh, Gallo Ba directeur général bu euh, SOGIP tàmbali woon nañu waxtaan bi d'ailleurs doon waxtaane surtout euh, Diamniadio yegg seeguñu Lac Rose mhm. donc bëri na ay mhm. leeral yoo xamante ni moom war na ko indi pour sénégalais yi comprendre taxawaayu autorité yi ci ville bu bees boobu noonu ñu créé tout à fait Pape Cheikh sànq maa ngi doon bëgg xuus ci ci benn question par rapport un peu ak SOGIP mhm. SOGIP ci décembre novembre 2015. la ñu ko daal di euh, sanc mhm. bu nekkee voilà bu nekkee c'est exact may wax mhm. euh, loolu un an après ba ñu commencé gas gas bu njëkk bi ca jam ñaaju c'était en 2014 mhm. maintenant ci diir boobu diggante 2015 ba 2019 c'est quatre ans Euh, te génne nañ fi ay projets yu bëri. Euh, ay projets yi nga xamante ni daanaka réaliser nañ ko euh, ba teg ko sur le sur ci lu ñu mën a gis. Mm. xam généralement les journalistes dañuy wax les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas n'est-ce pas Nata mais je pense que quelquefois aussi bu ñu defee yenn jéego si wàll wu nekk tamit baax nañu taxaw ci. peut xam tey lan mooy secret wu SOGIP parce que Diamniadio suuf bi neexul la tabax. Mm. donc c'est tellement difficile xaalis la laaj parce que sànq yaa ngi koy wax micro pieux yi nga xamante ñu ngi koy tabaxee foofu noonu ci euh, ci di ko def euh, ci ci euh, fondation yi mm-hmm. ça coûte extrêmement cher donc tey jii ñoom fa la ñu jëlee ressources fa la ñu jëlee doole lan mooy seen secret pour mën a réaliser en quatre ans li nga xamante ni moom mooy ma lim marché d'intérêt national gare des gros porteurs Radisson ak Dakar Arena ak centre d'exposition moi ça ça m'intéresse waaw li wax lu am solo la ndaxte maanaam foofu la fast jóge ah bon waaw fast track koy bu ñu koy léegi dañu ko bëgg a appliquer dans tous les domaines euh, de l' état SOGIP euh, euh, c' est vrai 2015 lañ ko lañ ko créé. mais li ko laal aussi mooy mooy vision futuriste bu président Macky Sall am ci ci wàllu gestion infrastructure publique ndax dañu changer paradigme dañu soppi vraiment doxalin ci wàllu ci wàllu infra ci gestion infrastructure dañoo bëgg liggéey bi gën a gaaw gën a gën a gën a dox. Mm-hmm. ci tey loolu bu amee dañoo euh, je pense que le premier secret c'est daaw de nga fexe ba am des ressources humaines de qualité au niveau au niveau de la de la société loolu aussi lu am solo la ci te leneen li mooy accompagnement chef de l'État euh, président de la République dafa fonk Diamniadio fa la defee congrès d'investiture am fa la defee prestation serment am fa la defee euh, maanaam képp gan gu am ci ci Afrique day wane Diamniadio parce que day wane day wane Diamniadio Diamniadio dafa nekk vitrine. bu mu fonk te lépp loo xamante ne laaj na pour mu war ko fa def pour liggéey bi gën a gaaw mu ngi ko ci def à travers le ministère des finance kon ci wàllu woowu mën naa ne jàpp naa ne que loolu moo tax tamit sunu sunu liggéey gaaw mais également ñoom ay partenaires euh, technique et même euh, euh, financier yu yu yu xarañ tamit yu ñu jàppale avec l'implication des partenaires étrangers. mais surtout it engagement ak euh, détermination de la main d'œuvre locale donc loolu moo loolu lépp c'est autant de facteur qui ont contribué à ce que tey ñu Turquie daal à ce que ñu def euh, ces résultats la jàpp naa rek fan at yi di ñëw également dinañ def yeneen jéego pour euh, pour renforcer le dispositif d'infrastructure au niveau de Diamniadio et également au niveau du Lac Rose seen ay kii la ñu moom waaw Turquie suñu ay suñu ay partenaires lañu Euh, buñ sañoon tey am ay ay partenaires chinois wala am ay partenaires euh, dison français donc le Sénégal Sénégal dafa nekk un pays ouvert Sénégalais yi dañuy dem euh, di am ay part de marché Ouganda wala di am ay part de marché Rwanda wala feneen mm-hmm. de la même manière également Sénégal dafa war accueillir les expertises étrangères pour ànd lëkkaloo ak ñi fi nekk pour faire des résultats sur le plan des infrastructures ñi ngeen tegee infrastructure yooyu monsieur Ba euh, ci Diamniadio li ngeen ci bëgg tam surtout mooy investisseur yi ak secteur privé bi surtout ñuy ñëw di implanter foofule euh, dañuy jis tout le temps euh, ay sénégalais yu nekk fii nii xañ na am benn projet wala dara mais du ñu ñëw peut-être Diamniadio implanté wu foofu noonu est-ce que yéen a ngi jokkoo ak ñoom wala communication bi moom moo des wala peut-être vous n'avez pas assez d'arguments pour les convaincre pour ñu ñëw foofu noonu li ngeen doon xaar ci jamono ji est que tàmbali nañu. non Diamniadio on a suffisamment d'arguments honoré maanaam argument dafa ëpp. parce que tey parce que tey parce que jam ñaajo mooy li mu wax sànq maanaam vitrine la ay chef d'état dañu fiy ñëw di inspiré wu ci li am jam ñaajo parce que jam ñaajo damay fàttali en 2013 àll la woon. amul woon kër amul woon néeg ay guy ñoo fa nekkoon ak ay tool. biñ ne dañuy tabax jam ñaajo kenn gëmu ko woon y avait que le président Macky moom moo gëm ne war naa mën a foncer ci jam ñaajo mu ne damay defar CICAD le centre de conférence Abdou Diouf pour accueillir le quinzième sommet de la francophonie sénégalais ñu bari si ñun kenn gëm woon ne mën na CICAD mën na en un temps record accueillir le sommet du euh, de la de la francophonie ñu taxaw tabax CICAD ñu ne kat ah mais pourquoi ñu tabax CICAD un centre de conférence ci àll ba ba pare amul hôtel amul yenn infrastructure d' accompagnement président de la république Macky taxawal SOGIP ne defaree hôtel. defar leen centre d'expo des expositions defar leen également beneen marché international loolu dafay indi li ñuy wax la synergie des infrastructures complémentarité moom Diamniadio donc état aussi wala mooy nekk précurseur parce que bu ñu toogoon tey di xaar privé yi pour tey tabax jam Diamniadio Diamniadio nam nekkoon 2012 noonu lay continuer nekk parce que dafa am état loo xam ne moo ko war moom mooy tirer dison le le secteur privé fexe ba li nga xamante ne mooy sa nga doxal ko bu si nit ñi tegee seen bët nga convaincre leen ñu ñëw accompagner la tey la preuve au niveau de Diamniadio tous les tous les logements yi ñu fay tef les sphères ministérielles privées nationales boo ñu accompagner y a beaucoup d'entreprises nationales yi fa nekk di jaay di tabax ay appartement tabax ay villa di tabax yeneen infrastructure y a le parc industriel y a l'université donc loolu lépp tey bu yeggee dafay dafay dafay tax Diamniadio tey nekk une ville si sànq si bi wax nga ne jaar naa université Saint-Louis man en 95 bi may dem université Saint-Louis dëkk bi université bi nekk àll la woon Sanaar wala Ngalel c'était c'était tey village tey ji may waxee ak yéen ville la dëkk bu mag la universitaires yi ñu fa bari fa lañ dëkk am fa kër nekk fa seen ay njaboot étudiants yi nekk fa donc loolu mooy la vocation économique d'une ville parce que bu ñu xoolee rentabilité financière parce que tey boo taxee Dakar Arena mënoo ci am Euh, mënoo ci am trois cent trois cent millions par par par par mois simpossible <clears throat> mais tey boo defee Dakar Arena defal hôtel defal leneen loolu day susciter disons une vocation sociale au niveau du pôle urbain de Diamniadio état loolu mooy rôle mooy fexe ba mettre en place les conditions pour un développement économique sociale tey ñu bëri tey ñu fay liggéey am nañu infrastructure yi am nañu liggéey hôtel Radisson en termes d'emploi au moins dinañ jël ah, bu ñu paree suñu exploitation on aura plus de 900 Sénégalais yu fi mën liggéey emploi direct sans compter l'université wala yeneen le parc industriel usine yaa nga fa yàlla a le marché d'intérêt national le marché le plus grand d'Afrique de l'Ouest marché 24 hectares la moo ëpp Afrique de l'Ouest donc mi ngi commencé na tàmbali na wala ak tàmbali na wala foofu la wax ji ne wax ji non wax ji dewul foofu Sénégal on a on a le stade parce que avant ñuy def euh, dison ñuy defar infrastructure yëpp am na liggéey bu ñu def pour pour y a un travail d'étude qui a été fait mm-hmm. à la base tey bi ñu defee tabax Radisson dañ ko joxe tey ji may waxee ak balaa at mee jeex dinañ joxe infrastructure yëpp mm-hmm. dafa laaj nag maanaam xarañ nga xool également parce que ni ngay gérer marché international bokkul ni ngay gérer stade bokkul ni ngay gérer centre des expositions tey ñu bëri ñuy wax foire Dakar c'est encombré mëntuñu fa def foire centre des expositions loolu moo tax a jóg tey balaa at na jeex tamit parce que y a un comité bu taxawal au ministère au niveau du ministère des finances parce que fa la ñu dépendre buy bu xalaat ba pare ci ni ñuy joxe infrastructure ñun à la base déjà on a les schémas d'exploitation mm-hmm. xam nañu nañ la ñu war a gérer Dakar Arena nan la war la war a mën tey le marché international ak la garde des gros porteurs pour rentabiliser financièrement ces infrastructures. donc mais man li ma yaakaar mu des mooy. nit yi lan moo leen di jëlee fii ñuy nekk di leen yóbbu foofu ndaxte actuellement jël nañ ministère yóbbu ko foofu am na ñuy liggéeyi mais li li ñuy casse tout le temps mooy péage bi nga xamante ne moom lañuy ñuy fay mooy bu ñu amulee seen auto privé dañuy sonn pour bu ñuy liggéey ak bu ñuy wàcc est-ce que waruñu woon jiital loolu pour nga xamante ne population bi dinañ sawar ci jóge fi ñu nekk. pour dem foofu mun a utiliser li nga xamante ne teg ngeen ko fa tey. waaw loolu option la mais man jàpp naa ne tey euh, ministère bi ñu jugee bi ñu bi ñu bi ñu demee nekkee Diamniadio ak tey mosul deful un an. Mhm. fi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne defuñu fa trois mois. donc dañoo nekk situation transitoire péage bi tarifu péage bi du président du du du du Macky Sall moo moo ko négocié. Mhm. da ko fee fekk ba pare renégocier waat ko pour wàññi ko. dina négocier waat. dañ koy renégocier non man li ma dañ koy renégocier waat. tey du tey it ñu war a en place des tarifs préférentiels. Mm-hmm. mooy comme li am ci yeneen dëkk yi boo demee États-Unis wala dem France wala fa dem ñu dëkk Diamniadio wala ñu dëkk euh, disons Sébikotane di emprunter chaque fois le péage. dañuy am un tarif. Mm-hmm. plus bas ki nga xamante ne nii dafay jaar de manière épisodique. Mm-hmm. kon li nga wax ni TER bi maanaam projet d'envergure la. TER bi su paree. mais pour déplacer population du du jafe. parce qu'on a une gare emblématique au niveau de Diamniadio. Mhm. loolu également lu am solo mais tout compte fait ce qui important pour man mooy que ni euh, Diamniadio c'est devenu réalité. tey it dañoo dañoo war a fexewaat ba Diamniadio tey li ñu bëgg fi ñu bëgg mu yegg ñun Sénégalais ñu jàpp ci mu yegg fi. ñañ mhm. fa affecté c'est vrai qu'ils vont être confrontés à des difficultés euh, disons euh, pour man passagères. de prison loolu lépp. dina dina dina ñëw. Mhm. ndaxte ku fa loo xamante ne amu woon bâtiment daaw jeeg ay tool fa ne woon tey ñu ne tey ñu ne ay ministère ñu nga fa man gëm naa ne que incha allah ak lii ak yeneen projet yi am dans quelques dans un an deux ans trois ans. Mhm. y aura d'autres infrastructures yu accompagner loolu. monsieur tey bu ñu gagné tey JO sans les Jeux olympiques. Mhm. de la jeunesse 2022. mais Diamniadio bu am woon. le dossier du Sénégal du jàll. du jàll en Argentine du jàll. parce que on était en compétition avec Tunisie on était en compétition avec Botswana. avec même Afrique du Sud. am nañ lépp. Dakar Arena dafa poser sur la balance. Mm-hmm, mm-hmm. centre exposition poser sur la balance. hôtel yi poser sur la balance loolu mooy tey. fexe ba université bi également fa la ñu war a def le camp le camp de le camp Amadou Mokhtar ba fa la ñu war a def fa la war a accueillir les athlètes mm-hmm. donc loolu lépp dafa nekk un processus boo xamante ni dina mën a àggale euh, disons àggale Diamniadio fa mu fa bëgg ñu àgg te également dans un début il est clair que dafay dafay yobbu TFM euh, bi ñu koy dox doo mel woon ni waaw kon gën gën gën naa taaru gën naa rafet lu ne ngi ay mboot waaw mais tey sànq lañ. te léegi ñu ngi ci 221 studio. voilà kon tey yéen ci 221 studio. grâce à nous waaw. mooy li mooy mooy hôpital si projet infrastructure si. waaw. maanaam lépp luy accompagner. lépp lu war a am ci dëkk. Hmm. prévoir ko Diamniadio. Hmm. avantage Diamniadio ak Lac Rose mooy dañu concevoir d' abord le plan d' aménagement avant ñuy ñuy ñuy tabax. Hmm. balaa moo jaxasoo comme Dakar. balaa moo jaxasoo comme Dakar. Dakar tey amatul réserve tey foo ma def hôpital. tey Dakar boo bëggoon tabax université amul amuloo espace pour tabax université. yaatu Diamniadio on a prévu un un hôpital de niveau 3 mais également on a prévu d' d' autres hôpitaux. pour le yoo xam ne privé ñoo koy def on a prévu un centre de traumatologie prévoir également un, un centre de de de de traitement des gros des des, des grands brûlés. loolu lépp dafay am jam Diamniadio incha allah université ay hôpital lépp dina am pour. accompagner le développement euh, disons. du euh, Sénégal mais côté xaalis bi tamit côté cher bi. ndax um, ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu lan mooy nekk um, ndax yéen a ngi um, calculer li nga xam ne li leen calculer ñi fa dëkk avantage yu pay paiement bi nu muy demee. waaw loolu laa wax sànq. ndax du chair comme yaa ngi wax waxi privé ak yooyu noonu ndax comme du cher. ci wàllu transport wala ci wàllu dëkk. ci wàllu transport ak li ñuy fay tamit ci wàllu wérgu yaram. waaw loolu moom euh, euh, je sais que en tout cas li ma xam ci hôpitaux également c'est que hôpital bu nekkee ci benn gox. dañu xool dañuy xool capacité dison de de financement ñu dëkk ci gox ba. tey hôpital Ndaamaatu wala hôpital Matlaboul Fawzeyni hôpitaux niveau 3 niveau 3 la par exemple. la ngay fay foofu à Touba bokk la li ngay fay CTO te à peu près vous avez presque les mêmes prestations ou bien le même niveau de prestation. donc ci fànn woowu buñ buñ ci àggee ñi nga xamante ne ñoo war ñoo ñoo yor wàllu gestion hospitali hospitalière yooyu dinañu mettre en place des tarifs qui correspondent au niveau de des populations locales. Euh, comme euh, ñi ñi jóge étranger ndax ñooñu tamit dañ bokk ci seen targeted people yi. comme Soriwut aéroport foofu la euh, ñëpp di dem like the tourism. waa xam nga jamono yi dañu ko bëgg def dañu war dañu dañu bëgg développer le tourisme événementiel bëgg développer le tourisme d'affaires. développer sax li ñuy wax le tourisme de santé parce que tey nga mën nga jógee fii ne man du fajoo Sénégal damay fajoo ju Maroc de la même manière am na étranger yu bari yu ñëw di fajoo Sénégal te avantage Diamniadio wax nga ko sànq mooy Diamniadio c'est à quinze minutes de l'aéroport de Blaise Diagne donc ci wàllu woowu jàpp naa ne que loolu moom dina am parce que déjà étranger yi dañu am dañu wóolu euh, maanaam médecine Sénégal mm-hmm. boo demee ci hôpitaux yi fi am yëpp. Euh, Euh, di nga ay étrangers yu fi yu bëri fay nekk te it jàpp naa loolu dina am jam ñaajo parce que on aura des hôpitaux de dernière génération ñu fay def mm-hmm. déjà am na hôpital au niveau de euh, hôpital d'enfants bu jam ñaajo mu foofu tamit donc loolu lépp dafay nekk une complémentarité pour relever le plateau technique de Diamniadio et du Sénégal. monsieur Ba ah, ñu ngi ci man li ma bëggoon laajte maa ngi lay nuyu di la dalal man li ma bëggoon laajte mooy ne. Euh, ma baal ma ma baal ma ma eggali s'il gentil. li ma la bëggoon laaj euh, monsieur Ba mooy ne voilà on parle de ville émergente et tout euh, infrastructure yi fu nekk mu jollee fa. Euh, déjà dafa am loo xamante ne on dit que foofu suuf si déjà pour tabax fa dafa metti léegi man je me dis que dama toog ma xalaat ma ne man mi tey euh, bëriwu ma xaalis tey ma ne woon euh, ma am fa benn poukus ma ne xaaral ma ñëw tabax déjà pour suuf si rek pour def fondation bi lu metti la donc euh, defe naa néew ñu doole yi déjà am na ñu problème ñoom pour am accès foofu ci wàllum suuf si ak tabax si beneen bi ma la bëggoon laaj mooy ne tamit CICAD voilà donc biñ ko defaree léegi am na yenn événement yu fa jot a am francophonie ak yeneen mais je veux dire que li ngeen li ngeen investir dafa bëri mais boobu ba tey da ngay xool ne bu dee wàllum rentabilité ci wàllum coût ak euh, téye beeg defar bi ak li ñu fa xamante ne moom lañ fa war a def te defuñu ko est-ce que tamit du benn perte par rapport à voilà li loolu di représenter ak. manifestation yi nga xamante ne war nañ ko fa mën a def te boobu ba tey euh, seetlu naa événement quelques événements rek ma fa moo jot am monsieur Ba. waaw foofu laay euh, njëkkee fi nga daanele ma c'est que SICAD vocation du du def bénéfice état du tabax ay infrastructure pour def bénéfice. état day day état day tabax ay infrastructure pour accompagner un politique développement économique et social. Euh, loolu mooy vocation état. tey bu ñuy tabax état bu ñuy tabax euh, SICAD wala ñu tabax euh, euh, disons Dakar Dakar Arena pour récompenser la performance des lions du basket lañ ci jublu du am xaalis waaye day accompagner développement économique sociale kon ci fànn woowu li ñu ci mën a wax mooy que rentabilisation financière ñun loolu mooy sunu loolu mooy sunu mission te it loolu mooy sunu kër de métier te loolu moom mooy commencé nañ ko déjà nee naa la hôtel Radisson am na benn pour pourcentage bu ñuy fay ci seen chiffre d'affaires te bu njëkk état mën na tabax hôtel du du du passé contrat ak ci koy exploité. mu nekk un manque kon ci fànno woowu je dama lay rassurer pour pour dire que le CICAD sa vocation première du véritablement def di def bénéfice wala di accueillir disons n'importe quelle manifestation. CICAD mm-hmm. vitrine la tey euh, leneen li mooy euh, ci wàllu ci wàllu suuf si nga am doole wala nga ñàkk doole. mënoo am suuf au niveau du pôle urbain de Diamniadio waaw parce que loolu contrainte d'abord la mais tamit dañoo bëgg maitriser li nga xamante ne moom lañ fay tabax mm-hmm. donc état fay tabax ak ay privé yoo xamante ne dañu par dañu am suuf par la voie du de, de la délégation générale à la promotion des pôles urbains DGPU mm-hmm. ñoom ñooy ñëw nga am projet immobilier wala nga am benn projet nga euh, nga def étude de faisabilité bi yëpp soumettre leen ko ñu apprécier jox la suuf mais nga am doole wala nga ñaax doole mënoo am suuf au niveau du pôle de Diamniadio parce que effectivement ça nécessite des études géotechniques pour pour euh, lie à la qualité du sol loolu c'est une vérité mais ñi nga xamante ne ñoo fa am suuf di ay privé dafa def ay appartement ay ay disons ay ay villa mhm. dañu respecter cette condition là te it état bi la amee suuf si cherut tey Diamniadio mën nga am appartement à moins de vingt millions. wala nga am euh, disons une villa vers les quarante cinq cinquante millions. comme ça vrai quoi, que quoi. nekkul non <laughs> non nekkul nekkul lu cher. par rapport ak tey ba nga am villa bu jàkkaarloog sa ministère. lool tey boo ko bëggee Dakar mënoo ko am moins de cinq cent millions. dëgg la aussi dëgg la aussi. da am sa kër mu jàkkaarloo ministère bi ngay liggéeyee. nga am sa kër tey nga bu la neexee nga dëkk Somone wala nga dëkk Ngapar wala nga dëkk fenn liggéey si Diamniadio bu la neexee nga jógee aéroport France wala États-Unis wala feneen ñëw wàcc jaay euh, aéroport. def sa conférence ci cadre delluwaat te doo dugg ci embouteillage. donc c'est ça le coût économique li nga xam ne moom la état bi di. di di di ci gagner pour faciliter en fait l'implantation de, de voilà, la on va on va on va on va enchaîner dans quelques minutes ci point politique bi il est presque une heure du matin te te te te te te naata am na ay ay ay ay invité ci ginnaaw léegi balaa ngay poser question bi xaaral ma nuyu leen au moins euh, puisqu'ils sont déjà là euh, tey on a été très foot grâce ak euh, Sadio Mané gis naa la ngay jubilé yow mi jubile woo man ma gis la nga daw diggante Wakaam ak monument de la renaissance Sadio Mané Sadio Mané et depuis avant-hier on a créé benn hashtag boo xamante ni ñoo ngi ko tuddee tous derrière Sadio Mané du euh, tey soirée bi ñu leen bëgg a proposé juste après euh, Gallo Ba directeur général bu euh, SOGIP dinañu fàttaliku 2002 rappelez-vous bërki démb 31 mai ci la ñu ko fàttaliku moo tax Henri Camara sera avec nous ci plateau bi on a aussi d'autres gaynde yoo xamante ni ñoo ngi fii euh, Papis Demba Cissé Mbaye Diagne ak euh, Pape Alioune Ndiaye on va parler sport ak li nga xamante ni moom la ñuy préparer actuellement euh, ci Coupe d'Afrique am na reportage yuñ ci préparé donc dañ leen di nuyu Henri Camara ñu ngi lay nuyu merci d'être là ak sa ak sa taalibe yi. waaw Pape bu baax. kontaan nañu ci ci teewaay bi mais booy est-ce que ñu ngi lay jox ñu ngi lay jox àllarba. waaw sama booy moom mooy ay booy yu booy gentil nañ booy yu am cër. Uh-huh. donc voilà kontaan tey war a ak ñoom plateau bi tey. Uh-huh. qu'est-ce que ça te fait euh, li ngeen def euh, ñoom ñu bëgg a jaar ci seen ay tànk tey boo toogee ak ñoom di wàcc rejoindre ñu ci plateau bi quest que ça te fait. Eh, ça fait plaisir am ay raq yoo xamante ne <coughs> dañu yàgg euh, seetaan équipe nationale temps 2002. tey bu amee occasion bokk ak ñoom plateau bi nii donc euh, xanaa di am mbégte rek. Euh, euh, Papis Demba Cissé yow tamit euh, ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir aussi tey ni nga ñu nangule bokk ci invité quartier général qu'est-ce que ça te fait nekk ak tonton Henri tonton Henri tey. waaw tout d'abord maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci plateau bi. di di naan di nuyu sénégalais yi. di baalu ak ñëpp di naan ñëpp déwéniti waaw Henri moom grand la boo xamante ni man dama ko dama ko yàgg admirer c'est c'est pas question ni parce que plateau bi lañ bokk grand la boo xamante ne dañoo nekk en contact permanent uh-huh. et euh, di ñu di ñu conseiller lu bëri ci euh, ci milieu football bi donc euh, dama koy dama koy ziar di ko di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam uh-huh. et di ko wax ne ni que na fi yàlla na fi yàgg te aussi di nuyu sama sama gars yi. di leen ziar bu baax di leen naan euh, euh, bienvenue et et aussi euh, di leen naan aussi bonne chance ci ci fuñ jëm. voilà xam naa ne ku la ku la buñ la bàyyi woon tuuti nga di Madi Mandinkoolu. <laughs> Ah, waaw waaw ça c'est sûr di leen nuyu sama Madi Mandinkoolu. nga ah. doon dem. <laughs> léegi duñ la may dara pour ay mbaadi mandinkool li baalal ñu ko rek tey li ñu Sadio Mané def jege ba mbaali toj Angleterre waaw loolu rek boo ci doon lee mbaadi mang non aussi aussi côté boobu dama koy dama koy nuyu di ko féliciter di ko wax na ni ko yal na ko jig eh, yal na ko lool et euh, yal na ko yobu ba fu ñuy ba fu ñuy dem nii aussi ci beneen compétition bi mooy Coupe d'Afrique bi amiin yal na yal na fa wërsëg bi euh, ya sotti ñu wërsëg bi ndax ñu mën a indi euh, lépp loo xamante yëpp boo xamante ni que sénégalais ñu ngi koy séntu ci euh, ci compétition bi yal nañ ci yàlla defal jàmm. boo déggoon wolof fii tocca. Ah. waaw maa ko wax. <laughs> ana beneen booy bi ana beneen booy bi paas ñu ko Mbaye Diagne euh, mbay ñu ngi lay nuyu yow tam gërëm la ci teewaay bi tey bu ca kanamee di nga ñu rejoindre ak euh, ak Henri Camara euh, qu'est-ce que ça te fait li ma wax Papis laa lay wax d'être tey fii ci plateau bi ak ku mel ni Henri Camara. waaw asalaamaaleykum maa leen di nuyu ñëpp ñu nekk foofu noonu ci plateau bi. Mhm. di rafetlu taxawaay bi tey. Mhm. di nuyu sama grand yi taxaw fii nii Henri. suñu grand la grand bu baax la. ak mhm. Papis ak euh, Papa Lune. ñu mhm. wax nii rek euh, voilà maa ngi nuyu itam euh, ñëpp ñuy seetaan émission bi. Mhm. waaw voilà Papa Lune normalement invité surprise la woon mais comme dafa sob Euh, moom fexe na ba buruxlu euh, alors que surprise la nekkoon quoi il est où Pape <laughs> Badou euh, ñu ngi lay nuyu yow tamit kontaan nañu ci ni nga ñëwee nar a bokk ci quartier général bu tey bi qu'est-ce que ça te fait d'être ak Henri Camara nar bokk ak moom jotaay bi surtout fi ñu jëm. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñoo ñun ñëpp nekk ci plateau bi. Mhm. waa du du leneen lu dul fierté je pense que Henry woy bi yëpp benn la donc grand bu baax la koo xam ne fu mu la fekk walla nga fekk ko fa. lu mu xat-xat-xat dina la dina la lancer benn conseil dina am lu mu yokk si yow mhm. Papis aussi si euh, lancer boobu la nekk donc suñu ay grand yu baax lañ mhm. et chance rek lañ am am ay ay ay grand yu mel ni ñoom bu ñu toppee seen ay tànk daal duñu duñu réer en tout cas tey euh, euh, Dakar dina mel ni Istanbul ndax yéen ñett on va vous recevoir ñu ngi leen di xaar ci plateau bi Papis Demba Cissé Mbaye Diagne Henri Camara ak Pape Alioune Ndiaye ñu ngi jëm Coupe d'Afrique ci euh, dëkk bu naan Égypte di ko am ci télévision Futur Média balaa ñuy àggali waxtaan bi ak euh, Galaba Mamadou Ndiaye fàttaliwaat téléspectateurs yi fii ba fajar euh, mën ngeen commenter ñaari hashtag la am bu njëkk bi mooy QGTFM 2019 bi ci topp mooy tous derrière Sadio Mané. tey de boobu moom moo gën dox sax tey partout en Afrique sax laay wax parce que vraiment africain yëpp gis ni ñuy toppee ci ginnaaw Sadio Mané du moom rek ndaxte amoon yeneen nationalité Soumaré yëpp moom tamit yëpp yëkkatiwaat na euh, histoire du Sénégal ci compétition bu toll noonu Ligue des champions nekk na lu am solo Pape Cheikh. Mhm. di fàttali euh, suñu mbokku téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne internet yeneen hashtag yi di nga xam ne mooy euh, moom la ñuy def guddi gu nekk depuis ba koor gi commencé ba léegi Instagram dañuy def arobase GFM SN bu ñu demee Snap dañuy def arobase GFM tiré du 8 def Sénégal numéro téléphone bi pour tey suñu invité yi nga xamante ni mën nañ jàppe ni équipe nationale bu Sénégal bu démb ak tey ak bu ak bu tey tey mën ngeen ci poser seen nga xamante ni conseil namoon nañu Henri Camara mën nañu ñëw euh, tey poser seen question si suñu numéro téléphone bi 77 moom nga xamante ni la ci teg pour euh, internautes yi ak ñi nga xamante ni ñooy euh, mooy téléspectateurs yi Pape Cheikh mbokkam et voilà y aura d'autres surprises ah samedi donc QG samedi bu ñu neexee xaabaabal ba ca kanam Oumou Tall qui embrasse Aïssatou Paye Fall Oumou Tall nee na daf la fan quoi elle adore comment tu parles <laughs> nee na mu ngi lay béggee euh, Tata Mia euh, nee na lu tax euh, Crépin Diatta ñëwul xëj na mu defal ñu surprise ñëw bu ca kanamee donc c'est ça deuxième partie bi ñu àggali ak Galoba directeur général bu SOGIP sànq ba tey ñu ngi waxtaanee Diamniadio ak Lac Rose waaye baax na itam ñu ñëw ci point bu am solo muy point politique bi mm-hmm. peut-être je vous laisse le soin ngeen jeexal <laughs> partie Diamniadio ak Lac Rose naata <laughs> Aïssatou Marie-Louise mais laataa ñuy tëj laataa ñuy tëj tuuti rek rek ci pôle urbain yi sànq ba léegi yaa ngi naan am na yu bëri yu ngeen euh, prévoir mm-hmm. maintenant qui va payer tout ça kan mooy kan mooy fay loolu lépp Lac Rose tamit ci la bokk <laughs> la bokk kañ ngeen di commencer Lac Rose euh, et puis yan infrastructure euh, ngeen fa bëgg a def pour commencer mm-hmm. parce que pare goo leen mm-hmm. que ça soit pour Diamniadio Lac Rose moo commencé bu leen man de xam naa ni liggéeykat la waaw mais ñu ah, loolu aussi ah, je pense que question bu am am solo la li benn complexe sportif euh, te un grand terrain de football de cinquante mille places stade stade olympique liggéey euh, boo xamante ne nii euh, travaux yi war na commencer normalement fii ak trois quatre mois parce que dafa bokk également ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy infrastructure yi war yi dalal les Jeux olympiques président de la République Macky Sall jëloon na engagement bi te commencé nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko war a réaliser pour mu gaaw en tout cas on a prévu avec nos partenaires euh, quelques mois pour ñu ñu livrer ko. li koy financé maanaam état Sénégal moo koy financé parce que boobee yàgg yàgg nañoo bëgg am capital lu bees yàgg nañoo bëgg a désengorger dakaar nee naa la ci wàllu embouteillage en 2015 y a une étude qui a été faite buy war ne on perdait au moins 103 milliards par an 103 milliards tey boo ko dugalee Diamniadio wala nga def ko Lac Rose di nga am benn embryon de ville boo xamante ni de manière progressive année bu def boo ko defee dina mën a tax li ñu bëgg ñu am ko donc c'est nous qui en tout cas Sénégal moo ko jël en charge intégralement euh, leneen li tamit mooy au niveau du Lac Rose euh, y a le plan d'aménagement bon euh, qui est prêt ça reste à être validé au plus haut niveau déjà y beaucoup de de réunions de concertations avec ña fa dëkk. parce que Lac Rose bokkul ak Diamniadio. Diamniadio pôle urbain bi kenn dëkk kenn nekk foon. Lac Rose am na ñu fa nekk di exploiter le sel. parce que c'est le lac. zone bu baax la. Lac Rose am na ñu fa nekk am seen oberge am seen hôtel déjà. am na ñu fa nekk di def euh, di di bay. au niveau au niveau des Niayes. te su te li ñu bëgg ci Lac Rose mooy conserver. la fa nekk ba pare améliorer ko. à travers une politique d'urbanisation moderne. te vocation Lac Rose mooy fexe ba mu nekk une zone de développement touristique agro business mais également fexe ba li nga xamante ne ni moom mooy attractivité ci wàllu industrie événementielle. mu nekk mu nekk mu nekk au niveau du Lac donc euh, dans les prochains mois euh, fii ak décembre incha allah man jàpp naa ne dañ lancer le pôle. du Lac pour démarrer effectivement les travaux mu mel ni Diamniadio incha allah. voilà ku ni ku ni ku ni Galoba ni Mbacké. Ah euh, a même vu des gens qui euh, kañ la Galo di jël bo mairie euh, yooyu yëpp ay ay <laughs> ay points importants. waaw gis ku ni ku ni Galo ni Mbacké. Uh-huh. man nag xam nga man sama sama tànk bëri na Mbacké di ak Touba. Uh-huh. am na yoo xamante ne xam naa ko ci. Uh-huh. et que en terme de mobilisation. Gallo dafay mobiliser mobiliser. ki dafa baax si may ma am na ay jeunes ginnaawam am na ay jigéen ginnaawam day mhm. mobiliser. mais le problème est que à chaque fois Gallo muy référendum présidentiel local Gallo du am résultat. du gagné il y a un problème de leadership. <laughs> c'est quoi le problème. <laughs> ndax ndax ndax euh, da ngay yaakaar ni. Euh, euh, euh, réalisation yi nga xamante ne amul Mbàkke président réalisa réalisé wu ko loolu sanction la bi la population bi def en tant que yow politicien à Mbàkke wala problème ñàkk déggoo leaderu APR yi nga xamante ne moom lañ leen di accuser à Mbàkke moo waral loolu loolu mooy sama première question oui maanaam question bu bu bu làmboo ay question yu bari la <laughs> mais li may njëkk a wax mooy sant waa Mbàkke tamit disons seen sant ñi ngay wax parce que bu ñu nee mobilisation ay nit ñoo koy def ay jigéen ñoo koy def ay jeunes ñoo koy def euh, bu dee ay ñaan ay kilifa ñoo ñuy jàppale di ñu ñaanal donc man mënu maa fay waa Mbacke waa Mbacke ñoo ma bëgg seen xol di ma di ma jàppale. te li nga wax Pape Cheikh par rapport ak mais de Mbacke jàpp naa ne buñ ci àggee rek. maanaam dañu dénk Mbacke ndax ñu liggéey Mbacke. parce que ñu politique li ñu ci dugal ñaari mbir la man 2013 laa commencé def. bi ci njëkk mooy accompagner président de la République Macky Sall ci politique parce que dañoo créé suñu mouvement am taxawaay au niveau de Mbacké moo recevoir ma ne mën naa ko jàppale te boo ba léegi ñu mu ñuy mu ñuy jàppale ñun tamit ñu koy jàppale ci li muy liggéey pour assurer le portage politique parce que leader politique ñaari rôle la am boo kuy politique bëgg politique à la base ñaari rôle nga am bi si njëkk da ngay assurer le portage politique pour porter li nga xamante ne moom la président di def moom la régime bi di def nga fësal ko wax ko population yi bañ xam ko ba pare approprié wu ko beneen responsabilité bi mooy nga fexe bay aussi sa dëkk lañ bëgg nga porté ko ba ki nga jàppale ci politique muy président de mu defal leen ko loolu bu ñu ko àgg bu ko amee ñun dañu sant yàlla bu baax a baax ci fànn woowu jàpp naa ne population Mbacké tey bu dee dañu analyser objectivement ay résultat xam nga aussi Sénégal li si ëpp dañuy wax rek dañ daan noo gagné nañ Mbacké gagné nañ partenaire président partenaire département Mbacké parce que département Mbacké lu tax mu fës Touba tax. tey Touba bu nekkoon Saraya wala mu nekk euh, Podor résultat Mbacké du feeñ. parce que bu dee ci wàllu résultat élection présidentielle président bi mu dem élection li mu bëggoon mooy ku koy indil ay voix. parce que élection présidentielle li ñu seexla mooy ku am majorité président de la République la mu am département Mbacké en 2019 mësu ko am bi mu commencé politique bi ñu commencé politique léegi on a eu 67 voix sur les 45 départements du Sénégal 11 départements ñoo ñu ëppale score. non moo moo tey tey jii xam nga wax nga wax nga wàllu jànk dañu gañe mais tey dama ne boo bu dee bu dee jaar nga lekkool tey nga tey mën ngaa bokkoon ñaar ñaar ñaar nit bokk classe. bokk terminal kii am moyenne douze jël premier kii am moyen seize jël vingtième. ça dépend ci niveau classe. ça dépend niveau classe bi. tey mënuñu am 67000 voix ëppale Saint-Louis ëppale Guédiawaye ëppale Kaffrine ëppale Linguère ëppale feneen. ñu ëppale maanaam foofu yëpp duñu ko wax. mais défaite bi la ñuy wax parce que y a la charge symbolique de Touba. moom mooy biaisé l'analyse. kon pour wax ne président euh, Macky Sall en 2012 APR en 2012 bu dee biir Touba président il avait lay voix Abdoulaye quarante amoon mille voix loolu mooy wane que Touba ak Mbacké dafa nekkoon bastion PDS ndax élection bu ñu fay dem tey jii kenn du xalaat ne mag président de la République wala APR mën na perte Fatick wala perte Matam wala perte Ziguinchor perte perte euh, Podor kenn du jàpp tamit ne. Idriss Seck day perte élection à Thiès li am nag foo Thiès am Podor moo am Mbacké parce que y a un passif boo xamante ni il fallait ñu combler ko tey it ko combler ci 3 ans wala 4 ans wala cinq ans on est passé de mille voix laay wax on est actuellement à 67000 voix Mbacké gi ma dëkk au niveau de la commune élection 2014 on était à 2400 voix tey jii élection yi wees au niveau de la commune on est à on est à te progression bi ñuy def en termes de de suffrage opposition ils ne font pas la même progression 2012 à, à Touba PDS avait 48 000 voix en 2017 élection législative yi ils étaient à 60 000 voix ñu on était à 25 000 voix élection députés yi passé en 2017 on était à 30 000 voix donc 30 000 voix en 2007 nga ñëw tey nekk en en en deux ans nga def 67 mille voix bokk ci département yi gën a contribuer à la victoire du président je pense que population Mbacké dañoo war a gërëm sant leen te président aussi xam na effort bi bi bi ses responsables def au niveau local. Mm-hmm. te it xam na it ne que Touba ñu ngi koy jàppale. Mm-hmm. dama ne autoroute Ila Touba kese bi ñu koy inauguré sëñ Mountakha la mu waxoon ñu dañoo doyoon sëkk dana da dee Touba da dee ko président yow maanaam bu la kenn fayut sëñ Touba dina la fay. sëñ Touba lañ am te dënk nañ la sëñ Touba. moo tax ñun campagne bi dañuy dem bi ñu daan def campagne di def tournée dañuy wax ñu élection yi amul ci xel ñaar on va te suñ combat moo nekkoon ñun waa Mbacké ñu fës ci victoire président Mbacké au niveau du département on a 16 commune 16 communes la ñu tout am toutes les 14 communes APR moo koy gagner. Touba ak Mbacké dañ dajewul maintenant il est clair que tamit ñun lu ñu bëgg mooy président gën a gestu département Mbacké déjà lam fa réalisé ci wàllu infrastructure amul benn président bu fa def en terme de volume financier auto ila Touba man pour man doy na sëkk pour wane yéene bi président am pour jàppale le département de Mbacké parce que Mbacké amul sa hôpital fa jëm si dama ne def na loolu ñu ngi tabax hôpital au niveau de trois ultra moderne y a des projets yu ñu def ci wàllu assainissement Touba ak Mbacké ñooy les seules villes du Sénégal yoo xamante ne dangay gis ay population entière bàyyi seen i dëkk bàyyi seen ay village ñëw toxu si fa duñu am ndox duñu am courant duñu am dara ren ji may waxe yow am na courant sancaan yi am nañ def nañ fa ndox tey jii loolu y a développement buy am foofu bu dañoo li ñu bëgg nag mooy président yokk loxoom au niveau de la commune de Mbacké surtout parce que tamit bëgg nañu tey stade bi nga xamante ne mooy préoccupation des jeunes majeurs ñu yeggale ko président jël na ci engagement te man gisaguma engagement bu mu jël ci Touba te defagu ko la semaine passée j'étais avec le ministre du sport Matar Ba maa ngi koy nuyu au dem naa ba toog ak moom ne ko mais projet stade bi Mbacké fu mu toll mu ne ma le dossier au niveau de la DCMP pour bientôt on va démarrer Mbàkke yeyoo na am hôpitalu mag tey may wax yéen Mbàkke amul amul bloc opératoire Mbàkke amul radiologie Mbàkke amul spécialiste pour mën a jël en charge les personnes âgées Mbàkke amul foyer des jeunes Mbàkke amul euh, dison am na ay foyer religieux keroog sëñ gànn message message bi ñëwee fi toog daf ne sëñ Tuubaa ko bi mu jugee bi mu jugee ci géej gi ma euh, sëñ Cheikh Anta moo ko moo ko teeru teral ko daal Salaam tey diggante Mbacke ak Daaru Salaam ñaari kilomètre la tey bu sañoon bu tey bu tawee doo fa doo fa jaar amul foo jaar amul éclairage public amul dara ñun suñu combat tey mooy fexe xar kanam Mbacke soppeeku distance yu ñu def ko ay deux fois deux fois fexe it ba Mbacke penc yi fa am tey boo nee Mbacke tudd sëñ Cheikh Ibrahima Fall fa la ay xalifaam dëkk boo nee Mbacke tudd sëñ Mame Mor Diarra fa la xalifaam mu nga fa am na yenn penc njaxala ak Mbacke dimba fépp foo xamante ne dafa laaj tey ñu soppi xar kanam gox yooyu ci fànn woowu ñu sunu combat mooy fexe tey Mbacké am infrastructure de base tey Mbacké en 2000 jaar naa fu nekk jàng naa Kaffrine jàng naa Louga jàng naa euh, disons feneen ba ma fay jàngee ay année 92 Mbacké moo gënoon développé euh, Kaffrine moo gënoon développé daal Mousti moo gënoon développé yeneen dëkk dëkk yooyu yëpp tey romb nañu Mbacké. lan ko waral. li ko waral bari na mooy que ni dañ ko dañ ko waroon jël en charge. depuis l'indépendance defuñu ko te it. président Macky Sall mi ngi fi depuis sept ans aussi. président Macky Sall mu ngi fi depuis waaw dama ne xam nga tey mënoo fexe tey mënoo ne damay defar auto Ila Touba. injecté ci quatre cent vingt milliards ba pare da nga defar stade da nga defar foyer jeune defar leneen. da ngay defar euh, infrastructure de base yooyu noonu ngay wax autoroute bi am na solo nga baal ma autoroute bi am na solo <laughs> loolu kenn du ko werante mais euh, infrastructure de base yi ngay wax tamit xañ na balaa ngaa wax di di jaar ci ay taleeg yooyu am na lu ko jiitu damay ne tey Touba mooy la référence démographique au niveau département de Mbacké ñu ngi fay tabax fi may wax ak yow ni hôpital ultra moderne de niveau 3 tey jii waa Mbacké Touba Mbacké benn dëkk la c'est une même ma ne mënoo commencé defar assainissement Touba def ci ay jéego defar autoroute Ila Touba def ci 420 milliards defar ay forage au niveau de la commune de Mbacké parce que boo nee ma santé moo ëpp ma la ndox aussi boo ko amul doo doo wér nga def fa ay forage au niveau de Mbacké Sam Thialé amul woon forage def nañ fa forage donc y a y a eu des yu état bi di def maanaam naam doyul nag te it deuxième mandat bi loolu moo ko waral dañoo bëgg incha allah bala moo jeex ñun waa Mbacké en tout cas la commune que ñu am fa loo xamante ne nii dina sopp suñu xarkan mu dëkk loolu mooy suñu combat te it jàpp naa ne war nañu mën a jàppale davantage euh, xale yi parce que xale yi Mbàkke ak Touba amuñu fu ñuy fooye amuñu ay foyer des jeunes amuñu amuñu stade amuñu leneen mm. donc ci wàllu woo aussi war nañu mën a gën a jàppale da nga ma jiitu sànq ci stade bi parce que dafa nekk benn plaidoyer boo xamante ne foo taxaw da nga koy wax <laughs> Ah, man jaaxal nga ma de. man maam jaara laay tudd Mbacke. wax nga dëgg wax nga dëgg ak kii ak Touba. wax waaw nit ñi ko. d' accord waaw maam jaara amul benn problème <laughs> euh, bi dafa nekk loo xamante ne fu mu taxaw da kay da kay ka da kay da kay def plaidoyer da kay présenté. et sa nan la tuddati le ministre de sports euh, ba mu ñëwee joxe woon na date ndax yaakaaroon ne nag dina nekk ay wax waxeet ay loo xamante ne ay lenteur administrative waaw du fast track daal. non jàpp ba ne que dina nekk dina nekk dina day nekk ay wax waxeet parce que ministre bi ministre li mu wax il avait pris des engagements fermes <laughs> non seulement ministre jël na engagement ferme mais président de la République 31 décembre bi wees bi mu recevoir les journalistes jëlaat mhm. dafa réitérer engagement pour defar ko ban mhm. jàpp naa ko loolu moom lu féete boor la mhm. donc il est vrai qu'il y a une, impatience des jeunes parce que lu ñu lu ñu lu ñu yàgg bëgg am la te te amaguñu ko moo tax man mi dama ciy def li ma mën. pour pour les jeunes génération mais loolu laay wax saa su ne ma ne ñun politique boo ci duggee da fexe def def fa loo xamante ne bu ëllëgee da nga ko fay bàyyi. tey ñun bu ma fexewoon tey ba Macky am hôpital te loolu ci laay xeex saa su ne. Mm-hmm. ñu am euh, ñu am stade. jumaay Mbàkke xewar bi président de la République daf ci def ay def xala alal ju bari pour mu pour mu yegg damaa bëgg incha allah ba li ma bëgg mooy mu yeggale ko ñoo julli si fa donc loolu suñ ko àggalee ba matal ko ku mel ni man mi mën naa bàyyi politique da ci leneen bàyyi xale yi àggale lan mooy sa problème ak Abdou Mbacke Ndaw après mooy sa problème ak Abdou Mbacke Ndaw meeru meeru Mbacke meeru Mbacke ak tey suñ la suñ la su la su la parti bi su la parti bi présenté wu woon ci ci ci local yi lan ngay def non aw ma benn aw ma benn problème ak Abdou Mbacké Ndaw euh, li may wax ni waa Mbacké ñu ngi may ñu ngi may dégg euh, bon ñoo ñoo bokk génération bon benn problème lañu mën a am parce que peut-être bokkuñu vision wala bokkuñu tamit euh, engagement pour la pour la ville man dama jàpp ne dëkk bi su ma ko yoroon je ferai mieux et plus que que moom mais mais leneen li mooy ama moom problème personnel mm-hmm. la preuve élection yi ñu weesu dañoo toog waxtaan sama kër ñu ànd campagne pour le président pour pour, pour, pour président Macky Sall man maa waroon jiite comité électoral bi ma ne ko jiite ko pour ñu am ndam. donc man awma problème personnel ak kenn. peut mën nañu am problème de principe pour pour euh, disons pour lu ñu liggéey donc ci fànn vraiment amuñu benn xarma yàlla ak benn responsable parce que damaa jàpp ne Mbacke boo dëkk Mbacke dëkk Touba am ci say jëfalin ci say ci say jëf wala ci say wax loo xam ne dafay waroog dayob euh, dafay waroog wor ma dëkk ba. Mm-hmm. donc ma tax amuñu benn problème ak kenn. kon ci fànn woowu loolu laa mën a loolu laa si mën a wax. parce que jamono ji ñuy waxtaanee dialogue national euh, dialogue politique ci wàll bi ndax yéen soxla woo leen foofu ci département bu Mbacké yéen waa APR ngeen def dialogue en interne ba pare balaa ñuy wax sax dialogue politique. parce que yéen ci seen biir ni nga ko waxee nii mooy xaj na bu ngeen di def ay mauvais résultats ci élection yi weesu xaj na féewaloo bi tamit ci la ñu ko junjee sànq. waaw damay féliciter président de la République waaw loolu aussi c' est important. et puis wax nga ko sànq ni résultat bi mauvais wul. waaw waaw su ko su ko maanaam su ko. mauvais wul baax na non mais su ko. non non waaw mais xam nga ñun waa APR. dañoo dañuy féliciter d' abord président Macky Sall pour pour pour boobu. Euh, boo wootee nag maanaam ñëpp du ñëw mais ñu am solo yëpp bu ñu ñëwee parce que boo gisee euh, disons moom euh, ay kilifa yu fi nekkoon ci réew mi Fabre Ibrahima Sagna. gis ma Mamadou Niang gis Iba Der Thiam. ils sont venus en kaan avec des CAN. Ah, ay mag lañu de. waaw donc loolu engagement la pour le pays. te jàpp naa ne que bu ko neexoon du ko def mais bu ko wootee dialogue c'est pour avoir un pays stable ba pare ëllëg bu fi bàyyi bu fiy jógee bàyyi fi woy woo xamante ne nii dafay fédérer démocratie Sénégal. amul ci politique benn dëkk booy dem fekk fa unanimité wala union intégrale. maanaam nit ñi bu ñu anti politique dañuy bokk parti mais mënuñu bokk bañ a mën nañu bañ a bokk vision mm. mën nañu bokk ay principe mën nañu bokk nu ñuy xalaatee ak nu ñu wala nu ñuy doxalee parti bi mm. donc ñun am Mbàkke amuñu problème mu entre les responsables mm-hmm. à chaque fois qu'il y des élections on fait une campagne ensemble pour pour pour pour pour pour am ay résultats mm. te jéego yu ñuy def man daf may conforter que ni incha allah année yi di ñëw mënuñu am problème mu victoire mu ngi mel tey président Macky Sall bu fi newoon bu fi jógee dans quinze ans vingt ans ku bëgg a gañe Fatick di nga wax ak moom ku bëgg a gañe Podor kam bëgg nga moom moo fay falu bu ko jàppale mu gañe te jóge na fi nekkatu fi kon y a bastion yoo xamante ni maanaam pour nga conquérir ko wala nga reconquérir ko dafa laaj temps te ñu ngi ci dans le temps l'action tey jàpp na incha allah li li euh, en tout cas suñu yéene ci Mbàkke departement bi sénégalais xam nañ ko. Mhm. waa Mbàkke xam nañu ko loolu doy na ma sëkk pour euh, pour pour enclencher dafa la procédure. allez dernière question Abba. maa ngi xam naa ni mhm. kenn may moom wax waaye euh, <laughs> ma daal di daal di kii rek damay dégg ah, sa wax ñun Mbàkke ñun waa Mbàkke ñun waa Mbàkke yow est-ce que occupé woo occupation bu bari ci Lac Rose bi ak. jam ñaajo ba pare saa yi ngay gëj Mbàkke est que du toog bi nga toog ci plateau bi moo tax ñun waa Mbàkke ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk Mbàkke est-ce que du ñuy faral di gëj Mbàkke lu dul maggal mooy nu yóbbu wala ay fête yoo xam ne ay fête yu religieuse la est-ce que tamit xaar le président de la république Macky Sall te nit ñi ñu ngi feebar Mbàkke ah nit ñi ñu ngi am doom nit yooyu yëpp ci wàllu hôpitaux yi est-ce que tamit euh, loolu xaar président xaar président te yéen ngeen am ay moyens wala am ay relation yoo xam ni mën na leen dimbali ngeen def li nga xam ne mën ngeen woon def Mbàkke trois laaj nag xaw ma ndax euh, ma baamtu ko wala. Euh, jarul baamtu yow dafa mel ni dëkkoo fi. amul amul benn réew ci amul benn dëkk ci amul benn dëkk ci Sénégal. amul benn dëkk Sénégal bu bu am hôpital nit tabax ko à part hôpital Louga je crois avec euh, le feu Djili Mbaye c'était un multimilliardaire à part moom Touba ñoo tabax hôpital te it c'est des forces contributives des des de des murit ñoo ko def. moo tax ma ne seen ay relation waaw euh, man amuñu amuñu moyen pour taw hôpital. dañuy dañuy ñaan président la mu defal ñu ko balaa mandaam bii di jeex. loolu mooy suñu combat. Mhm. leneen li Mbàkke man maa ngi waaj maa ngi jàkkaarloo waa Mbacke xam nañ ne man du ma fa démb fa laa ndogoo ah baax na démb sëñ Abdou Daaru Salaam mooma mooma mooma ci ci këram laa ndogoo bokk ndogu ak si am sa bu sañ bu sañ sooy bi du toog week-end wala ñaari week yu ma demul Mbacke je suis présent le terrain te loolu c'est pas lié la politique mhm. maa nit ki dafay pour man nit ki am relation fusionnelle wala relation passionnelle ak sa dëkk mhm. ñun fa ñu dëkk dañ fa dañ ci am fierté bokkuñu ñoo ñuy nekk Dakar bàyyi suñu dëkk ñu Mbàkke lu ñu am fa lañ ko yóbbu te waa Mbàkke xam nañu. voilà euh, lan lan mooy kàddu yu mujj euh, euh, monsieur Ba ci jotaay bi tey laataa ñuy enchaîner ak deuxième partie bi. waaw kàddu yu mujj mooy sant la sant mhm. waa waa disons waa TFM pour mhm. euh, pour ñëwaat fii mhm. euh, di wax ne que ci wàllu ci wàllu infrastructure euh, le meilleur reste à venir pour pour le pays te jàpp naa ne que fii ak ay fii ak ay ay ay weer dañuy gis yeneen liggéeyu yu commencé jam ñaajo dañuy gis également les premiers coups de au niveau du lac Rose pour soppi xar kanamu réew mi tey di gërëm waa Mbacké ak boo nee waa Mbacké c'est tout le département di sant responsable yi fa nekk ñu jàppale yëpp xam nañu seen yéene xam ne seen cofeel mhm. ñu ñaan yàlla tamit li ñuy am yéene ci Mbàkke yàlla mottali ko pour que li am Thiès am Fatick mhm. am Daaru Musti am feneen mhm. mën am Mbàkke dëkk yooyu yëpp am nañ solo mais ëpp ñu dayoo Mbàkke macha allah en tout cas ñun kontaan nañu suñu xarit la euh, frère euh, euh, Marianne Siva la tey defe naa suñu diggante am moom bu rattaxee Marianne def ci joué woon bu bu am solo muy koo xamante ni xale la am na jom te nangu naa liggéey donc ñun ndaw ñi à chaque fois bu ñu gisee président jox confiance ndaw ñi dañu koy rafetlu donc baaxoon na tey mu teewoon ci plateau bi ñu ko waxtaanee jam ñaajo ak Lac Rose waxtaanee itam taxawaayam ci jàppale waa Mbacké en tout cas ñun ñëpp kontaan nañu et euh, ñu ngi lay encouragé ni nga ñuy encouragé bu ñu la bu ñu la seetsee euh, voilà donc bokk na ci kilifa yi nga xam ne ni euh, am na taxawaay bu am solo ci réew mi ak ndaw ñi surtout merci encore Galoba directeur général bu SOGIP Dieynaba Seydou taal yi itam ñu ngi lay gërëm bu baax Assane yi da ngaa war a dellu si ci fajar gi ñu ngi lay gërëm très rapidement Dieynaba loo ci dolli waaw avant finir waaw man damay tàggu waaw waaw moo ma tàggu la noonu waaw waaw <laughs> <laughs> bu nekkee permettre mu ko Pape Cheikh mm-hmm. lundi damaa bëgg incha allah ñëw quartier général parce que en fait dafa am benn point boo xamante ne il faut ñu waxtaanee ko mhm. mooy ñi nga xamante ni dañuy tabax surtout tabax en hauteur nañuy bàyyi xel euh, ci li nga xamante ni temps yi bi ngi tas dëkkandoo yi mooy kon lundi je viens lundi je viens jeena <laughs> mais ma ma gërëm yow tamit euh, ña nga fashion rapidement euh, <laughs> ña nga fashion moom moo ñawal robe bi donc elle est au 77 723 00 75 sama rakk jooju ñang merci pour la robe et puis comme d'habitude les bijoux bijoux euh, Khadim Niang luxury bijoux Baye Khadim Niang 77 997 83 sañse seen yëf la moom yéen waa télévision Futur Média waaw sañse moom seen affaire la n'est-ce pas n'est-ce pas Gallo waaw non li moom maanaam plateau yi moom waaw euh, en tout cas ñun am nañu habitude saan télé wallaahi mais plateau yi mel ni moom bëriwul ci bëriwul ci télé yi dëgg la dëgg la feeg la am wallaahi waaye tamit ça m'a permettre de disons de euh, de, de, de formuler des prières. Mhm. Euh, pour euh, disons Marianne Siva. ndax moom sunu sunu sunu rakk la woon mhm. Mhm. ñoo dëkk fii ci Dakar. ak sa ak sa famille ñoo tamit. donc ñu koy euh, yàlla yàlla xarit ko àjjana. amiin amiin professionnel la woon ku baax la woon ku yaatu. loolu xam ci moom bu yàgg. waaw yàlla na ko yàlla. teeru ci àjjana yi gën a kawe. amiin amiin amiin wala jullit di euh, bi. Mhm. di wax ne rek euh, jeunesse pour la renaissance de Yoff. Mhm. suba dañuy organiser ndogu. boo mhm. xamante dañ koy jox ñi nga xam ne ay néew di doole lañ Yoff lañ koy defee. voilà ki ñu ko paree rek mooy maire bi. merci ak Soxna Adja Thiawlaay. Ami Top moom moo leen jiite kon suba de incha allah. nettoyé nañ jullukaay bi tey. ngir préparer julli iid gi di korite yàlla nañ ko fekkee ak jàmm bàyyi voilà naata duñu <laughs> <laughs> Pape Cheikh merci beaucoup euh, man tamit euh, je pense que c'est mon dernier passage fii ci mais tous les jours ci télé bi. <laughs> voilà am na yu ñëw sax duma ci xaaral mm. a été un plaisir de partager le plateau avec vous. wax dëgg yàlla ak invité euh, ni tamit yi am nañ mbégte tamit ci ni ñu invité woo seen kër parce que boo nekkee ci télé tamit da ngay wu ci kër sénégalais donc mm-hmm. am nañ yaakaar tamit ni liñ fi jàll. dañuy dem ba miin la gis ku ci romb sax tàpp la fekk yow da ngay ni xam nga ko mais da mi ngi noonu di leen sant di leen gërëm bu mm-hmm. baax di remercier monsieur Gallo Ba également mm-hmm. euh, di sant euh, Oumouha Couture ci sañse bi mi ngi fi Wakam voilà man Wakam laa dëkk donc du ma génn Wakam <laughs> téléphone bi 525 la 50 euh, 65 Oumouha di sant bu baax tamit sama yaay mm-hmm. waa ak sama tante bi nga xam ne mi ngi Paris mais chaque samedi nee na man maay tax muy veillé ak yéen ñëpp bien évidemment voilà c'est ça Adji Kouaté Paris maa ngi lay nuyu Adji et puis merci à tout le monde voilà ta aussi on te remercie rendez-vous sur RFM ak euh, ci euh, télé bi ci journal bi nga ñuy euh, présenté mu ngoog merci encore Gallo Ba directeur général bu SOGIP Dieynaba Seydou Ba à lundi merci Nata laata ñuy recevoir Henri Camara mbay Diagne ak ki nga xam ne ni mooy Papis Demba Cissé Pape Alioune Ndiaye pour parler sport Aba lay bàyyi léegi ku dugg mu jox ko sukkaru kooram parce que ba ñu tàmbalee ba tey téléspectateurs yaa ngi woote te ñoo leen digoon ay enveloppe yoo xamante ni yi cinquante yi cent mille ak ay tissus yoo xamante mën na doon seen waajtaayug euh, korité Aba ay ci mu donc bu ngeen wootee ci numéro yooyu nga xam ni euh, moom mooy affiché rek euh, ñu mën a xool naka la ñuy def ak yéen xeetu teraanga yëpp mu ngi fii nga xam ni moom mooy euh, ci biir plateau bi donc xeetu te te ngeen maam may xeetu teraanga yooyu yëpp mu ngi fii ci biir plateau bi donc bu ngeen wootee rek ci numéro yooyu ñu xool lu ñu ci def enveloppe xaalis yaa ngi noonu mu téye li nga xam ni moom mooy ay ay ay ay ay ay ay lu am solo daal yëpp a ngi fi yëpp a ngi fi ngeen mën a woote rek ana ku ne ci liñ bi salaamaaleykum allo. allo oui. allo. allo oui allo oui. ma ngeen def soxna si. ñoo ngi fi rek sëñ bi. maa ngi lay ziar. ñoo ngi delloo ziar. est-ce que xam nga ki ngay waxal. waaw xam naa ko kay. kan la. naa borom koppati bi. waaw ñaw <laughs> <laughs> wallaay man la wallaay man la. ñaw ma xàmmee. borom MDR. borom koppati bu ñuul bi laay waxal. yaa ngi ci jàmm. <laughs> sant yàlla bu wér. aja nañu ñëw ci. fan nga ñuy woowee ak mën nañu xam ñun moo ñuy man maa ngi wootee Kaolack maa ngi tudd Kumba. Mm-hmm. léegi dama démb ba tey maa ngi woote. Mm-hmm. parce que démb macha allah dañu kontaan dañu kontaan trop. waaw yàgg nañ di kontaan sax ndax quartier général macha allah warul sax di am weeru koor rek. Mm-hmm. surtout nag ci weeru koor bi dañuy dem sax ba duñ bëgg weeru koor bi jeex. ah il faut mu jeex nag di di ñu di ñu accompagner. foo koor gi jeex xam naa xam naa sa genre bi moom bëgguñ koor gi. continuer waaye ñun buñ sañoon mu continuer. ay <laughs> jé ay jé foo koor gi jeex baax hmm. baax yi ci am. Hmm. di leen ñaanal yàlla rek yàlla yàggal taxawaay bi. amiin yàlla defal leen sutura. amiin defal leen wër parce que li ngeen di def macha allah yéen ñi toog foofu mënu leen a xam dayo gi mu am. jaajëf ñun ñu leen di suivre ñun ñoo mën a xam dayoo gi mu am. Hmm. kon liñ mën a def rek mooy ñaanal leen yàlla ñun dañuy bëgg ci yéen mais ñun mënuñ leen a fay kon yàlla mi am fay yàlla lañ leen di bàyyeel. amiin yaa rabbi. Pape Cheikh nag ñun dañoo kontaan ci moom. Mhm. di ko ñaanal di ko sant di ko gërëm. Mhm. ak ñi mu àndal ñëpp. Oustaz asan it ma kontaan ci moom parce que wane na yar wane na teggin. Mm. ku baax la te liñ naan xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak i mag. ku baax la ku dox la ci weeru koor ak yeneen Oustaz. ku baax la te macha allah naw nañ liggéeyam kontaan nañ ci li muy def. Mm, mm, waaw bu ñu sañoon daal quartier général. ca kaw ca kanam. jërëjëf. ah di continuer di wéy. léegi incha allah. man fukk léegi chaque mois léegi chaque mois. di nga am benn plateau boo xam ne plateau bu spécial la ci QG. incha allah loolu waaw chaque loolu chaque mois la. ak événement bu mag bu am ci réew mi dinga am plateau uh-huh. spécial boo xam ni. maa la ko wax léegi man pour léegi man fi ñu toll nii. fi toll pour commencer. waaw man fukk. waaw bàyyi fukk. ak nga xool leneen loo bëgg ci plateau bi. waaw yaa ko moom. eh ak koppati bu ndaw bi. <laughs> donc man fukk abaa fukk muy ñaar fukk. am naa ñaar fukk daal. waaw ak loo bëgg ñu tegal la ci. boo ci tegee ci si mu neex de. bu ma ci tegee. loo koy nga ñawlu. loo koy waaw. nee na loo koy ñaw. loo koy ñaw. ah robe bu jot ku lay ñawal. <laughs> sama tailleur macha allah. looy fay sama tailleur sama tailleur. ma bu ko déglu wérul <laughs> dafa génne ci hôpitalu dof yi ñëw. Eh, jëlal sa 100000 ak sa nga dem. ah. wa dama ni jëlal sa 100000 ak sa piis nga dem. waaw merci beaucoup bul raccroché comme ça ñu jël numéro téléphone bi euh, ci euh, ginnaaw merci d'avoir appelé continuer d'appeler euh, Abba jël leen bu ko defee bu joxee man ni ma joxe muy lu am solo lu ñu leen di jagleel bi màkk baa ngi fi tirage bi daañ ko def fi fileek suba pour xool kan wala ñan le quartier général nara yóbbu euh, màkk son yi bu mbaay euh, moo ñuy euh, amal ay cant tey ci guddi gi laataa ñuy ñëw ak moom defe naa mën nañu accompagner monsieur Galoba directeur général bu SOGIP permettre Henri Camara ñëw rejoindre ñu merci beaucoup monsieur le kontaan nañu lool yàlla na yàlla oyofal yéen bi et puis dinañu la seet si waat ñu recevoir tout de suite Henri Camara Mbaye Diagne Papis Demba Cissé ak ki nga xam ni mooy Pape Alioune Ndiaye euh, bu leen fàtte euh, hashtag bi QG 2019 la Sophie ak xëdd bi mu ñuy toggal oui on peut on peut on peut on peut on peut bouger comme on veut def ko de façon très naturelle venez nous rejoindre euh, ci plateau bi bu ko defee ñu mën a tàmbali waxtaan bi tey ci quartier général Sénégal mu ngi jëm Coupe d'Afrique suñu gaynde yi ci club yi ñu nekk kenn ku nekk yaa ngi def yu am solo Henri tonton Henri <laughs> merci d'être là on est content bienvenue Euh, on se retrouve juste après cette page de pub bu ko defee ñu doog a tàmbali waxtaan bi ak gaynde yi nga xamee ni ñoom la ñuy euh, passeel guddi gi tey ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal. Sénégal TFM lek bëgg salli dawama wasit وبناي دواما وزي سلاما اذكر خلاما وبناي صلي دواما وزي سلاما Ivan وهب الودادا خل المرادا يا من عفادا إلى كرام حبل البرورة خن الخرورة عبد السرورة ليلة خلامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا انترام واذكر خلامي واعمل كلامي بلا ملامي جرم برم جارم سد لساني نوير جناني سافي الغماني وزبران الجاني ناير جناني سافي الغماني وسيد برايا دايرة بخطة مايرة فلتك في جاورة لمن يرى fi yow yarama borom ñaareem an xisxiyaali min addalaali wa bil xalaali xalbi saraay خذني عتابا خذ الكتابا واقبل متابا يا سفيرا wax ba taaba jarama borom yaare ya xayra rabbi xayral murabbi tayabta qalbi ba datida ya xayra rabbi xayral murabbi tayabta qalbi musab borom yaare salli wa sallim على المتابعين وكل ياسين بلا انتهاء رسول jërëjëf Serigne son yi bu mbaay euh, pare gu ñoo ak ndax tey dañuy dem ak yow ba fajar ci euh, quartier général bi euh, jërëjëfati Cheikhul Khadim yaa ngi waat nag lu am solo loo xam ni balaa ngay tàggoo dinañu ko fàttaliwaat téléspectateurs yi muy spécial ndéwénal boo xam ni di nga ko amal lendemain Korité di ndéwénal sant Serigne fàllu Mbacké lendemain Korité ca Médina Gounass en face station Touré à partir de 9h nga fas yéene cee njukkal Soxna nday Diallo soppe yi nga xam ne ni euh, ñoo ko fas yéene fekkee loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp euh, dinañ ci wax ak yow euh, laata ñuy tàggatoo alors quartier général bi tey on sera très foot Henri Camara mu ngi fii Mbaye Diagne mu ngi fi Papis Demba Cissé mu ngi fii Pape Alioune Ndiaye itam mu ngi fii ñoom ñëpp ñoo ñu defal honneur tey ñëw d'abord pour célébrer taxawaayu Sadio maane tey et puis wax ci fi ñu jëm di compétition bu mag Coupe d'Afrique Sénégal narca daa dem Aliou Cissé joxe euh, listam euh, bu yàggul euh, ñoom seen xalaat ak seen taxawaay ci kenn ku ne club bi nga xam ne ni yaa ngi fay évoluer alors tey pour démarrer on a un cadeau pour Sadio Mané j'aimerais Papis nga nga xool ñuy dugg si sa mbokk yi ñu ñu bégal Sadio Mané mi nga xam ñu ngi ñu xamal actuellement il est en train de regarder QG ne ñu yóbbee lii yëpp tey ci guddi gi ay bëggër boog yooyu yëpp ak juróom-ñaari caqam euh, mu wax lu rëy euh, ñi dégg joolaa xam nañu ni euh, njukkal bi mat na sëkk Sophie dégg nga li mu wax lay li mu wax lu mu wax njukkal na Henri Camara daal di njukkal Sadio ne nañ ñaanal Lions yëpp daal ca kaw ca kanam nan la ko waxee ci joolaa <laughs> nee na ko imi imi ibete ibekala sama baat bi du xam nga saajo Sadio Mané dafa baax fang-fang <laughs> waaw lii daal dégg naa ko na jajak fang-fang fang-fang laa ci dégg Ari a pop na jajak pop na jajak fang-fang waaw ku joueur rek pekku jajak fang-fang fang-fang waaw <laughs> voilà donc ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax merci euh, ci passage bi ñu def bi ñu déggee ni tey dañuy recevoir gaynde yi euh, nawle saajo Mané yi et que tey ñun ñëpp on a supporté euh, Sadio Mané je pense que mën nañ def tour de table dañu nuyu Henri merci d' être wax naa la sànq ak sa rakk yi tey noo gisee Sadio Mané. waaw Pape d' abord damay kontaan ci invitation bi. Mhm. Sadio dafa nekk jour boo xamante ne. Mm. dafa mérité fu mu nekk. Mhm. parce que dafa liggéey. Mhm. nekk xale bu yaru. Mhm. Euh, xam li mu bëgg. te professionnel dëgg. mooy Sadio. donc euh, tey fu mu nekk nii daf ko mérité. Champions League bi mu gagné tey da ko mérité. daaw demoon na final mu perte ko. ren mu liggéeyaat. Mm-hmm. ak équipe gëm ni day demaat. Mm-hmm. mu dem gañe ko. Mm-hmm. te instant yi ni Sadio dafa nekk di di yóbbu turu Sénégal foo xamante ne. ah oui grave. gëñ na fa egg. gëñ na fa egg te ñun ay magam nañ suñu rêve moo nekkoon di jouer Champions League. gañe ko comme moom. Ah. mais tey moom moo fi nekk. Ah. donc lañ ko war a ñaanal. mu jikko comme ni ko Papis waxee mu jikko ndax Coupe d'Afrique bii di ñëw mhm. moom ak moromam yi nga xamante dañuy dem mhm. yàlla nañu yàlla dimbali amiin bu demee ak moromam yi Coupe d'Afrique bi ñëw fi parce que sonn nañ trop ah ouais non dañu solo parce que ñun sénégalais yi mënutuñu werante fenn ah. man façon dëkk bu ne def naa ko mais suñu africain bu ne lay dajal nag. fu werante amee fu dañ ma ne yow noppil gañoo leen dara. dëgg la de. mu ne tekk. et pourtant on a tout ce qu'il nous faut loolu moo ñu loolu. jour bu ne jaar na fi façon jour bu ne te tey yàlla dimbali nañu am nañu ay joueurs am nañu défenseur am nañu góol am nañu milieu de terrain yu baax am nañu ay attaquant ñaan ñi wa jege nii rek. Mhm. gañe nañu coupe ñaan ñi. même bu demul. mais ñaan ñi rek gañe nañu coupe. boo mu si dolli woon muy muy waaw. <laughs> Euh, looy wax ci saajo Sadio Mané tey. oui man euh, comme ni ma ko waxee tout début damay damay nuyu euh, sénégalais yëpp. ak mhm. nit ñi di ñu seetaan. damay wax ci saajo c'est juste c'est un c'est un fierté. Mhm. man rakk la ci man. Mhm. donc xanaa juste kontaan gis ko li muy def sur le terrain. parce que ça fait vraiment. vraiment plaisir bah oui. de, le voir, euh, de le voir comme ça. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai vu le, le, début de Sadio Mané. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, il est là. lépp la boo xamante ni tout joueur boo xamante ni que yaa ngi def métier bi t'aimerais bien être euh, à sa place. Bah oui. Aujourd'hui, il a eu la chance d'être là. Mm -hmm. Et euh, je pense que Nico Henry waxee il, a, il le mérite vraiment. Ouais. Ah. C'est juste. Euh, à l'encourager di ko ñaanal ko yal na ko jig et euh, yal na ci yeneen topp amin amin amin Mbaye waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu fi toog ñëpp euh, di wax ni rek Sadio moom kuy wax si moom du pare parce que nit ku baax la te tey fu mu egg si fii mérité na ko waaw tey yàlla moo tepp mu egg fii mu egg nii tey ñun ñi nga xamante ne ñun suñu rêve la bugg egg foofu waaw kon nag euh, ñu def lu di ko ñaawaan rek euh, yàlla na ko yàlla musal si seytaane amiin amiin yàlla guddal carrière moom teg si ay ballon d'or teg leneen ak leneen vraiment nit ku baax la daal voilà c'est tout ce qu'on lui wax ci euh, Sadio oh, waaw xam naa dama leen di damay renforcer rek si lu ñu wax mhm. je pense que c'est amplement mérité je pense que Sadio a été très constant ci ci saison bi yëpp mhm. donc euh, tey ce soir euh, mu atteindre la Graal comme on dit mm. donc du ñu def lu dul euh, féliciter ko déjà et puis di ko encourager mm-hmm. di ko wax juste mu garder cette même fin et que mu mu wax boppam que ne affaire bi waru fi yam mm-hmm. donc tey alhamdulilah il va venir euh, sain sauf en nekkin national mhm. di ñaan yàlla rek réussit bu mu am tey euh, ñun sénégalais yëpp ñu am ko incha allah. Mhm. ci coupe d'Afrique bi. voilà on va dañuy def séquence souvenir 31 mai 2000 2000 2002 ñun ñëpp ñu ngi koy euh, fàttaliku tey bu ñu gisee boy yi ni ñuy évoluer à chaque fois suñu xel day dem ci seen génération Henri e bërki démb la woon 31 mai. Euh, tey ñu koy euh, fàttaliku euh, baax na ñu ñëwaat ci seen taxawaay ci période boobu noonu. waaw dëgg baax na si mais xam nga rek comme li may wax ñun suñuy temps def nañ ko bu pare mais tey temps bu ñuy joué daf fekkoon ñi tey ñi ma sama rakk yi ma bokkal plateau bi tey ay xale nañu woon. dañ doon dañ doon rêvé tey def na ñun. te tey yàlla dimbali leneen nekk nañu ay ay professionnel ba tey ñu ngi dem défendre couleur équipe nationale. Mhm. bon di leen ñaanal rek ñoom tamit bu ñu demee ñu def luñu lu raw quoi maanaam mhm. dem gagné ji. Mhm. coupe bi parce que loolu moo ñu manqué tey. voilà on va revenir sur les images euh, euh Pape Samba parce que euh, ci lay gën a ci lay gën a neex euh, qu'est-ce que ça vous rappelle yi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg wone ak génération bii bi Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh comme ni ñu ko waxee gannaaw euh, bu mu nuyoo gars yi Euh, nuyu bu baax euh, seen di rafetlu bu baax seen teewaay comme ni ñu ko waxee 2002 yi duñ ko fàttaliku ci atum euh, fa duñ ko fàttaliku duñ mukk ci histoire Sénégal mu nekkoon match bu am solo xanaa Henry Ly interpellé waat ko bien vrai que joué wul woon match boobu mais bokkoon na ci campagne boobu surtout qualifié au Sénégal ci but en or bi contre Suède mu nekkoon match bu histoire bi nga xam duñ ko fàtte Henry actuellement nga nga mooy recordman bu équipe nationale bu Sénégal ak 29 buts 99 sélections actuellement ñii ñi ngi waaj mun naa wax ni ndax Pape Cheikh tey dañu fi dajalee mun nañu wax ni ñaari génération bu ñoom Henry yi peut-être euh, Ali euh, Papis Demba Cissé nekk ci diggante bi ñaari ñi nga xamante ni ñoo jëm euh, Coupe d'Afrique ñoom la ñuy wax nouvelle génération kii dem Coupe d'Afrique kii dem na Coupe d'Afrique ñun ban Sénégal di delluwaat Coupe d'Afrique nekk pour une première fois favori te yombul ci équipe ci àddina sax la ñu wax ñun ñu joto seetaan football wala gis ci yombul ci àddina ñu am benn équipe bi nga xamante ne day dem ci compétition musul gagné dara nekk favori ouais c'est tout d'abord c'est boo xamante ne parce que moi le mot favori mm-hmm. j'aime pas j'aime pas du tout duma ko bëgg a dégg parce que parce que pour man dafay indi benn faiblesse ci euh, dans la tête des joueurs parce que moi je me rappelle bien le moment qu'on partait avec Amara et euh, dañu jàppoon ni que on était des favoris hmm. et euh, ça s'est vraiment mal passé donc euh, man leçon la boo xamante ni que dama ko dama ko jël jàngat la boo xamante dama ko jël ci ci football man le mot favori man pour man tant que t'as pas gagné dans la compétition pour moi tu tu n'existes pas. parce que toutes Donc, les équipes sont, sont voilà, bonnes en fait. tous les tous les équipes sont favoris. Hmm. aujourd'hui maintenant. tu, tu, vas te retrouver au fond du, de la Beria. C'est une équipe, euh, aujourd'hui, tu vas trouver une équipe de foot qui, qui aujourd'hui, bon, mhm. bu jouer ak Sénégal pendant 90 minutes ça va pas être facile donc léegi mun nañu wax ne jamono bi ñëpp mun a fubal. Mhm. donc euh, munoo wax ne ne kii mooy favori wala kii mooy favori c'est juste la t'as t'as 90 minutes à jouer chaque match c'est juste à les donner à fond et euh, espérer avoir quelque chose trois points li mooy li ma si wax rek mooy moom comme li mu wax rek Sénégal instant yi joueurs yi ñu am donc c'est normal ah Sénégal nekk si kanamu équipe bu africain yëpp mais man li ma gis ni bon buñ la buñ demee ba nommé la nommé la si Afrique yaay favori favori équipe euh, Afrique yëpp yaa nekk si kanam. Mhm. man je pense que ni c'est c'est mérité parce que Sénégal joueurs yu mu am c'est normal. ñu ne ñu ne Sénégal tey mooy favori équipe euh, en Afrique c'est normal mais tey loolu il fa il faut bu ñu jugee ci terrain bi tamit ñu wone ko ko waaw man loolu laa gis bu ñu duggee ci terrain bi ñu wane ko parce que c'est pas la première fois ñun suñu suñu temps 2000 en 2000 2000 2000 2000 2004 2006 à chaque fois dañuy am équipe yu baax bon. dañuy am joueur yu baax am équipe yu baax mais finalement duñu gagné dara ko lan mooy manqué mental bi laaj nañ ko Aliou toujours Sénégal dañuy wax dafa am problème mental. Mm. équipe dañuy am équipe bu baax ñu dem ci compétition africaine euh, compétition continentale yi mais à chaque fois dañuy am problème toujours gagné. te duñu sori mais effectif bi moom daf fiy nekk. Mm-hmm. non lenn moom man def naa cinq coupes d' Afrique. 2000 2002. 2004 2004 2006 2008. mais 2000 2000 moomu si gënoon mun naa wax sax neex parce que dafa newoon ay joueurs yoo xam ne kenn xamu leen mm-hmm. comme li Pavis di wax di nga ñëw si benn dinga nga ñëw Coupe d'Afrique comme ay Libéria comme dafa cité tur rek. Mhm. nga xeeb ko mu ñëw teg la lu metti mhm. ñun 2000 bi ñuy dem kenn xamuñu te ni dañ buggoon wane suñu bopp. 2002 mhm. bi ñu ñëw nag ñu xam ni parce que dañu qualifié woon. Coupe du monde ñu wane suñu bopp ne par force dañuy dem final. suñu ñun bu ñu doon toog avant match. réunion entre ñun mooy suñu objectif mooy dañuy dem final. temps boobu toj ngeen dëkk bi. voilà di baali rek. toj dëkk bi kañ. Ah, xew su ma gis loolu. Henri Camara fii El juuf Diouf fii. c'est grave c'est grave loolu. mais xam nga rek yàlla yàlla yàlla mooy def loolu ko dañ dañ dañ nekkoon temps dañ nekkoon ay booy rek. toll loolu dootu fi amati. Henri muy romb bu ñëpp daw. waa Sicap bi. c'est c'est exceptionnel ces moments-là. oui mais comme li ma la fa la tolloon sax. xaw ma sax man xaw ma yaa ngi woon ci 2002 yaa ngi woon 2002 bi ngeen ñëwee ngeen war a prouver parce que boobu yéen ñëpp xamoon nañ leen waaw. voilà léegi bon ñëpp fàttali nañ la. bàyyi bi ma coupé parce que man sama boobu dafa ndaw dama <laughs> mais non mais gis nga Ndiaye ñoom fi ñu nekkoon yaa leen laaj seen problème mhm. la mooy seen problème mental bi quoi damaa dégg mhm. eh, ne man damaa for ci yooyu bëy ne ñoom euh, am nañ ñoom les moyens pour ku ciy dem mhm. nga yóbbu sa paa ku ciy dem nga yóbbu sa paa ñoom damaa for ci yooyu bëy waaw ku ci dem. da ngay ñii ñii wala grand yi. Hmm? ci histoire football bi nga xam moo ne ci réew mi. Ah, bu ñu daan dem da nga yóbbu sa paa comme tey maag yow ñooy joué attaque yow lañ classé man classé wuñ ma ma ni paa bi fexeel bu dugal pour match bi di ñëw te xamul ni buñ dugalul mën nañoo toog donc man dama dégg. loolu am na ci équipe bi dañuy sàcc. man yàgg yàgg yàgg naa ci équipe na ci équipe man yàgg naa ci équipe lu ma la wax rek du dañ. mais sàcc ay daal amoon na fa. bon xëy am na ay problème yu sew yooyu mais yooyu moom ay dégg-dégg laa si am comme yow mais ay yóbbu paa moom loolu musul am mais ku nekk di nga am sa ñaanu bopp sa ñaanu waajur di nga ko am balaa ngay dem di nga am sa ñaanu sëriñ c'est c'est normal Sénégal lañ nekk man je te dis parce que yëf yëf la xamante ne des fois da ngay da ngay toog nga koy dégg ah yow de waa Casamance dégg man waa Casamance la ça c'est sûr et euh, et dama et dama fier ah donc euh, <laughs> euh, affaire affaire boobu nit ñi di ko waxtaanee pour man ça n'existe pas mm-hmm. parce que man booy bi mun nga ko laaj peut-être suma bokk ak ñaari sélection mhm. mais booy bi mun nga ko laaj man sama néeg moom lañ tuddee woon la Babylone pour le Babylone ça veut dire foo la ñëpp di daje. maa maa indi sama bras de casse parce que man mënuma dox te naanuma lëwal. fa ngeen non dañuy <laughs> foofu lawol <laughs> fa la ñuy nekk di naan ataaya mm-hmm. ok waaw Babylone la Babylone la foofu Babylone la daal tu vois ñëpp a fay daje donc foofu foofu je peux te dire que tey man damay ñëw ataaya suba keneen ñëw fekk ataaya ataaya tu vois ah. jour fa la ñuy dajee des fois gars yi bu ñu sangoo seen bopp sama néeg lay lay woowee wala seen seen t-shirt bu ñu toogee war a dem tëddi fa la ñuy fàtte seen t-shirt. Mhm. maa ñëw dajale. xam nga dajale teg ñàkk pour non pour <laughs> te dire que a mooy manqué. tout le temps bu ñuy dem sur le papier en fait on nous dit on a les meilleurs. Euh, bu ñu toogee soit ñu classé ñu meilleure équipe favorite comme actuellement wala ñu ne ci ñi ñi war a a gagner coupe bi lañ bokk mais dañuy xool ne bu ñu demee soit duñ sori wala buñ soree tamit jël coupe donc lan moo manqué d'après vous moom du la mun tontu mm-hmm. mais fii Sénégal lañ nekk ñii gas ñi di suul duñ dem mm-hmm. man foofu rek laa yem on aura toujours cette question qui va venir mm-hmm. pourquoi duñ dem pourquoi duñ dem mais Pape mais Pape moom Henri mu ngi ñëwaat ci laaj bi ma laajoon parce que maa ngi koy wax ay dañu yóbbu ba mu weddi mais nee na Sénégal lañ nekk ñii di gas ñii di suul mais tontu Henri fu mu na bañ nekk c'est pas dans le joueur il veut te dire tu vois xam nga euh, Sénégal la quoi waaw yëf la boo xamante suñu réew la. mu mhm. tous on le connaît fii ku ko xamul da ngay da ngay da ngay wax lu la neex. Mhm. nous tous on le connaît. mais on vit am na ñoo xamante ne dañu nekk ci biti nekkuñu ci biir te bëgg nañ arrêté ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir. sincèrement wax dëgg yàlla man xaw ma ci xaw ma ci. mais Papis mais QG ngeen nekk. adduna yëpp ak leen seetaan problème bi ndax du ngeen ko wax fii ñu réglé ko. kan la fa kan moo koy def. Euh, ñun de xaaral rek <laughs> problème bi problème ko réglé. <laughs> Uh-huh. xam nga lu ñuy def ñaan yàlla rek. mu dimbali ñu suñu rax yi di dem. Mm-hmm. yàqkat yi ñu may ñu jàmm yàlla kale leen daal mm-hmm. bu ñu demee. ñu andil ñu ko. du problème bi kenn mënu ko ko bëgg a defee pour que ça soit bien organisé discussion bi tey parce que dañoo bëgg a jógee 2000 ci seen génération. Ah. wàcc ba ci booy yi ça nous permettra nous ak euh, téléspectateurs yi euh, ñu am fituk accompagner leen ñoom parce que ñun euh, mu neex wala mu naqadi tout le peuple est derrière notre équipe nationale. Ah. moo tax ñu tàmbalee ak fàttali sa génération wane image en même temps commenté ci ak yow oui y a des jafe-jafe c'est vrai mais defe naa leçon bu ñu koy tiré dañu koy tiré ci lu yàgg. ñëw ci euh, lu bees li nga xamante ni ñun euh, ci euh, gaam boobu la ñu nekk ak ak suñu équipe nationale Henri. waaw ah, dëgg la parce que sànq yaa ngi doon wax. problème mental. xam mm-hmm. nga ko suñu wax la. moo ko wax defe naa wala wala. Ah, mais loolu tam dafa bokk si dafa bokk si footballeur quoi footballeur boo amul mental bàyyil football quoi. Mm-hmm. parce que ñun bon suñu fort tamit mun nañu wax mentalement dañu dañu am dañu dañu dañu foroon mm-hmm. mentalement. parce que lu ñu doon wax tam dañ koy def mu du ñu woon ay vrai copain du ñu woon ay vrai façon xeex bu ne dégg ngeen ko du ñu woon ay vrai copain mais ñu duggee si terrain bi. Mhm. ay vrai gay na ngeen di gis. Ah. mun nga wax ak kenn ci biir terrain bi ngeen saagante mais lenn rek moo ñu tax a jóg ñoom seen coach xam na ko xam naa da leen koy wax. Mhm. lenn moo tax a moo moo ñu tax a jóg mooy victoire. Mhm. jeex na. en tant que observateur actuellement ak distance bi lan nga gis ni nouvelle génération bii nii moo manqué donte ci yéen am na kenn Aliou Cissé laay bëgg a wax. moo jógee ci yéen génération 2000 2002 ñëw nekk coach bi lan nga gis ni moom manqué effectif bi ñu yor nii. bon loolu moom franchement du mu si mun sore parce que équipe bi jege ma ko trop pour mun a wax ni lii moo si manqué lii moo si manqué mais daal comme li may wax rek man fu ma nekk damay damay encouragé samay rakk sama sortie moom mos a def si équipe nationale mooy loolu. gis nga liste bi gis naa liste bi. ban commentaire nga si def. coach bi def na soi am da nga koy respecté def naa jël na meilleur joueur yi nga xamante ne tey euh, ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk en forme te ñoom la wóolu ñoo xamante ne bu ñu demee tey euh, bu ñu demee dinañ ñu am nañu yaakaar ne dinañ ñu andil ndam ko. Mhm. on va on, on toujours ci période de 2000 bi. Mhm. Euh, euh, démarrer coupe du monde. ci banc bi qu'est-ce que ça t'a que beaucoup de questions se sont posées période mhm. boobu. waaw mooy li ma daan wax léegi rek. joueur professionnel boo amul mental bi boo nga bàyyi nga bàyyi football ko parce que man lu ne teg naa ko man li ma daj joueur bu ko daj équipe nationale ngay bàyyi football wala nga dof. lu ne daj naa ko xam kenn mënu wax lépp. Hmm. mais lu ne daj naa ko. ban gën a fës. waaw mënu ma wax ci gën a fës quoi mais li ma li ma bëgg ma. il faut nga wax ko mais bi nga jàppale ñi nga xam ne euh, ñu ngi si euh, nouvelle génération bi. non du ma mën a wax lii su ma ko waree su ma ko waree wax day fekk bon ñoom ñu soxla ko woo ma man ma jox leen conseil. Hmm. parce que samay ràq nañ parce que man aw ma lu dul jox leen conseil. Hmm. mais Pape wax na lu am solo de mooy ni nga démarré ci ban 2002. Hmm. ci Sénégal France ci ban bi nga démarré au moment wu ñu jógee kan. CAN 2000 Mali. Mm-hmm. ñu 2002 Mali du ñu fàttaliku Henri Camara titulaire la woon. ñu ñëw gis Bruno changé complètement effectif bi ñu prep cette stratégie mën nañu wax noonu. mais Henri titulaire indiscutable ñëw dem ci ban démarrer match boobu ak ban bi nan la la defoon loolu. non neexu moom mais tamit euh, benn instant dama dama ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu lay jour nañ dañ ñëw pour am ndam. metti woon na ma trop mais après dama comprendre quoi tey bi ñu bi ñu gagné France bon man a jubilé sax. joueurs yi newoon si terrain mais après xam nga rek liggéey nekk entraînement di liggéey di xaar sama chance bu mu ñëwee dama dama prouver hmm. génnaatuma voilà euh, donc man am na lu ma bëggoon a wax but first of all dama bëgg a congratulate euh, ki nga xam ne mooy Sadio Mané euh, hmm. ndaxte man dama seetlu ne suy football man damay seetaan football <laughs> like recently. Ah, of course yeah hmm. dama dama dama gis ne Sadio Mané suy jouer suy suy suy play football. Euh, nekkul di bàyyi xel sax ah, mun naa wax ne équipe bu muy joué mais pour man dama dama gis ne euh, dafa am that intention of Sénégal yëpp a ngi may seetaan Afrique ñu ngi may seetaan da ngay gis nu muy nu muy deewooyee comme ni ko anglais yi di waxee dafay deewoo pour make sure ne um, he has victory I want to congratulate him on that aspect. man li ma bëgg wax euh, dama koy faral di dégg euh, ma màgg di ko dégg ñu ne euh, ñun africains yi ñun ñun ñun ñun jeunes africains yi suñ commencé siiw tuuti comme si côté football ñu commencé ñam tuuti xaalis euh, ñu euh, instead of ñu focus def lu ñu war a def entrainement ak yooyu mais dañ ngay gis ñu commencé dugg si yëfu àdduna torop te euh, again tamit da ngay dégg ñu naan la ne soo demee bay siiw di def yenn da nga war a làq tuuti ba den am sànq rek Pape Cheikh mi koy wax ne li ngeen def almadi dootul amati ndax loolu is something that you are really proud lan nga ñuy mën a wax si um, loolu. carrière bi quoi waaw bëgg naa nga advice nga nga wax ñu sa carrière at that moment um, lan nga doon def. waaye yàqu na almadi ñii. <laughs> Pape kan ay <laughs> because li is very important da ngay gis um, uh, football first first bi ngay am wala first tour bi ngay njëkk a kii Ali Kamara Harry Kamara génn na like everybody wants to be your friend and everything so yow si maybe football baa nga fa waaye yaa ngi bëgg a maintain that that nga xaw a am um, slaagal tuuti si. daloon wala. non du toj yenn dañ nekkoon dañ nekkoon man booy temps la fi laa juddoo. balaa may balaa may nekk professionnel baalkat ay donc bu la yàlla dimbalee nga am tuuti boo nekkee vacances am nga droit foo def lu la neex loolu rek moo ñu dal daal non man suma sama saison bu commencé du ma génn non peut-être temps en temps bu ma dugalee kontaan ànd ak sama gars yi génn bégee tuuti mais lenn moo may génne entraînement wala match sama kër jeex Mm-hmm. Ari am na yoo xam ne daf ko war a wax mi ngi bañ a wax te moom su waxulee ñii duñu wax. <laughs> non mais man nag man nag nekkuma fi sama raxi ñu fi mais Ari <laughs> <laughs> non mais Ari bi yoon il faut mu wax parce que en 2002 ah. Mm-hmm. Euh, bi ñuy joué ak Suède. yaa dugaloon ñaar. Mm-hmm. mais biñ la interviewé da nga taxaw ni yow. di la veille da nga xamoon yow yaay dugal parce que xaw ma sa maam xaw ma sa yaay woon na la wax la suba yow yaay dugal. waaw comme li may wax rek dama ne gis nga footballeur muy ñëpp fii rek ku amul ñaanu waajur doo dem man dama gëm ni dama amoon ñaanu waajur ku gëmul ku ku fonkul sa yaay si li ngay def doo dem yu mm-hmm. match bi dama woo sama yaay chaque veillu match dama koy woo mu ñaanal ma ma coupé sama téléphone tëdd mu woo ma woo ko ñuy waxtaan mu ne ma suba bu soowee yàlla di nga dugal man ko waaye maire bàyyi li ngay wax waaye coupé téléphone ma woowaat ko mu ne ma su ma lay ñaanal di da ngay wax ami comprendre man xaw ma fan la ko xëy na yàlla dafa ñaan si yàlla rek parce que sama yaay la. Mhm. gis na ni ma ni ma sonne woon si équipe bi mu ñaanal ma ñaan bi dal. Mm-hmm. parce que période boobu sax am na ñu ne revanche la woon. comme da nga démarré sans revanche la woon quoi. d'autant plus que paraît-il qu'il n'était pas le premier choix nekkul woon choix wu coach bi ci période boobu noonu. non dafa am man comme li may wax rek dafa am yoo xam ne kenn du ko mën a wax. dëgg la mais. revanche woon ci biir mais bu ñu mënul xam tuuti Henri pour génération. ça peut aider ñii ah moo tax ñu des ci yow balaa ñuy ñëw ci ci ñoom kenn par kenn. non man lenn rek laa leen di trier cas par cas. lenn rek laa leen mën a aider mooy dund naa ay ay ay jafe-jafe biir équipe nationale. alaay doublé baag du dund naa ay jafe-jafe biir jour tey bu dee bu dee équipe nationale nga nekk nekkoo titulaire. Mhm. ñu teg la si banc bi. Mhm. boo fekkee da nga da nga énervé. Mhm. waroo ko woon sax sa sa yeneen sa yeneen morom yi ñu lay yeb. da nga koy garder pour yow. yow yaa war a mere sa bopp ne tey bu ma duggee. dinaa woon ni coach bi man mérité wu ma toog ma. donc on apprend que gaynde dëgg dafay am revanche j'ai vu quelque part cette semaine El Hadj Diouf yéen à l'époque euh, bu ngeen nekkee ci terrain bi du ngeen bëgg sax ñu leen di woowee gaynde de la teranga mm-hmm. gaynde kese ngeen di bëgg di ngeen di bëgg di dégg ci terrain reyante rek waaw reyante rek bu ñu duggee si terrain bi rek ñun loolu nañu gis. gis ngeen loolu est-ce que gis ngeen loolu ci gis ngeen loolu ci booy yi waaw. ak ñoom fan lañ ko jëlee woon arñi boobu ñu amoon parce que da leen doon gis ni ñuy attaqué benn équipe yow booy seetaan da gis ni lii but la day dugg arñi boobu fan ngeen ko jëlee parce que ñun parfois dañuy am impression que dafa manqué ci suñu équipe bi ngeen baal toujours euh, dafa am loo xamante foog moo wax la ko euh, ñun suñuy jamono mu chaque match fii bi ñuy joué fii mhm. mu leen la wax kan mooy dugal ah chaque match bu ñu defee ni ñuy waxatee wax sa xalaat. <laughs> di nga dégg ni Henri Camara dina doublé wala El Hadj dina doublé 3-0 la équipe nationale di gagné Henri dina dugal temps El Hadj dina dugal temps ñaari buteurs yooyu dañu amoon. am na Henri parce que dañu doon xam 11 de départ. dañoo xamoon mais dañu xamoon tamit buteurs yi. mais bii équipe bi bu mu ñëwaatee toujours euh, contextualiser ko un peu équipe bi dañuy am problème toujours di xam récemment sax la ñuy mën am jàpp nii carrément ñi mooy 11 de départ ban atu la équipe bi seen expérience la ci war a mën a jële pour mën a nekk ci euh, lancé bi. non xam nga instant lancé 2002 pardon. boo awee coach bu mel ne Aliou Cissé. Mhm. nekkoon suñu capitaine. Mhm. donc man bëgguma nekk si place am quoi. franchement moo dugg si yenn détails yi di ko di ko perturber si liggéey bi nga xamante ne mu koy. mais am nga yow am nga conseil boo xamante ne war nga ko mën a jox ne Alioune kat lii su lii ak lii su ma sañoon lii la koy demee. non du ma dugg si détails yooyu que yaa ngi koy dégg. non gëj naa ko dégg na. waaw hmm. ah, gëj naa ko dégg mais toon maa ngi koy dégg. mais Henri mais Henri foofu ngeen nekk ah, ak fi xale yi nekk nga am rage nga am envie su ma duggee tey damaa war a indi wala tey damaa war a gagné parce que war dañ ma teg ci banc bi hmm. war ñu ma teg ci banc bi est-ce que loolu du indi euh, nga dugg ci terrain bi nga am bal war ko paas euh, kële mais loolu du ko indi man man man loolu mosuma dalee fi ok ok mosuma dal saa bu ma doon dugg rek damay préparé wu te su ma doon toog bon dama koy message la boo xam ne foofu ma lancé ko samay rakk que dañuy dem Coupe d'Afrique hmm. te chaque fois bu ñuy la problème yi di am hmm. la teg ci banc bi nga gis sa bopp mais man lu tax football Papis xam na lu may wax de seen coupe d'Afrique bu ñuy mujjee ñoom moom dina moom dina si dellu gis nga groupe bi bu ñu deful nii coupe d'Afrique bi ñu dem bu ñu deful nii du ñu am dara saa yi bu ñuy dem coup d'Afrique fa la problème yi di commencer parce que ñëppee bëgg jouer mais loolu foog mu dañ fi pare ñoom ñu bëggante entre ñoom nekk ay gayen ku jéewul nga jàppale kii di jouer. Hmm. loolu mooy jox ndam Sénégal. Hmm. après ñun ñu ñëw nag ñun dañuy mottali rek. mais Henry ci euh, kii en 2000 ñu gis ne ngeen avancé woon mais ñu doon dégg ci biir entraînement wara ci biir vestiaire yi que amoon na xeex. en 2002 ngeen demoon ba final euh, ci d'Afrique bi. Hmm. ñu déggoon ci entraînement bi wala ci vestiaire yi amoon na xeex boobu ba tey. déggaatuñu xeex ngeen di toog ay euh, premier tour est-ce que booy yi ren dañoo war a xeex ci vestiaire yi wala entraînement pour dem final. pour am dara <laughs> non pas xeex wala ñu xeex. bon ñu xeex parce que jour yi bokk ñu mu xamoon du benn ko lan mooy différence bi entre yéen. ak ñoom non du ma dugg si détail yooyu. xaaral ñu wax ak léegi dañu jógee 2000 nañu dem ci ñu dem ci booy. ah dem ci dem ci la ko xam naa ba weeru koor déwén. Pape Cheikh waaw Henri xam nga Pape Cheikh génération 2000. Ah. ils nous ont fait vivre les plus grandes émotions. ils nous ont fait rêver. rêver ay yeewu fajar heures du matin di seetaan match def nañ ko fi. Ah. Ah. mais tout le temps c'est vrai que dinañu am ay émotions dinañ gagner nañu avancé mais day am cette finalité. Mhm. c'est le même problème qui se pose. Il y a le beau jeu est là mais le résultat ne vient pas. Mhm. est-ce qu'il n'est pas temps nag ngeen mettre de côté le beau di dugal di gagner. di def comme ay Allemagne. man ay Cameroun. laaj baa sax man ànd na ak yow. jamono ñu toll nii man coupe moom a tax a sama rax yi dem jëli. laaj baa ngi football bu rafet taxuma jóg. vraiment. dañu dem gagner ñëwaat ah Pape Alioune. Euh, man tey li ma ba ko mu tontu ah, ba ko mu tontu. atia ah, laaj ma. loolu laa lay wax est-ce qu'il n'est pas temps ngeen bàyyi le bouge de côté ngeen di dugal résultat lañ soxla. mais si on peut bien jouer et gagner pourquoi pas tey je pense qu'on peut essayer de faire les deux parce que nous sommes le Sénégal quand même on peut bien jouer et gagner. Mm-hmm. mais on a remarqué que le bouge mu ngi fi les individualités baax na ku nekk xam nañ ni ay bons joueurs ngeen mais en collectivité ça pose problème c'est vrai sànq Henri copain et mais dans l'équipe dafa war a am benn compétition boo xamante ne dafa war a am ku nekk ne man dama war a dugal mu am compétition mu am esprit d'équipe mais mu am compétition ku nekk dem gaynde nekk gaynde génne génne li nekk ci yow quoi lépp lu daan manqué mm. yàlla na ñëw ren incha allah ñu andi fi ndam Mhm. Pape man dama ñëw ci nouvelle génération bi ñoom ñaar. Mhm. Euh, ñoom ñu ngi nekk Turquie ak euh, Papis Papis bien vrai que assuré na saison ak. non euh, man kay dama bëggoon ñu cas par cas ko. comme ñoom ñaar a ngi toogee nii waa Turquie. Mhm. dama bëggoon ñu commencé ak Papaline. waaw ñoom ñaar ñi. ah ñoom ñaar ñoo bokk même club. fële ci Turquie kon yow xamoo ni ma ko <laughs> <laughs> laa croisé balaa may ñëw ci ñoom. <laughs> on va enchaîner d'abord parler du cas Pape Alioune Ndiaye donc euh, Pape Alioune euh, la njëkkee euh, d'abord euh, image yi quand j'ai vu ça euh, dafa dafa dafa dafa dafa daw sama yaram nga ne feneen di dox ñu tegal la njaajaan njaay loolu mooy wane encore ni même bu dul compétition bu équipe nationale ci club yi ngeen nekk da ngeen di fay nekk ay gaynde nekk ay ambassadeur yu yu yu yu drapeau bu Sénégal lan ngay commenter ci li d'abord avant qu'on enchaîne avec les questions ci sa cas yow Pape ouais, Je pense que c'est des images très fortes. Ah oui. Où, où l'on honore le Sénégal, je dirais. Au-delà de man, c'est le Sénégal. Ouais. donc euh, sentiment de fierté rek uh, laa si mën a am. Mhm. très très fier ouais. Mhm, mm mhm, -hmm. mm -hmm. ouais. et, et et et e, e, le fait de euh, sango drapeau Sénégal bi téye sa doom dugg tàllal leen yëkkati leen loxo lii euh, ça donne pas envie de bu Coupe d'Afrique di jeexee nii nga doxee nii euh, nga téye ko coupe euh, coupe bi. waaw ni ko parce que man image boobu rek laa gis en euh, en rêve quand j'ai ni ko wolof di waxee rek yal naa nekk njëg jigéen dund naa ko ak Galatasaray yal naa ko dundal ak équipe nationale. Mhm. mais waa je pense que les les images parlent d'elles-mêmes. elles sont elles magnifiques. donc am nañu yaakaar taxawaayam ci club taxawaay bi surtout balaa moo ñëw ci ci mbay wax na day honoré Sénégal honoré ngeen Sénégal. mais ñoom ñoom ñoo jël champion turc. en même temps jël Coupe Turquie mu nekk li nga xamante ne vraiment une fierté la. Mm-hmm. mais 23 matchs 3 buts ak nga après nga jóge ci saison bu compliqué nga ñëw Galatasaray pour racheter mën nañu wax noonu. Mm-hmm. est-ce que ça yow mën nañ euh, jàpp ni Pape Alioune kontaan na ci saison bi. Ah, waaw ndax loolu moo taxoon ma delluwaat. Mm-hmm. bi may jógee Galatasaray j'avais le sentiment que lu ma lié woon ak ñoom jeexagul woon. donc loolu laa ñëwoon eggale si. c'est une saison aboutie. parce que lépp lu ñu fa tegoon tout ce qui était en jeu jël nañ ko coupe ak championnat. Mhm. je pense que voilà c'est c'était pas facile. parce que on a eu des hauts et des bas mais voilà Galatasaray est un très très grand club même dans des moments difficiles quand même on a on a su gérer tant bien que mal et au finish on a. voilà on a eu euh, <clears throat> on a eu le résultat bu nga xam ne moom lañ bëggoon donc euh, on est on est très content. nga imposé wu ñëw jëw euh, jouer sa vrai poste. aligné la nga gis ni vraiment comme est-ce que euh, nombre de matchs yi nga def baax na loolu sax gën a waral sa retour en équipe nationale. franchement sur la saison je me je me suis régalé je me suis régalé parce que au-delà tey de jouer match yëpp j'ai pris du plaisir. j'ai pris du plaisir à. à avoir la pression chaque euh, chaque semaine à, à devoir gagner chaque semaine donc euh, chaque semaine da ngay am adrénaline bi dafay monter je pense que tey pour un joueur euh, ngay jouer à ce niveau loolu c'est très important mm -hmm. franchement ça va contraire contraire Mbaye Diagne la ndax euh, yaa ngi wane léegi Pape Cheikh li ngi li ñuy wane ni moom dafa fekkee woon li nga xam ne bi ñuy joxe trophée bi la may fekkee wu ko fekk na ko Dakar ba ak saison bi nga def 30 buts nga bokk ci euh, histoire u euh, championnat turc mooy Super League nekk africain bi fa jël njëkk a nekk meilleur buteur kon may doon nga laaj <laughs> ak ak loolu lu tax teewe woon teewe jour bi ñuy joxe kii bi ak nan nga mën a résumer aussi expliquer ñu sa championnat man ko ce que du <laughs> <laughs> nga fekke woo kii bi weeru kii ah, ko mooy tuulee bu gën mhm. am euh, lu taxoon mënu dem quoi waa amoon naa permission coach bi waxtaan ak moom mu jox ma ne ma mën nga dem après voilà ma dem li nga xamante ne c'était urgent pour ma pour voyage bi nga xamante ne moom la ñu war a def pour Espagne. Mhm. mooy sama papier Italie. moo taxoon ma jógee foofu ñëw fii Sénégal moo tax mu mujj ma fekkee fête bi. Mhm. Kaaw meilleur buteur bi Mbaye Diagne vraiment ren dañu gis ne tu as fait une saison euh, buts yi na 30 buts mais ñu ci bari ñu doon critiquer ay pénalti rek nga doon dugal. Mhm. waaw saison bi yàlla def na mu jeex ni ma ko bëggee woon di sant yàlla. parce que métti woon na vraiment trente bii nga wax laa dugal. Mhm. voilà dugal naa si je pense onze penalty mhm. mu juumul. 11 penalty alors que man attaquant la mhm. man nu ma dugal rek lay xool xool ma penalty wala but normal. Ah. ba mu jaral la parfois ngay xëccoo. waaw ndaxte gis nañ gis comme ci ñu ngi koy gisee ci image yi parfois gis nañ Mbaye Diagne ci yenn match yi nga xam day xëccoo sax ak ay coéquipier pour dugal penalty pour teg penalty bi door ko. Ah, loolu dara loolu bëgg dugal rek moo tax ma koy def bëgg a gagné dara parce que loolu moo ma indi si bi dugal but mhm. kon moo waral am yenn euh, euh, réaction yi ci terrain bi mais du lu may xëccoo parce que loo xamante ne euh, équipe bi ñoo ma ko sas la mu Pao Aliou xam ne ci dara suma tur moo nekk fi ci tableau bi man maa war a dóor penalty mu mhm. waroon yenn action yi. Mhm. mais su ngeen ko xëccoowee nii ba pare ba duggaat ci vestiaire yi ban ambiance lay jox. waaw ku nekk ça dépend ku nekk noo ko yëgee. Mhm. man bi ma duggee mooy mer parce que c'est normal action bi rafetul daal maanaam ñi nit yi di ko gis. te ngeen bokk équipe bi. waaw mais bu ñu meree noonu si saa si duggee si BCED ku nekk day sangu ñu dem ñibbi bu ñu ñëwaatee entraînement yi ñu fàtte lépp lépp léppay jeex vraiment. voilà on va on, retourner ci cas euh, Papa Lune Ndiaye euh, puisque dañu ko abale woon selon yéen. sa c' est ça. waaw dañu ko abale woon que abal bi defe naa jeex na. moom lu ci lañ jëm kay ba xam na yéen club ñoo ci nekk nii actuellement ndax ñu ngi wax ni dañ bëgg dañ la bëgg a jënd officiellement. waaw ban club ban club moo nekk delluwaat Premier League wala da bëgg rester fi nga xam ne mooy Turquie. waa xam nga lu nekk nag dafay dafay dafay am période. donc euh, tey euh, pour bañ di suñu bopp di jaxasoo moo tax dañuy am euh, ay agent ak yooyu. donc tey nag yow sa rôle rek dafay nekk nga nekk ci terrain bi essayer jouer moom de son côté mu def aussi son travail. donc heure waxtaan bu jotee après daf lay da ngeen di wax mu rendre le compte te heure boobu. nag dafa jotagul nii. mais actuellement am na club yu teel a déjà déjà positionné wu wane ni ñoom bëgg nañ mbay kii Pape Aliou Ndiaye. waaw man moom laay wax ni mane moom loolu moom liggéeyam la man instant yi comme saison bi jeexagul. Mhm. bugguma dispersé wu dama bëgg a focus si si si lu ma nekk nii. ba incha allah su jeexee heure def bilan jot bu boobaa. dina ma rendre compte tranquillement parce que ñu bëri ñu ngi laajte est-ce que da ngay toog wala da ngay delluwaat en d Stock City mhm. yooyu yëpp c'est beaucoup de questions que euh, yu nit yi di poser ou en fait malheureusement effectivement c'est beaucoup de questions mais malheureusement mënaguma ci tontu parce que comme ni ma ko waxee saison bi saison bi jeexagul. Mhm. mais incha allah xam naa su saison bi jeexee rek. Mhm. dinañ je vais y voir plus clair incha allah. Mhm. alors yéen dem Coupe d' Afrique ku ci nekk mi ngi yooy laa bi ñoom di wax parce que ñun ñooy supporters yi bu dee yéen a ngi ci terrain bi di sonn ñun suñu kër yi ñu ngi waaj a dee. Euh, est li nit yi di wax yëpp yéen a ngi koy dégg ak yéen naka ngeen fas yéene organiser woo pour li nga xamante ne moom la ñuy bañ chaque fois dem ñu yaakaar après yaakaar bi ñëw tas ñu bañ ko am cette année mm. que ñun ñëpp dañ leen gis ngeen gàddu coupe bi bon waaw xam nga sénégalais yi li ñuy wax nañu ko bañ a dégg parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk fii bu ñu ñëwee ci suñu ay famille lañuy ñuy dem mm-hmm. ñun ak gars yi ñooy naanandoo ataaya comme ci période koor lañ nekk ñooy xëddandoo ñooy dogandoo nañuy waxtaan donc li ñuy wax yëpp dañ koy dañ koy dégg waaw tey dem jël coupe yaakaar naa ne ñun ñëpp moom la ñu bëgg te incha allah dinañu ci liggéey bu baax ba tey lu ñu mënul sax ko def pour incha allah andi andi ndam fii. voilà man su ma nekkoon moom porte parole lu euh, équipe bi moom laa koy parce que voilà <laughs> euh, sinon les autres ils sont euh, vous savez est-ce que loolu loolu force la pour pour pour les joueurs de foot saa yu bu leen di interviewé j'ai l'impression que vous chantez tous ouais le match loolu kii la c'est c'est un feeling footballeur ou <laughs> j'ai l'impression que ñoom ñëpp ouais vous savez ce match. di dóor euh, c'est c'est normal ou c'est pas normal. <laughs> voilà c'était une parenthèse. après même nous qui ne sommes pas amateurs euh, à 100% et que ñuy seetaan parce que euh, ci douzième guerre bi la ñu la ñu bokk on se rend compte que ci entrejeu bi ku mel ni Badou daf ci imposé wu. Ah. ci ci ci ci ci ci coach Aliou Cissé alors quel sera lan moo nar a nekk sa objectif ci kan bi ñu bi ñu jëm Badou. waaw xam nga je pense. très sincèrement mm. comme si compétition bi la ñu jëm benn objectif la ñu war a am te objectif commun la war a nekk mm, mm. c'est-à-dire équipe nationale la ñu war a wax mm-hmm. mooy objectif u équipe nationale mm-hmm. ñu essayer créer moom la sànq tonton Henri doon wax essayer créer benn complémentarité boo xam ne travail de chaîne lay nekk mm-hmm. ñuy jotalante affaire bi parce que bu ñu xàccee ndoowee doorandoo je pense que noonu rek la ñu mënee am dara. Mhm. donc tey vraiment objectif bi du dara lu dul ñun ñëpp incha allah ñu mën a sigil suñu réew. Mhm. beneen objectif waru fi am. Mhm. tey liste bi génn na euh, Aliou Cissé dressé na listam te lan ngeen xalaat na yéen tey euh, équipe bi nar dem jogante ji si kan bi lan ngeen xalaat ne tey yéen mooy seen atout principal. bon pour bañ a monopoliser parole yu bàyyi ma bàyyi kay dañoo nekk ci sa kaar dañoo dañoo nekk ci yow après on va on va on va on va dem ci ci ci ñoom. ndax xam ah, tey au cas par la ñuy dem. kii tey tey ah. Aliou Aliou na liste bi. Uh-huh. tey ñëpp xam nañu ñen ñooy dem jogante ñi si kan bi. Uh-huh. léegi yéen lan ngeen xalaat ne tey mooy seen atout yéen principal yéen joueurs yi. Uh-huh. tey ndax xalaat ngeen ne mental bi ñuy wax ne moo def défaut. est-ce que yéen tey am ngeen ko pour mun xeex rayante pour mun indi li nga wax mooy Coupe d'Afrique bi fii si si Sénégal. équipe bi on a des joueurs de très haut niveau te tey le haut niveau le talent le talent rek ne suffit plus. Mhm. donc tey il faut tey il faut tey d'autres il faut nga am yeneen valeur au fait te mental daf si jouer un rôle déterminant. Mhm. tey moom la Henri doon wax sànq Papiston brosse na ko il faut ñun tey franchement on partage plus que des des entraînements. Mhm. on se voit pour manger on souvent kii bu nekkee club am kii nekk fële dañuy waxtaan dañuy wootante. Mm. donc tey l'ambiance elle est très bonne dans cette équipe. Mm. on est ay frères lañ. Mm-hmm. je pense que dire qu'on partage plus que des entraînements c'est c'est largement suffisant comme mm-hmm. preuve. Mm-hmm. donc tey loolu noonu yëpp tey ci terrain bi tam dafay feeñ. dafay feeñ mais tey loolu laay wax dañuy ñaan yàlla rek te man vraiment loolu j'y tiens mooy que lépp lu ñu daan manqué. lu ñu yaakaar ne daan na manqué loolu lépp yàlla na ñëw ren. kon tey mën nañu wax ne kenn ku ne ci yéen pare na pour jël euh, je veux dire euh, ego am teg de côté. Ah. et dire voilà te on travaille pour l'intérêt général parce que l'intérêt général c'est quoi c'est la Coupe d'Afrique Euh, pour le Sénégal. loolu ci euh, mental la bokk c'est ce que disait Henri donc kon tey mën nañu wax ne ak ni ñuy ni ñu ko ni ko brossé noonu tey ñëpp taxaw nañu pour dire que voilà duñu xalaat naan. tey man maa war a dugal but bi il faut ma dugal ko tey euh, mbaye gi taxaw voilà mbaye gi taxaw euh, passe bi peut-être que tey su ma ko joxee bal bi moom moo gën a euh, voilà mën a mën a jege camp yi dugal ko et je pense que il faut que ñun ñu ñu ñu jàng loolu tamit xam voilà c'est un intérêt général jël intérêt personnel bàyyi ko parce que finalement bu ñu demee ba gagner euh, voilà c'est le Sénégal qui gagne mm-hmm. on va pas gagner pour dire que voilà Alioune a gagné wala Mbaye moo gagné wala se dire voilà on est là pour le Sénégal on mouille le maillot et voilà euh, c'est un bonheur tey ngeen a xeex mm-hmm. ñafe boo leen doon dee gaañu ñiy xoseeku def lu nekk je pense que jar na ko moi j'adore cette phrase il faut mouiller le maillot j'adore ça je pas pourquoi mouiller le maillot mais si en yi ah. <laughs> loolu yëpp ci mental bi la bokk et je pense que loolu la ñu soxla quoi que ñu rayante même bu doon sax da ngeen di voilà vous sortez avec un bras cassé vous nous ramenez la coupe voilà ñu ñu kontaan ci yéen on attend que ça finalement. parce qu'on a besoin de ça voilà. Euh, euh, parce que dañ ko soxla voilà on va on va prendre quelques réactions dans quelques minutes ay ay spécialistes ay coach ay euh, commentateurs sport kenn ku nekk bëgg nga réagir on a démarré ak Papa Alioune Ndiaye waxtaan ak moom directement maintenant muy euh, euh, ñaar ñi fi toog di ay euh, champion di ay gaynde dañu def portrait nañ leen ko tegal balaa ñuy ñëw ci ñoom ñaar au cas par cas regardez. ñëpp naan waaw 2002 bokk na ci at yi ñu dul gaaw a fàtte fili Sénégal ci wàll football ci at boobule Sénégal ràññeeku woon lool taxawaay yu am solo lañu amoon ci compétition yi nga xamante ni ci lañu nekkoon ñaar fukki gaynde ak ñaar ku ci nekk sa mbëbët moo doon wane fierté gi nga am ci sol mayo bu Sénégal bile ñoom ndaw ñii ci boobule jamono àndoon ci ak dem ci yàlla Bruno Metsu ay mbégte yu dul jeex lañu doon jox askan wu Sénégal ci ñoom ñooñule ñu ràññee ci Henri kamara moom gane ci àddina fukki fan ci weeru mai atum 1977 fii ci ndakaaru ñu wax ni moom mooy recordman ci wàllu but yi mu dugal ci équipe nationale bu Sénégal daal di am ñaar fukki but ak juróom-ñeent moom daal di dugal premier but en or bu mondial loolu sax tax

Henri Camara mooy vice champion d'Afrique ci atum 2002 foofule ca Mali carrière ci wàllu a jeexal na ko saison bi ñu génn. fi mu toll nii tembe li mu bëgg rekk mooy fexe ba xam-xamam mu bokk ko ak génération bu yees bi génération bu yees bi sax doon ay ndaw yoo xamante ni ku ci nekk itam yaa ngi def sa kéem kàttan ngir rekk daal di mën a fës ci wàllu football bile. ñu ràññee ci ñoom ku mel ni Sadio Mané nga xamante ni bokk na ci meilleur buteur yu Premier League beneen sénégalais itamit di Mbaye Diagne moom tamit mi ngi fës foofule ca Turquie saison bi nga xamante ni ci la ñu génn doon saison bu am solo mu def ko fa moom daal di dugal fanweer ci ay but ak championnat bu Turquie Mbaye Diagne nekk foofule ca Galatasaray jeexal na saison 2018 2019 doon meilleur scoreur africain d'Europe mbay Diagne nekkoon sacré champion de Turquie ak clubam bile daal dina jël tamit kubu Turquie moom mi ngi ci ñeenteelu sélection wam ci équipe nationale naam dugalagu fi benn but ñu rafet njort ne eh, ci coupe d'Afrique des nation bi nga xamante ni Aliou Cissé boole na ko ci list bi moom Mbaye Diagne dina defaraat taxawaayam ñu bëri di ko ci xaar naataango Mbaye Diagne bii di Papis Demba moom aussi jaar-jaar bu am solo la am ci équipe nationale bu Sénégal foofu sax mu daal di fa dugal fukk ak juróom-ñaar ci ay but Papis Demba moom tamit saison bu baax la def foofule ca Turquie ak clubam bii di Alanyaspor Papis moom neuvième la jël ci boobule championnat ca Turquie. moom mu mel ni nag mi ngi ñëwaat bu baax ci wàllu carrière am ak lu ci mën a am Sénégal mi ngi jëm ci jongante Coupe d'Afrique des Nations ana ban jàngat lañu gis ci ñi nga xamante ni ñoom la ci Cissé tànn naka la ñu gisee tamit compétition bi ñuy waajal ak équipe ya ñu fay fekk ak laaj yu bëri yu ñeel wàllu football ci Afrique rawatina équipe nationale bu Sénégal ñoom ñi lee dinañ ci andi ay leeral ci quartier général bu tey voilà sànq ba tey ñu ngi leeral donc après cas euh, euh, Badou Ndiaye ñu def portrait croisé ci euh, ñett ñu toogee nële et je pense qu'on peut démarrer ak Papis Demba Cissé laata ñuy jël réaction yi nga xamante ni ñu ngi koy xaar depuis sànq ou bien ñu dem ak réaction yi très rapidement balaa ñuy poser question yi benn par benn yii Papis Demba Cissé yii pour mbay Diagne déjà waa Torino depuis sànq ñu ngi yónnee ay messages pour nous dire que ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw mbay Diagne un très grand champion Euh, nañu jël euh, benn euh, réaction ci téléphone bi muy réaction ki nga xam ne ni mooy coach Bamba Diop alors coach ñu ngi lay nuyu merci ci woote bi tey ñu invité sa ay doom ci plateau bi ñu nara dem ci jongante bu mag di Coupe d'Afrique d'abord lan nga ñuy wax ci ñi nekk ci plateau bi waaw alo oui. waaw ñu ngi lay ñu ñu ñu ñu ngi lay dégg ñu ngi lay nuyu bu baax coach Bamba Diop. Euh, ils sont euh, Henri euh, Henri man ba léegi dafay jàpp li mu war mu waroon joxe si terrain bi des na ah Henri war na sax dépassé quatre vingt dix neuf sélection. Mm-hmm. c'est un fils de footballeur il a joué ici au Jaraaf avant muy dem à l'extérieur mais c'est un joueur extrêmement rapide un ailier un di waaw à des ailes et à des ailes Henri su la xasee bàyyi mais mais su pare nga ci donc Henri war na li muy ci football Sénégal mondial war na na du ëpp loolu. Mhm. avec son ami Pape Bouba Diop. maintenant Pape Demba Cissé c'est dommage euh, dafa dem ba nekk au sommet mais il pour rebondir. Mhm. Euh, Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne il est puissant. Mbaye Diagne il fait presque deux mètres hein. Mhm. <laughs> Ah Mbaye Diagne. normalement défense waru ko téye. sa force de pénétration et puis il dribble bien c'est-à-dire moom dafa am gabarit mais gabarit bi yàq la ko dara. Mhm. Pan Pan je t'appelle comme ça. Pan Pan c'est un excellent joueur mais il doute sa personne. Ah, Pan. PAN dafay jékki-jékki ba ci yàgg mu am tous moom si est ce que mën na lii wala mënul lii mais PAN li muy def mën na lu ëpp loolu. loolu mhm. li ngay def PAN. mën nga lëkkaloo donc Pape loolu amoon rapidement. de façon ramassée. merci coach parce que amuñu boo dugg. voilà voilà ce que j'en pense. et maa ngi nuyu aussi Ablaye Diaw mon ami Ablaye Diaw. nuroo ngeen Pape ñu ngi lay gërëm yéen a bokk ni ngeen di waxee bàyyi ñu ñu àggali ak xale yi merci. voilà kontaan nañu père coach Bamba Diop ah tout le temps dañu koy déglu ci wetu euh, père Laye Diaw RFM. Euh, euh, voilà et à chaque fois mu def ay analyse am ci suñu gaynde yi da ngay da ngay da ngay da ngay kontaan quoi voilà avec beaucoup de rapidité derrière pour qu'on puisse prendre aussi notre autant euh, ci euh, discussion yi nga xamante ni bëgg nañu ko amal ak gaynde yu ñu fi euh, recevoir tey première question bi ma ko nar a posé Papis Demba Cissé ma mënuma comprendre lu tax bi Aliou Cissé ñëwee ba tey mosu koo sélectionné man lii ma naqari te loolu naa ci defanteeg Aliou Cissé peut-être balaa nga ci tontu on va retrouver quand la cuisine il est presque deux heures du matin ou presque trois heures du matin te sànq ba tey toggaloo ñu toggaloo bi j'aimerais qu'on regarde sa partenaire yi nga xamante ni ñoom nga nga toggal ñu xëdd bi ñu ci question yi nga xamante ni waaw di nuyu rek mbokk yi xarit du ñu seetaan comme ñu koy defee à chaque fois andi leen benn plat boo xamante ne leen dina leen servir pour xëdd soit aussi mu servir leen pour li nga xamante ne ni mooy ndogu euh, di jaajëfal aussi sama partenaire yi nga xam ne ñoo may accompagner fii sama biir waañ ku ci mel ni waa Sinico ñi nga xamante ne ni ñoo ma andi la warga Flessa bi nga xam ni loo mënti lekk rek soo ko naanee effectivement rapidement rek ci saa si li nga lekk dafay reste doo ci am benn problème ñu andil ma beurre jadida bi nga xamante ne ni kuy laax wala kuy defar ginaar wala kuy michu da utiliser ma ànd ak aussi waa Sonacos ñi nga xamante ne ni ñoo ma andil euh, huile niinal bi nga xamante ne ni diw gerte la ñu ko defee gerte gi ñu ko bayee fii suñu réew la ñu ko bayee moom lañ ko defaree gerte gi nag diwlin bi boo koy toggee moom du lakk du way te du fuux mën nga ko toggee nu la neexee te doo ci am benn problème ma ànd ak euh, waa tomate Podor comme ni ngeen ko gisee nii rek mu am euh, pot bu mag bi am pot bu ndaw bi ak bi nga xam ne mooy euh, pot bu yem bi am naa sachet yi am nañu tamit li nga xam ne mooy euh, ketchup bi nga xamante ne nii Podor ñoo ko defar am naa aussi waa Patisen ñi nga xamante ne ni ñoo ma li nga xam ne mooy cube cokkeer andil ma li nga xam ne mooy dolli aja ak cube bi nga xam ne tuuti te saf bi nga xamante ne ni boo toggee nga xamante ne ni nga ba dara desu yekk rek moom ngay sàppale sa cin bu ko defatee bu ko defee sa togg loo ko laaj la koy jox ma ànd ak aussi ñi nga xamante ne ni ñooy waa enema waa enema ñu andil ma farine pâtissière bi nga xamante ne ni moo gën ci goûter xale yi muy crêpe yi petit four yi ak li nga xam ne mooy beñee ci mois de ramadan bi ñu andil ma tam li nga xam ne mooy roli coquillette Euh, Rolly Vermicelle pasta macaroni pasta spaghetti ak li nga xam ne mooy euh, pasta vermicelle moo tax nag euh, fu ma taxawee sama biir waañ bi damay togg nag ba nga xamante ne nii damay togg ba mu baax euh, tey nag ma andi li ngeen xamante ne nii mooy laax laax moom ñëpp xam nañu ko dañu koy defar fii ci suñuy plat traditionnel la bokk mais tamit de temps en temps baax na ngay togg ay togg yoo xamante ne da nga koy améliorer daal di koy rectifier defar ko ba nga xamante ne nii koo gis rek di nga xamante ne nii lii laax bu jaar yoon la comme ni ngeen gisee sama table am naa fi li nga xam ne mooy coco râpé am naa li nga xam ni mooy sucre les concentrés non sucrés am na ananas raisin sec euh, clémentine pomme rouge ak li nga xamante ne ni mooy les caillés fleur d'oranger fi mu ne nag commencé woon naa li nga xam ne mooy euh, préparation plat bi fi mu ne nii xaw na guddi déjà nii teg naa li nga xam ni mooy euh, laax bi laax bi nag euh, ñu bari xam nañu déjà ni ñu koy toggee dañu leen koy fàttaliwaat rek dangay teg ndox mi su ndox mi baxee nga def un parce que laax bi tamit su amul xorom boo koy lekk dafay euh, dafay lewet ci yow dafay euh, fàdd xorom bi daf ci am solo boo defee ndox mi su baxee nga daal di jël rek li nga xam ne mooy beurre jadida bi jël benn cuillère à soupe daal di ciy def bàyyi ba mu bax su baxee rek nga jël sa araw sotti ci mélanger ba am laax boo xamante ne nii gis nga nii laax bu rafet lay doon ndax bër bi rek déjà da ciy jox da ciy jouer déjà xet gi dina neex boo koy lekk doo am benn problème parce que mën nga ko lekk doo am ballonnement de ventre nga bàyyi nag ba nga li nga xamante ne ni mooy araw bi dafa war a ñor bu baax parce que bu ñorul dafa lay andi li nga xam ne mooy ballonnement de ventre ñu am fi li nga xam ne mooy anana bi laax bi nag bu ñu ko toggee ba pare fekk nag euh, jël nañu suñu anana ça dépend yow bu fekkee anana bu frais nga bëgg wala anana boo xamante ne boîte de conserve yi la ñaar yëpp mën dem mais man tey euh, anana bu frais bi laa utiliser comme ni nga ko gisee ni nag ma dagg ko en petit dé daal di ciy def li nga xam ne mooy euh, sucre vanille sucre vanille bi nag juste rek pour relever li nga xam ne mooy goût bi la damay jël anana bi rek ñëw sotti ko noonu directement ci li nga xamante ne ni mooy laax bi parce que boo ci defee anana bi déjà nii rek euh, ñuy wax ci weeru koor gi mën ngeen lekk ay fruits ak ay légumes parce que tamit daf ñuy jox euh, un peu plus de tonus jàppale ñu tamit ci li nga xam ne mooy euh, mois de ramadan parce que da ngay toog toute la journée doo lekk dara su ma defee li nga xam ne mooy ananas bi mën naa ñëw rek. daal di ci def li nga xam ne mooy tuuti fleur d'oranger parce que loolu tam dafay relever li nga xam ne mooy goût bi voilà. su ma defee anana def la d'oranger ak euh, beurre jadida bi mën naa jël euh, tuuti beurre jadida rek moom it daal di ko ciy rajouter du ko yàq dafay gën a defar li nga xam ni mooy euh, laax bi voilà ma jël fii rek benn cuillère daal di tib tuuti beurre comme que ci départ bi defoon naa ci ma daal di dolliwaat rek voilà daal di def beurre bi mën naa delloo na li cuillère bi. voilà gis nga nii rek beurre jadida bi moom laa utiliser moo tax su may togg duma ma tiit du ragal ndax xam naa ne li ma nar a togg dina neex parce que beurre jadida bi may utiliser moo tax ma ñëw rek daal di koy mélanger beurre moom gis nga nii seey mën nañ nag euh, ñëw jublu nag ci li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy soow bi déjà fii am naa li nga xamante ne nii mooy euh, lait caillé bi am naa fii lait concentré non sucré lait concentré sucré plutôt moom lay ñëw rek daal di koy jiital ci li nga xam ne mooy soow bi gis nga nag togg nu mu gën a naturel gën a neex parce que tamit euh, ñuy éviter li nga xam ne mooy essence yi ak arôme yi ñu ciy def boo ko ci gën di def rek la plupart du temps boo ko lekkee da am ay problème euh, gastrique moo tax ñu éviter di ci def lu bari voilà gis nga nii rek tuuti fleur d'oranger comme te laax bi amoon na ñu ñëw nag bañ a aussi ci suukar bi parce que euh, les concentrés sucrés laa ci def deux cuillères à soupe de sucre rek laay def ci li nga xam ne mooy soow bi voilà ma jëlaat beneen fii nag am naa fi li nga xam ne mooy les concentrés non sucrés moom it damay ñëw rek daal di ciy sotti voilà gis nga nii rek su ma paree mën naa ñëw jàll ci li nga xamante ne ni mooy dressage bi ñu am benn soow bu naturel boo xam ne mën nga ko jël lekk ko te doo ci am benn problème voilà gis nga nii nag bu la neexee nga jël sa bool bu mag pour dressage bu la neexee nga jël sa benn ramequin bu ndaw comme man ni ma koy defee nii rek ñu jël ko pour li nga xam ne mooy euh, euh, dressage parce que aspect décoratif bi daf ciy am solo lool ci li nga xam ne mooy euh, préparation plat bi mën nañu nettoyer nii rek suñu plan de travail ñëw rek jël li nga xam ne mooy laax bi gis nga nii déjà laax bi am na ananas am na beurre jadida def nañ ci légèrement li nga xamante ne mooy sucre vanille voilà gis na nii rek ñu jël suñu benn serviette rek daal di nettoyer rebord yi ba mu set voilà suñu paree nag mën nañu ñëw rek def ci li nga xam ne mooy euh, soow bi voilà lii mën na tegoo ni su ko defee dañuy ñëw rek daal di jël li nga xam ne mooy euh, raisin bi daal di ciy def daal di jël li nga xam ne aussi mooy koko rappe bi moom it daal di saupoudrer ci kaw am nañu fële li nga xam ne mooy clémentine ak pomme rouge ci kanam tuuti nag moom dama koy jël dagg ko en julienne daal di teg benn poêle revenir ko tuuti ci li nga xamante ne nii mooy beurre bi mën a ñëw nag teg ko ci kaw nga xam ne boo koy lekk mën nga booleeg laax bi déjà am na li nga xam ne mooy ananas bi raisin ak coco râpé bi ñu complété la ko ak euh, li nga xam ne mooy euh, pomme rouge bi ak quelques clémentines yoo xam ne pour aspect décoratif bi la mais buñ ko jàllalee ci poêle bi ak beurre jadida bi lekk te doo ci am benn problème bâgère ci kanam tuuti nag ñu jàll ci li nga xamante ne mooy dégustation plat du jour tey bi Baye Cheikh. voilà donc on va déguster dans quelques minutes euh, xëdd bi nga ñu defaral exactement 2h54 du matin mooy doog a jot ba tey ñu àndandoo ak yéen en direct euh, ci télévision Futur Média et en simultané ci King FM 99.4 alors premier talk show fii ci Sénégal euh, di quartier général bi tey ñu am mbégte dalal ay gaynde Henri Camara mi nga xam ne depuis sànq moo leen di magal ci plateau bi defe naa toogaay bi dina tax ñun itam ñu gën a am confiance. France euh, par rapport ak Coupe d'Afrique bi nga xam ne ni euh, Sénégal daf ci jëm alors avant ñuy commencer euh, question yi d'abord commencer ko ak Papis balaa ñuy wax ak Mbaye Diagne nañu jël beneen réaction ci téléphone bi damay damay damay damay dama koy def question pour Henri Henri dama bëgg boo ko déggee nga wax ma kan la ma xool ndax di nga xàmmee ki kii woote nii actuellement ci émission bi et puis ci kanam bu leen fàtte ñuy jeexal Sénégal euh, man ak Aba dinañu joxewaat ay suukaru koor ci numéro téléphone yi nga xam ne ni euh, mu ngi affiché wu ci euh, suufu écran bi allo. allo. oui na def waay. dama damay bàyyi damay bàyyi Henri mu mu mu kan moo nekk ci ligne bi. waaw Henri moom boo waxee rek boo waxee rek dina xam baat. xameegul baat bi de. wax ko nettali ko benn secret boo xamante ni yéen ñaar rek a ko xam. ok xam na ma ne joxaat ko beneen joxaat ko beneen. parce que boo ko nee HTM mu xalaat Hélène. Rico baat bi baat bi nag laa xamewul mais xam na ma nag. nee na moo Diop. moo ah voilà. <laughs> mais xanaa na nga xiif. <laughs> <laughs> moo Diop ñu ngi lay gërëm bàyyi la nga nga def sa réaction surtout ci euh, Henri Camara nga xam ni euh, sa joo la comme on dit. waaw Pape Cheikh ñoo ngi jaar jaar hmm. invité tey. koo xam ne ci ñun mën naa ne muy man di directeur TFM di hmm. Birane. suñu kii bu lépp la. Mhm. donc euh, moo tax tey jii ñu am kii temps pour pour mën a wax ak moom wax li xam ci moom ndax da ngeen a invité nit ku simple nit ku baax. Mm. ku bëgg réewam kenn xam ci dara nekk moom Europe lu mu la wax Sénégal la lay wax. donc euh, ba jëfal Sénégal jotee dafa dem taxaw jëfal ko sol maillot Sénégal comme ni ko waxee ko muy def li war a def lépp lépp lu la wax suba ba bëgg réew ma tax. Euh, Mabda et tout. Mhm. di ko en tant que maître Papis moom it ci wetam di suñu waay di suñu lépp ak ñoom mbay nga invité foofu. Mhm. di ko jàllee ba ci Bali et tout. même bii nekk foofu yaroo ci man kon donc. bu ma invité aare tey mu ñëw ci ci plateau nga invité ko ma toog ci wax ci moom. lu ma mën a wax dama koy jàllalaale comme Birane kon jot naa ko léegi téléphone. ba tax ñu la dugg ñoom ñoom ñëpp bëggoon a dugg pour mën a seede lu bari parce que da ngeen a euh, nit koo xam ne daal kuy wax ci moom it da wax ba pare sonn keneen jël rek. ndax mënuñoo wax lépp lu xam ci moom. Mm-hmm. koy bañ a catu. Mm-hmm. di ñaanal suñu gaynde yooyu yàlla mi nga xam ne moo di ko joxe mu jox leen ko ci coupe d'Afrique bi ñu euh, man na lu man a nekk la ci wàllu weeru koor guddi lay atu xadd bi ñu koy ñaan. Mm-hmm. yàlla def ko. amiin defal leen ko yéen ñëpp defal ñu ko jàmm di ñëw si Sénégal. Mm-hmm. te bokk ko franchement lan la amoon lu mu wax di ziare ñëpp di tawfeex di la nuyu bu baax rek. jaajëf Modou xamante ne nag dafa xaatu ñëw ba ba Paris. wax nga dëgg kon donc xam nga euh, ñoo ngi jàll message bi di ko jaar di ko di nuyu jaajëf donc loolu la nga amoon ne ñu ngi def. jaajëf kontaan kontaan nañu merci d'avoir appelé euh, euh, Modou Diop ci li nga wax ci euh, Henri c'est vrai que wax ji benn la yar bi correction bi et toujours bëgg Sénégal pourquoi toujours cet amour pourquoi tant d'amour pour Sénégal Henri. d'abord damay remercier sama xarit bi nga xamante ne bi ñu xamante depuis 2000. Mhm. mu nekk nit bu baax tamit moom. xamante kër fa laa xamee bijou këram. Mhm. ak euh, Paris donc euh, di ko remercier si appel bi mu def nii. Mhm. ah xam nga ñu rek dañ nekk ay xale yoo xam ne fii nañ juddo mhm. jaar nooytaan xam nga yàgg rêvé dugg équipe nationale. ba tey nga xam ne bu ñu dem bi ñu demee équipe nationale lépp luñ ci lépp luñ ci am. équipe nationale moo ñu ko may moo tax ñu bëgg suñu réew. waaw ah, dañ dem ñëw sax sélection. Euh, di yéex a dellu suñu club. Mhm. te suñu demee dañuy amoon. Mhm. dagg suñu salaire. loolu yëpp dañu leen dal ndax mhm. bëgg bëgg a toog suñu réew rek. bëgg suñu réew suñu vacances yëpp fii nañ ko doon passé xamuñu Miami yi xamuñu fenn. Sénégal lépp lépp Sénégal deux mois yëpp fii nañu toog. waaw donc euh, voilà loolu moo tax ñu. donc amour bu naturel la quoi pour Sénégal alors euh, euh, pour euh, tàmbali ak question yi pare nañu ak Papa Lune on va discuter un peu ak Papis Demba Cissé sànq je disais depuis avènement wu avènement wu coach Aliou Cissé on a vu que moom presque moom moom daal mosul a sélectionné waaw wax bi dama koy dégg saa su mm-hmm. Alioune mosuma convoqué te doon naa dégg sax nit ñi di ma naan peut-être mun na la woo Coupe d'Afrique bi. Mhm. yàlla xam na ni ko def ma ko sax sama xel. ah parce que man xam naa du ma mus a woo. pourquoi. parce que c'est quelque chose boo xamante ne que xam nga joueur. neexuloo ko wala. peut-être. je ne sais pas c'est une question mun na am mais sincèrement yàlla xam na ni j'ai jamais eu de problème. consulté na la début bi muy doog a ñëw 2015 da consulter joueurs yi ku ci nekk mu wax la projet bi mu bëgg a jouer bi mu bëgg a améliorer ci bokk équipe nationale est-ce que bi mu ñëwee waxtaan ngeen euh, woo na la ngeen toog ngeen waxtaan mu wax le projet non au début ce que les gens comprennent pas c'est comprenaient pas c'est au début Alioune bu muy jël équipe bi ma dama gaañu. Mhm. j'avais eu une fracture euh, à la rotule et euh, après mu jël équipe bi man ma nekk éducation mais il m'a jamais consulté il m'a jamais appelé ni envoyé message il y a il y a un jour je pense que dafa dafa daje ak sama sama agent à l'aéroport ils ont juste discuté juste vite fait lui il m'a fait part qu'il a parlé avec Alioune vite fait mais rien d'autre mm -hmm. mais euh, à part ça il y a y' a pas de contact ni rien musuma woo musuma yónnee message. est-ce que vous vous xamante ngeen. ou pas Alioune Alioune euh, turam laa xam ak santam. Ah. mais mon père connaît son père. Ah. mon papa. il connaît le papa de Alioune. mon père m'a une fois passé le pa euh, jox na ma papa ya Alioune. mais yow qu'est-ce que ça t'a fait franchement quoi on est entre nous. sincèrement euh, ñun Sénégal ñoo leen bokk ñun ñëpp quoi qu'est-ce que loolu loolu qu'est-ce que ça t'a fait. ou qu'est-ce que ça te fait actuellement je te dis sincèrement. suma def dara. ah bon ça m'a fait ni chaud ni froid. mais bëggoo woon bokk ci équipe yi nga xamante gis nga ni ñi ngi dem ay compétition nga xam ne am nga talent bi te yàgg nga bëgg Sénégal yàgg ñëw. man lépp lépp lu mun a indi Sénégal ndam bëgg naa ci bokk. Mm. man comme ni ko grand bi waxee. musuma musuma yàq benn fan. bu ma paree championnat toog dëkk jàmbur. musul am. j'habite en Angleterre. kër bu fa ne man maa ko moom. Ah, dëkk bu neex sama kër bopp la. maa ko moom ah, mais bu ma paree bu ma paree football du ma sa toog damay jël sama njaboot ñibbi parce que man naye naa jël sama alal dépensé ko dëkk jàmbur. Mm-hmm. je préfère dépenser ko sama dëkk. c'est un vrai patriote en fait qui ma dépenser ko sama dëkk. Mm-hmm. ma ñëw jënd fi dara. ma participer ci dëkk bi. Mm-hmm. li ma yore ma bokk ak sama waa dëkk. donc tu penses toujours à l'équipe je pense toujours à l'équipe nationale ça c'est obligatoire. parce que daf fi nekk déjà parce que man sans Sénégal man je suis rien man sénégalais la et je suis fier de l'être ak bu ma woowee équipe nationale bu ñu ma ñàkk woowee équipe nationale man dama ci bokk mm-hmm. parce que je suis un sénégalais donc euh, Alioune mu woo ma ñàkk maa woo Alioune ëppale wu ma dara ci équipe bi dara centime ëppale donc non jamais mukk abadan mm-hmm. pour lan no nga woo ko. non jamais comme yow xam turam ak santam nga xam. man loolu yow Sénégal fii la nekk. en uh-huh. bëgg nga participer. xawaat uh-huh. nga jël sa téléphone comme papaam ak sa papa xamante ne. Uh-huh. nga jël sa téléphone nga woo ko. xam nga nga woo ko en nga ne ko ne dude you know what I'm here and lii dama ko war a def and that's it. non est-ce que noonu la war a demee. non non non comme yëfu famille pas sélection bi mais mais seen diggante ñoom ñaañu rataxal ko. avant parce que day xaw a day xaw a doon loo xamante ni que dina xaw a doon loo xamante ne peut-être booy bi daf may woo bëgg dara. commandé derrière et man dama nekk nit koo xamante ne ni que du ma ñaan. ak kat nga pas demandé. est-ce que amuloo loo denc yow tamit. non jamais wax dëgg yàlla wallahi lazim. wallahi lazim waatal ak guddi gii ñu nekk nii. Mhm. aw ma dara du ma dénkal alim mhm. man du ma du nit dara dara. Mhm. man boo ma tooñee sax du ma la dara. dama lay xool yi ma xam ne yaa ngi may tooñ ma lay xool ñuy ànd di dem. mais Aliou mu tooñ ma tooñu ma il a fait un choix. yow delloo <laughs> yaakaar naa ma ñëwaat sélection. Mhm. maa ngi joué. Mhm. man je me dis que tant que bindiwuma lettre. lettre ne leen bàyyi na. Mhm. kon ba léegi buñ ma woowe je suis obligé ma ñëw. mais jamais au plus grand jamais. ma woo que ça soit Alioune wala beneen coach. pour wax ni ko da nga ma a woo équipe nationale. ah du ma ci sax débat après euh, Papis yàgg nga ci de depuis jamonoy Amara Traoré. waaw yàgg naa ci dugal naa dugal ci paa naa ci ay buts <laughs> effectivement il fait partie des cinq meilleurs buteurs de l'histoire ah ah bokk na ci ñi nga xamante ne bi ñuy lim ci record man maa ngi nii 29 buts moom bokk na ci après Moussa Sow am na ñeneen ñi nga xamante ni bokk na ci. cinq meilleurs buteurs mais lan c'est c'est que le travail. comme euh, ni ko grand bi di waxee. comme ce qu'on a dit sur Sadio. man dama am lenn lu ma gëm ci sama àdduna mooy liggéey. liggéey njëriñ. man loolu laa gëm gëmuma ni tricher walla walla dem fii di wax ci ginnaaw fii non man li ma gëm mooy dama war a liggéey pour ma am loo xamante ne bëgg naa ko am. Mhm. xam moo tax nga def saison bi ren 15 buts. xaaruñu ko woon en fait ndax aller retour dem Chine ñëwaat. waaw xam nga man dama nit koo xamante ne que dama bëgg dama mun a fayantu mais dans le bon sens. parce que dama nekkoon Chine j'ai quitté Newcastle pour aller en Chine mm -hmm. mais je suis avec une objectif boo xamante ne que c'est pas football mm -hmm. je parce que dama am ay man dama ne dama dama nekk xale mais dama njaboote. uti xaalis quoi. Mm. dama dem uti xaalis. Mhm. mais uti xaalis bi. parce que Chine Chine dëgg naa xaalis bëri la ñuy fay. pour man la pour man la mais à à du à cent pour cent. dama mun naa wax ni cinquante pour cent cinquante pour cent la. parce que dama nekk ay gune yoo xamante ne dañoo dañoo nekk sama ginnaaw. te seen yaakaar yëpp seen discussion seen waxtaan yëpp. mooy dañoo bëgg a Papis dimbali ñu. suba ñu mun a am fu ñu jàpp. te ça me faisait ça me faisait mal chaque vacance may ñëw chaque vacance ma ñëwee may yëkkati xaalis di leen jox di leen jox di leen jox bu ma ñibbee kan moo leen di jox xaalis boobu. ça me faisait mal. et dans ma ville à Sédhiou je peux dire que je suis le seul jeune. qui a réussi, qui gagne autant de autant d'argent comme ça. Derrière, qu'est-ce que je fais Je viens à Sédhiou, je donne de l'argent aux gens. Je ne peux pas rater porte à porte de toquer, de donner de l'argent à tout le monde. Qu'est-ce que j'essaie de faire J'ai dit, écoute, je vais mettre mon carrière un peu en jeu. Madame Outi Khalis, poser quelque chose pour, pour, le, pour ma ville, essayer d'embaucher des gens. Oui, j'ai deux, trois compagnies. C'est pour c'est pour essayer de parce que on était dans le social au début on a fait le social ñu jugee ci social on s'est dit bon on en a fait trop ça fait des années on le fait maintenant on va passer dans le cas embauché pour essayer de créer des emplois et j'ai essayé de j'ai mis beaucoup beaucoup d'argent sur euh, sur des trucs comme ça et euh, et à Sédhiou aussi j'ai mis quelque chose mhm. mais euh, ça ça a un peu échoué mais pas de mon côté. Les gens qui travaillaient dessus. Mhm. Ils avaient des salaires, c'est des jeunes. Il y avait à peu près combien 14 à 15 jeunes que j'avais embauchés là-bas, c'est des jeunes. Mhm. Je les ai embauchés, je les ai de l'argent. Mhm. Ils ont commencé à travailler. Mais il y a le projet, lui, ça n'a pas abouti. Mhm, mhm. mais sur ce projet là je l'ai changé. mais lii nag dogguma la foofu li muy dal footballeur yi dafa bëri de ñëw Sénégal investir. après voilà mu am ay problèmes alors que intention bi mooy jàppale. sauf Henri bien sûr ah. oui non <laughs> non man. investisseur baa ngi waaye barki démb du dal na tóone. waaw dal na tóone donc yii c'est c'est Ferdinand Coly plutôt. Euh, ça souvent ci ci souvent mais dis je dis toujours il faut pas se décourager. Mm. c'est c'est quelque chose boo xamante ni que on peut pas les laisser tomber ces gens-là. man c'est c'est en fait dama am benn idée boo xamante ne ni que à part le football j'ai un côté boo xamante ni que on suis un peu sentimental. Mm-hmm. dama ne eux l'erreur est humaine mais donner à quelqu'un ce challenge change mm-hmm. you know c' est pas c' est pas quelque chose boo xamante ne que c' est grave mm-hmm. damay essayer joxaat beneen chance à ces jeunes là mm-hmm. essayer de les aider mais à une autre façon on va passer on a fait ça on a échoué on va aller dans une autre case donc là je suis en train de monter un truc aussi à Sédhiou mm. que je vais bientôt commencer à le mettre en place pour essayer de de contribuer à ma façon dans mon dans mon métier le football mettre en centre formation je veux construire un centre formation à mes propres moyens Avec, avec personne n'est personne en train de m'aider. Okay. C'est à mon propre fonds. Mm -hmm. Je suis en train de l'installer. Tous les bagages sont là à Dakar. Okay. J'ai tout amené. Ils sont là maintenant. C'est juste que là, peut-être, je vais aller à Seyou. Si je ne pars pas, j'ai mon équipe qui est là. Mm -hmm. Eux, ils vont partir. Ils vont mettre les premières pierres. et euh, on va entamer à mettre le centre de formation. Mhm. bii paa nag dénk ko ñu wóor ah. comme ça doo ci doo ci am. voilà comme ça ça c'est quelque chose boo xamante ne je le sais. ba ma ko dénkee itam man man man ma géré la. y a pas de problème y a pas de problème. et c'est c'est pas que en Casamance. je suis aussi dans le vers euh, Kër Mbier. Mhm. y a un Kër Mbier fan la Kër Mbier. y a un village qui est. À peu près vers, euh, on peut dire vers Lac Rose, des trucs comme ça. ah la tudd non Kër wax. ah man damaa Kër Mbir la dégg. man maa ngi dégg seen prononciation. non non non yéen footballeur yi. non Kër Mbir. non la ne Kër kay bay mu def sànq tey may laajte <laughs> ndax ndax ndax code dañoo am code bu ñu war a waxee. amul code amul code. <laughs> non kër ndiir la ne kër ndiir. d'accord <laughs> voilà ok foofu la affaire bi nekk. kon foofu am na mbir quoi. waaw waaw am na mbir. waaw alhamdulilah dama dem foofu. Euh, les les gens du village ils m'ont vraiment accueilli avec les mains ouvertes. sincèrement ils m'ont donné le terrain. j'ai investi là-bas le poulailler. là j'ai Il y a 28 personnes qui sont embauchées là-bas. Bravo. En ce moment, qui sont Bravo. en train de travailler tous les jours, permanent. Ouais. Et euh, alhamdulilah daal. c'est à cause de ça je suis parti en Chine. dafa da nga mel comme si da ngay très préparer sa retraite wala reconversion la. man pour man ba léegi ma retraite c'est pas encore fait. j'ai ah pas encore fini. parce que depuis que j'ai quitté la Chine j'ai parlé avec mon agent je lui ai dit. j'ai des buts à marquer. Mhm. ça me reste encore. mais est-ce que Chine boobu du woon perte de temps parce que après da nga résilier contrat bi paraît-il non. pour moi c'était pas une perte de temps parce que le cas de Aline que vous parlez. il disait que quelqu'un qui est en Chine il va jamais l'appeler. Mm -hmm. ah. même si tu marques 40 buts il a dit le nom de quelqu'un il a dit même s'il marque 40 buts. je ne parle plus parce qu'il joue en Chine. Non, niveau championnat, bien d'ailleurs. J'étais en Chine. Niveau championnat, bien oui, Ali Boussi, c'est un professionnel. Dans mon équipe, on respecte, on mhm. respecte son choix quand même. Mhm. L'attaquant d'Italie, c'est l'attaquant de mon équipe. Mhm. On l'appelle en sélection. Au Brésil, on a deux joueurs brésiliens qu'on appelle au Brésil. Ils vont jouer. Moi, ce n'était pas un problème de ne pas m'appeler en sélection. Ce n'était pas un problème. Ce n'est pas parce que je suis venu en Turquie pour qu'on m'appelle en sélection. Mais j'entendais des échos. Papis, il a fini. je voulais montrer à ces gens-là c'est pour ça je dis que des fois damay fayantu mais dans le bon côté mmh. je voulais montrer à ces gens-là mm-hmm. man Papis du ay nit ñi ñooy toog seen kër di naan Papis il a fini mm-hmm. man xam naa lu muy liggéey dans la semaine mm-hmm. les entraînements de tous les jours eux il le sait il connaît très bien la daj xam nañ ko kon man mënuma nekk di entraîner tous les jours nit ñi toog kër ga di naan papis jeexal na. ñaata bii moo la dese nii ñaata bii nga. non desaat na lu ñaata desaat na lu jox ma nombre nombre. non ñu dem année année prochaine incha allah rek yal nañu mooy wér. mais mais est que rëccu woo li nga yéex a ñëw Turquie parce que da nga ñëw defe naa en deuxième en deuxième phase de championnat est ce que rëccu woo loolu le fait que nga yéex fa ñëw. non même la Turquie c' était euh, option. je voulais retourner en Angleterre être à côté de ma famille. Mhm. parce que la famille aussi s'en manquait. Mhm. tu vois je voulais retourner et à un certain moment j'ai eu une touche en Turquie j'ai dit bon ok écoute. Mhm. attends je retourne. parce qu'à cause des impôts des taxes et tout. je me suis habitué pendant les deux ans. à toucher mon salaire sans payer des impôts le gars lui il connaît. il comment ça se passe là en Chine. je suis parti en Turquie. donc euh, je suis parti dans un petit club. des fois nag Sénégal dañuy gaaw a wàcce nit de. <laughs> non man a war mais euh, dernière question pour Papis mooy gën am. ci pour la dernière question kuy décider <laughs> kuy décider. non pour man pour man ci Papis. ah leneen li ma bëgg a xam rek moo di. Ah. Euh, ah. dernière en phase dernière saison bi da nga amoon ne defoon benn accident. Mhm. ba am benn jour bu ci ñàkk bakkanam mhm. euh, nan la demee demee yow yaa ngi woon ci biir oto boobu noonu. je pense que ça c'était un peu un peu dur boo xamante ni que ça a un peu pesé dans notre fin de saison di. di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm fu mu nekk. mais mais comme comment ça s'est passé loolu. parce que on avait on avait un match ñu joué match bi il y deux jours de repos. Mhm. ñu war a ñu may ñu deux jours de repos pour que ñu noppalu. léegi ñeneen ñi dem vacances ñi dem Istanbul affaire yooyu nous on s'est dit on rentre ñu loué benn car de luxe benn genre gombi la quoi Mercedes yu luxe yi ñu loué on a pris deux chauffeurs. pour que ñu ñëw ñu ñëw jël suñu il y avait six heures de route de voiture mmh. on a pris route on est venu jusqu'à arriver dans notre ville ça nous restait juste une minute une seule feu à passer pour aller dans le club et on est nous tous on dormait pas on jouait au Lido avec dans l'iPad on mm-hmm. jouait mmh. et d'un coup le seul bruit qu'on a entendu c'était boum et c'est parti à à 200 à l'heure ça fait juste 10 15 secondes ça s'est déroulé, mais vraiment intense. Mmh. Et à, euh, à, partir de là, lui, le, la porte était ouverte et il est sorti. Oh. Qui fait que ça cognait, ça cognait. Et ça, c'était pas. À ce, à ce moment-là, on a eu la chance. On était neuf dans la voiture. Yalla ñu sutural. Mmh. Et euh, moom malheureusement moom mu ñàkk ci bakkanam sur le coup. Mmh. Mais euh, je peux te dire que j'ai vu la scène. Mhm. J'étais là. ça s'est passé là tey damay sant yàlla. Mm. aujourd'hui man dama am chance nekk ak sama njaboot. et lui ce qui nous faisait mal il venait juste d'avoir son deuxième enfant. Mm. qu'il a trois mois. c'est euh, ça fait longtemps j'ai pas pleuré. mais ce jour-là j'ai pendant une semaine je faisais que pleurer. Mm. ouais parce que c'était quelqu'un de d'extraordinaire. attaquant la boo xamante ni que. dañ ko jënd pour mu ñëw di ma dimbali bu ma gaañoo wala bu ma sonnee. il s'appelait comment. Mm-hmm. il uh-huh. et euh, il vient de République tchèque. Mm-hmm. mais un gars extraordinaire. il jouait pas beaucoup il parlait pas il râlait pas mais je peux te dire que c'est lui qui travaille plus que nous-mêmes sincèrement parler et un gars extraordinaire vraiment magnifique. et comme on dit souvent yàlla ñu ñu baax rek lay jël. waaw te man gëmoon naa ne ko ku baax la te mun naa ko seede parce que j'ai vécu avec lui et euh, xam naa ni mu meloon ni mu nekkoon ak ñun aujourd'hui mu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci dans le bas dans le bas donc euh, yal na ko yàlla xare fu mu nekk mhm. yal na suuf sedd ci kawam yal na yàlla may famille am gudd fan ak wér et ñun nekk yàlla may ñu chance ñu nekk fi yal na yàlla may gudd fan aussi donc euh, métti na daal. Mhm. accident bi c'était. Henri ah, Papi c'est très positif. beneen beneen nit la tey laay doog a xam ban nit la parce que d'habitude dama daan wax ak moom lu bëre mais tey laay doog a xam ban genre nit la ko. booy bu bien la. waaw waaw ah il est très il est très positif léegi yaa ngi bëgg a yàq suñu ambiance. non non waaw bëgg léegi pour neexal ko. pour pour neexal ko dama bëgg dama bëgg ñu ñu ñu ñu dem ci Mbaye Diagne. Mm-hmm. meilleur buteur bi. Mm-hmm. Euh, mbay nag bëgguma ñu may ko dara dama bëgg mu wax ñu mu wax ñu secret quoi meilleur buteur. am ah, ah, euh, euh, uh-huh. sorry dama bëgg Casamance <laughs> because tey tey suma am um, nasde um, ñinin kamina um, wala naytara <laughs> i nata jang um, um, siña jelle kata um, dulamene ka fonne seeju kata ko ibota jelle kodi imu soju imu seeju bay bal ma de maa ko jox micro bi maa ngi jégalu de <laughs> imu seeju koleti ha sa ni tata je ika mine keje fo ikata duwañin walla je fo um, ikata mine keje exactly mm-hmm. dama koy wax ci soose. ci soose ñun dégg nañu soose. waaw non waa waa Casamance ñoom xam nañ li may def si. soose soose mais ni naa fo man yaakaar na. Mm-hmm. man ni nkoli yàlla mm-hmm. euh, ne mm-hmm. nka mun ke seeju. wali wali yente lonne donc seeju nkoli yàlla ne nte mun jimaale ti man fan warandi. nka duwa mun na pour que seeju ye kayro soto seeju koole yiriwa fondin kewle betiya sama sama participé jama baye sotoje mulɓe tambinanta bari ɓe mine dada kan jefana wa mbe centre lol la et eh, aussi euh, mbe ɗo kuwol latte mbe ɗo ko jama préparé pour aytaji Yeah. Colombolo Colombolo dox ko Colombolo. foofu neex na Colombolo bi baax na ba Sëñ Tuubaa neex na. a ah, metale ah. ah, mbe surwa kango fo kan babandi a sometimes it's good nga muru mbota damen to. Saage ah. Nekal ci mbote oh dafa dafa neex li ngay làkk ni toujours surtout bu koy tontu. Yeah so basically nte from my own own perspective laftale ka londo ni tata seeju i kamɓe neke je kaata ko a ah, dolbi ah, ni tata fo ye fendo soto um, i bukati ila dulato walla han ni tata je i buka ku kumma fananke je mhm. sa ite ɓe mina laftalo wala lonna noon non bolongolo ndeka fo ñaami parce que comme naa fa ñaamee un jour. comme ma gawar a naata nu njee conseil rek ñun ñett rek xam li ñuy wax nii. kese waaw yaa bolongo parce que euh, nka fërënte mun see junkolti te mbe faala see junka yàlla évidemment donc comme li ma li ma ko wax dama ko wax na ni que mhm. man saa su ne damay wax waa Sédhiou mhm. man doomu Sédhiou la ah. mais d'abord sénégalais la mhm. et africain la mais Sédhiou dafa nekk loo xamante ni sama séeju la daal maa bëgg a séeju sama xol te eh, bëgg naa daal li ma am daal ma bokk ak waa Afrique waa Sénégal mais séeju daal dafa nekk ci benn partie ci sama xol boo xamante ni que man nee naa bu ma dimbaliwul waa séeju dina métti ah. parce que man maa jiitu instant yi dama war a wone exemple pour que ñu nekk ci ginnaaw ñu mun cee mun cee topp la nañu yàlla sutura. Ah, voilà voilà journalu Socé euh, dina ñëw ci <laughs> télévision Futur Média après koor gi incha allah euh, mbele mbele feleng feleng yooyu yëpp ah. di nga ko dégg ak keleng keleng. ay sukkandonkoole <laughs> IBG donc moom la euh, lañ ci àndal. maintenant on va discuter tuuti ak ak ak Mbaye balaa ñuy delluwaat parce que ñoom ñëpp dañuy yëngu ci wàllu social Papa Alioune Ndiaye beaucoup de projets projet d'école de foot def pour jàppale xale yi nga xamante ni la ñu def yéen la ñu def référence pour euh, pour euh, pour euh, pour ëllëg nañ ci ñëw balaa ñuy jeexal mais mbay meilleur buteur lan mooy secret bi. te day yaru sànq ba tey mu ngi yaru yarulu mu ngi xeelu nit ñi mu ngi ci ay tuñam te xam naa ni yaruwul loolu moom leer na aba barki Wally Seck <laughs> ok <laughs> miin nga mbay <laughs> mais c'est quoi mais lan mooy lan mooy lan mooy secret Mbaye waaw dara man moom xanaa liggéey rek. Mhm. waa parce que dugal trente but si si benn saison. macha allah boo liggéeyul. Ah. loolu doo ko mën a am. dëgg la gëm suma bopp rek. te di déglu ay conseils aussi. Mhm. vraiment yàlla wuy si ma aussi ak ñaanu jur ak ñi nga xamante ne vraiment bàyyi ñu fàtte ñu ma daal si ay ñaan. Mhm. waaw man nag euh, duma wax dara lu 30 buts pour man loolu du dara daal. passé na xam nga waaw maa ngi sant yàlla bu bër euh, di ñaan saison yu si topp. Mm-hmm. yàlla naa koy defaat ba def lu ko ëpp. Mm-hmm. Mbaye Diagne dañ koy xamee ñaari visage équipe nationale ak euh, club. li ñuy njëkk wax mooy équipe nationale. non loolu lu nit ëppalee neexul daal moom daal mu ñu koy won quoi de toute façon. <laughs> dem na ba décider dernière question. ça se voit que c'est lui le journaliste sportif de sa jotaay laa <laughs> waaye naa la dóor yu garaaw. dëgg Mbaye Diagne 30 buts 12 yi est-ce un bon ratio pour un attaquant. kii daf ñoo lakk depuis sànq waay. man maa koy jox man maa koy jox sa bi. toujours quoi est-ce que est-ce que est-ce que yow yaa provoqué penalty yi pour un attaquant ba koy dóor. waaw pro pro. <laughs> maanaam moo moo juumul ay six sept créé naa ko penalty yoo xamante ne ma jël suma responsable mënoon naa sax dóor mais daf ma neex maanaam waaw mais comme ni ma ko waxee woon sànq rek euh, penalty but la mm-hmm. waaw moo wax nga dugal but normal ñoo yam but lañ koy accordé mm-hmm. moo tax ma ne saa yi su ma mënee am occasion dugal penalty dama koy dugal. mais da leen di napp dégg naa ci terrain bi. <laughs> da ngay nappaate rek yow daal gars yi dañ la ragalee xel. <laughs> moom day nappe. waxal kay. parce que kii attaquant la. dafa mel ni man dañoo xiif bi on est né pour kii daf ci boole ay nappe. non xam nga gars yi dañuy wax ne ni que dugal na douze douze ñoom Messi ñaata penalty la ñuy doon daal la mm-hmm. mais moom bosom la nit ñi di wax il faut qu'on arrête. waa ji c'est un il a marqué 30 buts. On doit être là à voir qu'il a marqué 30 buts. Mais pas on reste le penalty qu'il a marqué. ah. bu dee Messi kenn du wax ne Messi. mais lu tax mbay lu tax mbay. non mais et le problème et le problème en est que c'est pas les gens de l'extérieur qui le disent. c'est nous les Sénégalais qui en parlent. dëgg la de man ça me fait mal man kii attaquant la man attaquant la. dugal na 30 bi mun naa ko ñee ci 30 bi yom mais je m'en fous da koo liggéey. Mhm. teg na penalty door mu dugg man teg naa ko sànni ko ci àll bi. Mhm. mais loolu attaquant la loolu la dugal nañu wax ci 30 buts félicité ko ci 30 mais finalement est ce que ñun sénégalais nous sommes clément avec vous c'est-à-dire question question ouverte est ce que ñun ñun clément nañu ak yéen quoi. est ce que depuis tout à l'heure vous tu lui as parlé de ça. vous lui avez parlé de ça. j'ai entendu demander combien de pénalités. non mais c'est les ça me gêne. c'est les statistiques en fait. waaw je sais je sais je sais c'est pas votre faute. non non non c'est normal. voilà c'est une question. c'est normal te sànq da nga doon wax ni Messi. Messi bien sûr dañuy wax. Cristiano Ronaldo dañuy wax ay pénalités Messi aussi dañuy wax ay pénalty yëpp si c'est sénégalais parce que si c'est Mbaye Diagne c'est parce qu'il est sénégalais. voilà nous on doit voir que ce monsieur il a mis 30 buts cette année. Mm -hmm. quel attaquant sénégalais qui a marqué 30 buts dans l'année. amul. Mm -hmm. malgré qu'on frappait les pénaltys. Moi, moi, en Allemagne moi je reviens toujours avec ma même question est-ce que nous, sommes cléments avec vous. mais ngay laaj man damaa bëgg di nekk comme waa ji nga xam ne maay nekk ci marché yeeg yooyu may dégg yooyu laay bëgg di indi yooyu ngay laaj euh, ñoom dañu leen di def benn critique ci ñoom mooy dañuy wax ni en 2002. dañ doon gis ñoom aar bu ñu duggee ci biir terrain bi dañuy bëgg a dee seen bakken la ñuy joxe mais ñoom dañuy gis ni club li ñu fay euh, mel ni ñu fay joue ak bu ñu ñëwee ci équipe nationale dañuy tegg seen tànk ba pare Pape dañuy seetlu fu ñu toog euh, ci dëkk bu ñu mën di dem booy yi bu ñuy toog rek dañuy laajaat foofu vol daal di dem dafa mel ni euh, dañoo manqué tuuti patriote ci bis loolu la ñuy wax quoi loolu la ñuy wax est-ce que du clémence boobu ngay wax noonu est-ce que du clémence bi foofu lay jógee est-ce que booy yi euh, bëgg nañ drapeau bi ba tax na boo leen woowee ñu ñëw loolu moom kenn du ko weddi mais est-ce que li ñu war a joxe ak li ñuy wan seen club yi ce que fii dinañ ko fi mm-hmm. waaw loolu lu may lu may wax ci loolu rek mooy que ne je pense que ne fii tey cette fibre patriotique là ñun ñëpp tey dañ ko am tey fii kenn du traîner kenn du trainer les pieds pour tey ñëw en sélection tey bu ñu doon dem ginnaaw Burundi sax on est toujours content d'abord de défendre les couleurs de notre patrie. mais en plus de ça bande de copains la en fait. kuy jóge sa club di dem sélection da ngay yàkkamti retrouver yeneen sénégalais yi affaire yooyu noonu. fii nii tey pour aller plus loin tey attention si lu may wax je ne suis pas en train de dire que du ñu envoyé. billet d'avion mais tey pour ñëw sélection même billet bi su xawee yéex tuuti pour parfois ay problème logistique yow da ngay jëndal sa bopp bi parce que qui sont même plus patriotiques que nous qui sommes sur ce plateau voilà ñoom ñii ñëpp wa li mu leen jaral jaraluñ ñu ko tey mais boo gisee tey man di demal kenn ay joueur tey vraiment tey bu ñu la gañee ngay jooy ah. mais honnêtement c'est pas tey da ngay jooy pour mais mais parce da ngay am lu la métti ah ah parce que tey da xam ne sa famille Sénégal ñëpp ñu ngi toog yéene bu nga am moo lay moo lay jooyloo nga xam ne tey am na ñoo xam ne ils sont te loolu loolu dafa métti loolu dafa métti mais loolu yëpp tey ay enseignement lan lu ñu daloon ci ginnaaw loolu yëpp ay leçon lañ ci tiire mm-hmm. tey dina ñu dinañu gën a motiver incha allah ba bu ñu demee bu ñu demee ñu ñafe par rapport ak Clémence bu ngay wax bon xam nga rek gars moom c'est normal. dañu xër football moo mel noonu dañu xër. ils ont ah. envie que tey ñun ñu gagné. Ah. dara ah. donc tey c'est une pression positive man noonu noonu la noonu lañ ko war a jëlee nañ ko jëlee de manière positive xam ne tey gars yi dañ ñu sas rek bëgg tey ñu andi ñu andi ñu leen dara football moo mel noonu. nañ ko jël mais tey benn Pape Alioune Ndiaye mu jël euh, clubam coupe daal di fay jël seen championnat benn Sadio Mané jël Ligue des champions. sénégalais yi ñaar ñett ñooy wax félicitation li ci des yëpp dañ naan waaw di ngeen jëlee coupe bi seen club fexe leen ba ngeen jëlee ñu coupe d'Afrique bi est-ce que tamit loolu euh, bu boobu sas ci kuy soog a jël coupe te te war a feetu waaw mais loolu la xam nga tey moom laay wax tey loolu lañ doon tënk sànq si mental loolu yëpp tey daf si dafa dafa bokk tey ci xam nga préparation mentale tam dafa am tey da nga war a programmer pour chaque fois rek ngay essayer di répondre ci club yi ñu nekk tam y a énormément de pression tey je prends l'exemple de Galatasaray c'est un grand club c'est un très très grand club la pression elle mais foo ko natt weesu na ko et pourtant on fait avec donc tey itam ni ñuy ñafee foofu war nañ ko mën tey ñafee suñu réew te incha allah wax naa ko sànq lu ñu mënul sax dinañ ko def incha allah. Mhm. yàlla baax on est un peuple très exigeant loolu dañ koy dañ koy reconnaître dañu dañu exigeant dañuy dem ba di leen tuddee sax nit ñi dañuy tuddee sax sàmb àllar tu parce que nee nañ comme ni Aba waxee da ngeen di briller fële fii c'est sombre c'est voilà gisuñ dara. après ñun tamit Séné ñun sénégalais sénégalais buy réussir duñ la may dara. voilà c'est ça au fait on est très exigeant. mais xam nga tey dëkk bi tàng na seen ngooñ mi baaxul ngeen tey nan ngay gérer nga koy gérer par exemple man tey sama kaw bopp laay wax. te tey j'imagine que pour ñoom ñëpp c'est pareil. man tey kenn mënuma gën a critique man sama bopp c'est-à-dire tey. keroog eh, ak maam Fatou bu mu ñëwee Istanbul jot nañ si waxtaan tey pour nga egg benn niveau waruloo ménager sa bopp Papis on a eu la chance Henri non parce que affectueusement maa ngi koy woowee tonton pour wane ne tey bon on n'a pas eu la chance sam mais Papis quelqu'un de très professionnel koo xam ne su paree mat soxlawul nga wax ko tey li nga def baaxul wala dara xam na ko xam donc tey critique yooyu dañ koy jëlee de manière positive rek xam ne tey gars yi xër la ñuy demee bëgg tey Sénégal trophée continental mosu fi ñëw bëgg ñu andi ko loolu moo leen di poussé rek ba parfois ñuy xaw waxee xëdër mais loolu yëpp ñun ñoo ko war a jëlee de manière positive et puis ñaan yàlla rek. man bëggoon naa baax euh, wax ci double visage bi. mooy Turquie muy meilleur buteur équipe nationale 3 4 sélection ba léegi xaar li ñuy xaaree mbay sénégalais dañu xiif gis mbay jaañ bu Turquie. yaakaar yi la bokk daal. waaw xamal euh, et man maa ngi doogay ñëw si équipe nationale bi yàgguma fi nii ñoo ma gën a xam li fa nekk waaye maa ngi liggéey pour euh, mën a convaincre sénégalais yëpp waaw pour waree suma bopp parce que Sénégal moom ma gënal man suma club bi ma nekk waxoon naa ko bu ma sañoon li ma dugal fee ma dugal ko fii comprendre waaye nag euh, loolu biti mi ngi si loxo yàlla maa ngi liggéey mais xëy na bu jotee rek dina yomb lan moo nar a nekk objectif bu Mbaye ci CAN bi en tant que attaquant waaw kan bi dara lu dem rek euh, def li nga xamante ne moom la coach bi bëgg ñun daal pare nañu physiquement mentalement pare nañu dañuy dem topp ci ginnaaw coach bi lu ñu wax ñu def ko. di des nag si ñu la des si biir terrain bi. Mm-hmm. waaw ñun pare nañu dañuy dem rek. mbay ndax juif daf lay daf lay courtiser parce que rumeur boobu nga commencé circuler ci réseaux sociaux juif da lay courtiser. léegi moo baax. Juventus dañ lay ah, courtiser wala. non non non non loolu loolu moom vraiment. amul non amul amul mais yaa ngi déggante ñoom loolu nga bind ci réseaux sociaux contact bi am na loolu moom dañul ba léegi. Mm-hmm. parce que. fa nga foofu laa nekkoon. dañ may woo di ma félicité ñuy waxtaan loolu loolu la ñu seq. Mm-hmm. moment bi waaw. tey ah. euh, ah, bàyyi nga laaj kooku euh, Pape <laughs> yéen ñëpp ñëpp la pose question état d'esprit wu ku bëgg a dem rek andil dara sa réew. d'accord merci. bi la ñu bëgg loolu mooy ñor loolu la ñuy dem ci kàttanu yàlla loolu la bëgg loolu la ñuy dem wuti. Sénégal gi yëpp kontaan. xanaa boobu kii laa koy laaj Aliou ah euh, mal kii Papis ma laaj la soose wala ñu dem fan. dama bëgg a sànni an open question rek. Um, ku ko tontu rek si yéen but uh, uh, préférably yéen génération bi. après <laughs> léegi the present generation pour ñu tontu loolu lan ngeen xalaat ne ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom Henry Camara lu ñu defutoon right yéen ngeen bëgg a koo correct ñoom Henry seen génération ils ont tout ñu manqué mooy coupe bi ñoom Henry génération 2002 ils tout fait pour le football sénégalais ils ont tout fait benn rek moo leen manqué man xam naa ni moom ñoom ci seen biir xool regret boobu mu ngi fi ba léegi c'est la coupe. man euh, mi ngi wane ne euh, maybe dañ xaw a am euh, comme si biir si biir terrain bi mhm. dinañ xaw a bi ñàkk a déggoo sometimes ndax loolu noonu dina leen dal yéen fekkee ne daf leen nara a dal tamit naka ngeen koy non c'est my last question <laughs> waa ñàkk ñàkk dégg ñàkk déggoo bi des fois des fois dafa baax baax ci équipe des fois xam nga parce que day day tax ba équipe bi joueur bu nekkee ci biir day fight bañ a nangu nit ki nekk ci ginnaawam xam na ni ko bu juumee rek kooku jël place am. loolu daf ci loolu ñàkk déggu mun cee ñàkk. parce que ay góor yàlla boo leen dajalee il faut que des fois benn tension am mais tension bi il faut que ça soit positif. xam nga affaire nu mu métti métti métti ay góor yàlla boo leen dajaloo il faut ngeen toog ngeen waxtaan lu ñaaw li ngeen defar ko. ngeen defal ko mu dem positif parce que yéen ñëpp benn but ngeen am benn objectif ngeen am. Mhm. c'est d'aller gagner. et vous gagnez pas pour vous-même vous mhm. gagnez pour votre peuple. ok et pour le cas Karamboj lan ngeen ci xalaat. Ah, le j'ai pas suivi cette. Karamboj Karamboj woowuñu ko j'ai pas suivi ah, ko lan nga ci xalaat woowuñu ko. ah ko. waaw mhm. lan nga ci xalaat. bon man sincèrement de ma part euh, gis fin saison Karamboj. gis naa fin saison Cameroun. Mhm. il a fait un fin saison correcte. vraiment man de ma de ma part man je pense que Alioune daf ko waroon jox chance am. daf ko waroon sax. même bu dee am na lu mu ko jàppal. daf ko war a ruusloo mu woo ko dugal ko ci équipe bi man pour man de ma part. Kara daf fi war a nekk. c'est vrai que am na équipe défenseur ci am ñu ngi fi mais dafa war a woo Kara. Parce que ce petit-là, man bu ñu l'équipe nationale, il m'a trouvé là-bas. dafa xaar xaar ba mu jot mu dugg mu téye te Kara y' a quoi six mois ci ginnaaw Sénégal booy tudd premier joueur équipe nationale Sénégal tu parles de Kara Mbodji. mais blessure moo ko xaw a freiné. blessure nous tous grand bi lu tax mu bàyyi parce que il est blessé bu gaa tànk yu woon grand bi day joué mais il est blessé il a décidé d' man je suis blessé, j'ai continué. Kara, il est blessé, il a tout fait pour revenir à son niveau. À l'une, je l'ai entendu dans son interview, il a dit que si Kara retrouve son meilleur niveau, il va l'appeler. Kara, à la fin de saison, il a fait une saison correcte. Mais pourquoi il n'a pas appelé Kara Parce que c'est comme ça qu'on sélectionne un joueur, par, par ses performances. Non, on sélectionne un joueur. man sama côté waxuma man sama côté je parle de quelqu'un qui qui est là qui a fait la guerre avec Alioune c'était le premier soldat de Alioune Cissé il faut pas qu'on oublie il faut pas oublier il y a même pas un an ci ginnaaw. peut-être que Constance amul woon aussi est-ce que xalaatoo loolu. sa fin de saison man je pense que am na certains jours yu ñu woo Kara il mérite mérite d'être là. Mm. sincèrement man sama point de vue daa ba waxuma point de vue Aliou Cissé wala keneen da ngeen ma laaj man. Mm-hmm. voilà man li ma xalaat mooy Aliou Cissé dafa waroon woo Kara. est-ce qu'au finish aussi le coach n'a pas raison parce que peut-être que euh, am na at yëpp pour xool kan ak euh, kan ak keneen moo warul dugg parce que am nga euh, jiite dafa metti waaw loolu la loolu la grand Henri wax. mu ne il n'aimerait pas être à sa place. Mm-hmm. moi Pape Cissé aussi je n'aimerais pas être à la place d'Aliou Cissé. parce que xam nga tànn dafa métti. on essaie de le comprendre un peu. waaw on essaie de le comprendre ça c' est vrai mais man sama point de vue laa wax. bu dee man maa Aliou damay woo yow maa lay laaj benn laaj boo xam ni euh, téléspectateurs yi seetaan ak ñi toog fii ñëpp boo leen laajoon euh, dañ ma ci wax li nga xam moom mooy seen xalaat. Mm-hmm. yow tey bu ñu la waxoon ci cinq yi Aliou Cissé woo nga wàññi kenn indi Kara yow kan ngay wàññi. ma wàññi ma wàññi kenn indi Kara. non sincèrement mënu ma la wax. man pour te dire pour te dire sincèrement y a certains joueurs. xalaatoo benn joueur boo xam ni peut-être euh, buñ la waxoon eh, wàññi kenn indi Kara. non ma wax la lenn mu leer ma wax la lenn leer léegi nii mu leer. Hmm. man am na yenn joueurs yi sincèrement parler ah man xaw ma sax seen ci équipe nationale pour te dire. xaw ma sa séentu. yow Paa. ma ne yàlla naa dem. <laughs> mu jeex tàkk. waaw. Henri. si wax rek mooy euh, bi fi Kara nekkulee. Mhm. amoon na benn booy boo xamante ne def na def na ay match yoo xamante Sénégal bi yëpp teg nañ seen bët mooy. Pape Pape non Pape Abdou Cissé. def naa loolu moo tax tey Kara mënul dugg ko mhm. moo tax ay concurrence bi voilà deux premiers matchs yu ñu ko dugal yëpp dafa assurer d'ailleurs il voilà donc euh, loolu moo tax tey Kara amul chance quoi pour dugg. Henri est-ce que tu passes, penses que 25 yi ñu jël ce sont les meilleurs et que voilà ce sont eux qui doivent partir. Alioune xam na lu mu def. waaw ah, xam na lu mu def on respecte son choix quand même parce que professionnel aussi par exemple dañu nekk si yoon boo xamante ne dafa am lu ñuy ut quoi waruñu saltal quoi. waruñu saltal. est-ce que xalaatoon yi am na lu manqué ci équipe bi lu amoon ci yéen te amul ci ñoom en 2002 parce que ñoom parfois sax ñu joué euh, ñun duñu xam ni suñu équipe a ngi joué est-ce que manqué wul. le buzz bi nga xam moo amul ci yéen benn joueur buy léttu benn joueur bu tent joueur bu doon saay saay quoi. yooyu yooyu yooyu yaa ngi tent na xaaj na ba tent. parce que léegi parce que léegi stade du dootoo fa gis ay xale da ngay da nga gis saaru ñoom bisu yi ñooy fees stade dell mais léegi xale dootuñu dem. mais gisoo coupe bi ah. Mbaye mu ngi soog a ñëw mais avant avant muy ñëw moom est-ce que équipe bi amoon na ku am caay-caay quoi ku doon liit wala ku. <laughs> seen temps di fecc waaw la ñu ñoom ay kilifa la ñu ñoom. mais mais nag mais nag Pape. xale yi bu daan dem stade ah, dañ daan maa ngi jégalu euh, fii yi bu daan dem stade dañ daan xaar benn Henri bu bu dugal suñu t-shirt bi awan ñu abdominaux yi xale yu yuuxu woy abdou yi xam nga yooyu est-ce que xale yi war ñu ko indiwaat ce ah, ah, que xale yi xalaatoon ni loolu daf leen a xaw a manqué ñoom <laughs> xaw ma sax la xaw ma la laalee compte mais suñu temps c'est vrai wax nga dëgg parce que man avant match déjà avant match sama chambre man ak Bouba ñoo ko doon bokk man avant match man xam naa ni damay dugal man damay xam naa ni damay dugal léegi lan laa war a fecc. Ah. yaa ngi fàttaliku temps wu jalgati. Mhm. chaque match ma daf may lenn naa dugal. dama ko loolu de sama bopp la la nekk. du sëriñ du dara. dëgg la de temps jalgati. su ma su ma dugalee dama ne buuma bu ma dugalee. lii laay fecc protocole am dem dem El Hadj ñëpp a ñëw ñu jalgati te booy duñ ma bàyyi may fen ñoom seetaan nañ loolu <laughs> donc amul nañ benn jikko comme li ngay wax. benn caay caay quoi benn caay caay dañ doon yàqam bu ma dugal. stage benn fan avant ñuy dem. <laughs> stage. mais Alioune Alioune Alioune Alioune am na loolu yëpp. bu dee mun nañoo jàpp loo xam na day concentré wu ci entraînement yeeg. ci ci avant avant avant kii. waa nga jàngal échauffement yi. ci booy joueur dañoo tam suñu tak tàkk suñu rek tàkk. jour da ngay célibataire tuuti. moo lay permettre nga mën a bàyyi sa yaram di def lu la neex mais si ñuy takk. mais Abba am na am na tey loo si am solo rek. si si si. takk bi daf solo. et c'est sa question ah, c'est sa question. mais. am na tey loo xam ne franchement buñ koy xa bu dee loolu ngeen di xaar loolu du loolu yow sax la ngay xaar loolu du mës sa ñëw parce que ñun tey bon dafa am na ñu yaree aussi. xam nga dafa am ñu ñu yaree man je pense que tey man personnellement. visage bu may wone ci terrain bi ak nu ma mel ci biti bokkul sànq kii jotoon na ko briefé ci euh, ci euh, ci début bi ñun dafa am na ñu yaree noo xam ne tey man boog avant même man je dirais plus que tey être professionnel c'est plus un état d'esprit qu'autre chose c'est-à-dire avant sax tey man may signer professionnel man maa ngi doon comporté wu déjà comme un professionnel donc tey lu jëm ci wàllu football man ma am tey ci football loo xam ne ah je touche du bois mais yaakaar naa ne munuma am ci football loo xam ne tey dina ma faire perdre la tête wala dara man bi may signé sama premier contrat en Norvège club de deuxième division ak tey ba tey fii mooy wax ak yow j'ai le même style de vie amul dara dara loo xam ne changé na si man mm. te incha allah noonu laa ko bëgg jàppe ba bàyyi football noonu laa ko bëgg a jàppee jusqu'à la fin de ma vie avoir une vie stable équilibrée et bien rangée Mhm. après gestion yi tamit bokkul y avait Metsu y euh, suñu xarit la woon Metsu il vous laissait il vous laissait daf leen doon bàyyi ngeen décontracté aussi bokk sax di boîte bi ñu ne voilà voilà voilà coach yi tamit bokkul quoi ah. ouais ouais du woon dara quoi voilà je pense je pense qu'on va finir maintenant ak ak projet yi parce que ñoom ñëpp ils ont des projets euh, ci social bi surtout ak ay projet école tu voulais euh, tu voulais question à Henri parce mhm. que foog naa yaa fi waxoon ne sa sa sa carrière jaraaf nga ko bëgg terminer. waaw dëgg la xam nga sànq euh, Pape Sam am bugguma si woon sax ñëw quoi. Mhm. daaw laa am problème jaune. Mhm. après ma ragal ñëwaat. jot naa waxtaan ak waa jaraaf yi tuuti mais après ma ne comme terrain yi baaxul bëggoon naa ñëw rek. même bu doon deux mois la sax mu joué jaraaf terminé. Euh, yaa ngi fàttaliku quartier général bu mu fi daaw bi daaw daaw géej si nañ ko waxoon mais après xam nga rek yàlla def ni ma gaañ si genou ok amatuma doole amatuma mhm. envie bi ko donc cinquième sélection bi sax moom out non kooku out na bu yàgg <laughs> kooku naa ko quoi non non non c'est bon euh, euh, Papa Lune yaa ngi ci yaa ngi ci ay projet yu bëri yoo xamante ni ñu ngi la ciy xaar ñi ngi parce que ay xale lañ tamit donc euh, dañuy essayer euh, am ñu ñu dénk suñu bopp ñoo xam ne dañuy encadrer ñoo xam ne dañuy teg si yoon dañuy wax souvent fan lañu fan la ñu war a jaar donc tey euh, je pense que y a pas mal de projets yoo xam ne tey ñu bëri ñu ngi koy commencer mettre en place fii si réew bi et c'est c'est des choses yoo xam ne ñun ñëpp tey dañ ko war a saluer on a vu récemment ñoom Sadio tout ça li ñu nekk di def mm. donc ñun ñoo ñun ñi ñëpp tam tey ci sillage boobu lañu war a nekk te ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey pour tey parce que le Dieu nous a donné le football nous a donné donc ñun tam tey en contrepartie suñu mënee retourner l'ascenseur comme on dit bon duñu duñu hésiter donc ñu ngi góorgóorlu di ñaan yàlla rek li ñu dëgmal nii yëpp yàlla suñu borom euh, teg ci loxo et puis mottali ko ak jàmm amiin yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla mottali Mbaye euh, yow tamit yaa ngi ci projet yi pour sa rakk yi pour euh, pour Sénégal aussi ah ci yu bëri yoo xamante ni mën na yokk développement bi comme disait Papis waaw ah, man moom amaguma benn projet quoi mhm. xanaa bientôt rek waaw ñu ngi liggéey pour mën a egsi si loolu. participer ci ci ci ci édifice bi quoi. inchallah voilà super. je pense qu'on va on va on va on va finir ñu jeexal ak Serigne Sohibou euh, moo ñuy teg euh, moo ñuy euh, si karal sànq ba tey mais profité ci rek fàttali leen ni tey itam am na ay les programme Laylatul Qadr yu bëri yu ñuy amal Laylatul Qadr bu Thierno Bachir Tall xalifam Omarien. Euh, euh, fu ñu naan Thiaré Peul si je ne me trompe euh, Serigne Djili mu ngi foofu ak équipe yu télévision Futur Média peut-être guddi na moo tax waaye xam naa dinañ leen ko dagal tegal leen ko demain ngeen mën ci bàyyi xel Kaolack itam actuellement taalibe yëpp ñu ngi ci laylatul xadri bi ñu ngi ci ndokkeel imam ak njabootam bokk na ci Fat Samb yaayu seex yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ca Kaolack ci guddi gu mag gi et puis laylatul xadr Thierno Ba Bachir euh, Tall wax naa ko léegi euh, suñu équipe yaa ngi foofu donc daañu ci ñëwaat euh, fileeg suba peut-être ça vous permettra ngeen xam dëkk bu ne naka la defee laylatul xadram on finit gërëm itam ñëpp même suñu mbokk laayeen yi itam. Euh, ñu ngi euh, amal euh, laylatul xadr donc partout au Sénégal tey ñu ngi laylatul xadr boo demee Tiwaawan même chose puisque ñu ngi toll ci dix dernier jours yi donc koor gi ci bis yi dafa am solo donc moo tax ëtt boo ci dem rek ñu ngi def laylatul xadr donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar on a beaucoup d'amis qui réagissent depuis que ñu commencé waxtaan bi ak suñu gaynde yi gise pen merci di nuyu tamit son son le grand photographe moom tam xaritu gaay tey la euh, depuis sànq mu ngi euh, réagir euh, Mbathio Ndiaye tamit kii fan moom tamit mu ngi réagir depuis sànq ñu ngi koy nuyu et puis Bakary Cissé journaliste ou rédacteur en chef bu record moom tamit ñu ngi koy gërëm Feuz nekk France moom tamit suñu rakk la elle est en train d'apprécier ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Henri quel sera le message pour sa rakk yi ci compétition bi ñu jëm waaw bon message bi mooy dañu gën a gëm seen bopp rek te ñu bu ñu fàtte nii Sénégal euh, dem nañu coupe du monde euh, coupe d'Afrique lu xaw ma ñaata yoon mais yàlla def nañu gañewuñu ko. Mm-hmm. te année bi yàlla euh, def nañu am nañu joueurs yu baax ak équipe bu baax. Mm-hmm. te di leen xamal ni buñ demee daal la ñu gën a joxe seen bopp. Mm-hmm. wane seen bopp euh, li leen sénégalais yi di xaare mhm. ñu def ko ko maanaam dem ba final. après mhm. bu leen yàlla mayee ñu jël coupe bi ñu andi ko ñun ñëpp ñu bokk ko. ñëw fii fete ko pourquoi pas. incha allah yàlla baax na en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite nous tous ah ñun ñëpp loolu leen di ñaanal euh, Papis euh, merci et puis euh, bon courage pour projet yi. merci merci à tout le monde aux téléspectateurs et merci à vous aussi. Mhm. la TFM donc. c'est juste dire bonne chance à, euh, aux frères, mm -hmm. aux, aux, aussi. Mhm. Donc, euh, yal na leen yàlla teg ci yoon jàmm. amin amin amin amin Mbaye Diagne tam ñu ngi lay gërëm bu baax et puis bonne chance aussi ci Coupe d'Afrique bi incha allah. merci merci di leen wax ni aussi merci ci mhm. invitation bi. Mhm. yàlla nañ fa yàlla yóbbu jàmm yàlla may ñu ñu jël coupe bi indi ko Sénégal. amiin feetoo ko ñun ensemble. maa ngi nuyu passage sama maman. yàlla yàlla guddal fanam. amiin amiin amiin ak suma sœur Anta Gueye li nga xam moo yor suma lépp. Mm-hmm. waaw di nu ñëpp ñu seetaan euh, émission bi. Mm-hmm. jaaraama merci en tout cas kontaan nañu Papa Lune merci e bonne chance aussi euh, ci euh, ci compétition bi ñu jëm. merci merci beaucoup si si invitation bi donc ñu ngi leen di encourager yéen itam vraiment plateau bi rafet na. guddee nañ mais kontaan nañ trop. <laughs> leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. amiin amiin yàlla defal ñun ndam incha allah. amiin incha allah loolu lañ leen di ñaanal en tout cas yéen ñëpp merci à tous. Euh, gàmmu Karang le 15 juin la loolu itam maa ngi koy fàttali waa Karang yi euh, fii min nañu Karang Karang euh, dañuy dem Karang mm, mm, Karang. Mhm. ma sama. sama sama gars yi ak sama sama famille. sama sama yaay. Uh-huh. di ko di ko remercier lu bëre. Uh-huh. waaw parce que lépp li moo men tey rek. Uh-huh. moom moo tax di remercier aussi sama sama sama boy Laay. Euh, Rian Alex. Euh, Ousin mooy gaañ bu ma bu ma solal. c'est très joli. <laughs> Dem la tudd Ous Dem. fayal ma solal la. waaw di remercier sama coach Guy olympique coach euh, Habib Diabon. Ouzin Paradise sama mair euh, maire Fary Fall jërëjëf. voilà amiin yàlla fay. amiin amiin jaajëf kontaan nañu. amiin dañu profité ci ah. leen ko nu ne. paa bi ak bi leen naan jërëjëf. Mhm. dañu wax ci soose ala baraka. Mhm. donc ala euh, duwal jabita like euh, pakaawo. all cas sa Casamance beetu Sénégal mhm. ñëpp laay remercier mhm. et di remercier samay baay faal nekk ci ginnaaw mhm. mooy euh, ajoudash et euh, mooy kooku daal mooy samay laaf quoi mooy sa lépp waaw kooku daal mooy asu waaw mooy loolu daal waaw yaa suuti yaa Diop Darou et Baba Anne aussi di leen wax merci parce que ils pour nous moom mooy yónnee message di ma di ma créel doomu tudd photographe tudd naa Baye Baye Diaf photographe sama sama photographe Baye Niass daf la daf la bëgg il nous a tellement fatigué ce jour anniversaire ñun dañu ko mujj bloqué parce que saa yu ñëwee Henri Camara Henri Camara Henri Camara Henri yow yaa tax ñun ñu bloqué ko ci suñu portable yi oh, donc oh, mënatuñoo jot ndax yow quoi c'est quelqu'un qui t'admire euh, donc Baye Niass euh, photographe record euh, ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu merci Marie-Louise Ndiaye merci à toi Pape mhm. maa ngi lay remercier di remercier suñu invité yi Euh, Pape Cheikh maa ngi félicité aussi waa Sénégal na set. Mm. ci initiative bu rafet bi nga xamante ne suba moom la ñuy def. ndogu de la nation voilà. Ah. suba à place de l'obélisque benn ndogu boo xamante ne tous les démunis dañ leen di invité foofu pour ñu ñëw partager ak nit ñi ndogu les handicapés ñi amul ndogu ñi amul euh, moyen donc demain place de l'obélisque am na foofu ndogu de la nation sociale la ay nit ñoo xam dañu jóg rek pour pour voilà dimbale nit ñi. maa ngi remercier nag Ndoye Ndiaye aussi ba fashion. moom euh, solal il est joignable au 77 420 24 41 pour la tête c'est Sokhou Bébé sama taaw 77 602 76 82 et pour les accessoires Mina 77 811 16 39. Voilà. voilà donc merci beaucoup euh, Cheikh euh, ma leen di remercier ñëpp euh, ñu war a dem ci kan bi ñuy ñaan rek yàlla taxaw leen ah ni ngeen ko bëggee yàlla na leen si yàlla jàppale noonu et dire que on est tous derrière vous saa yu ñu yoree bal bi rek xam leen ne tout le peuple sénégalais est derrière vous et on est derrière Aliou Cissé aussi mm. voilà donc euh, merci beaucoup à vous Baye ki ma solol ki yow a shop encore 77 573 03 30. c'est ma sœur. Ah. donc dama koy remercier ndaxte tout au long du quartier général moo ma solo. macha allah même si yenn say sànni nga ma xeex. voilà je la remercie beaucoup merci mami. sañse bi rafet na tey nag Mado dafa yaru depuis sànq waxul dara mu ngi toog rek noppi donc exceptionnellement moom mooy tëj jàng yi tey mooy tëj émission bi tàggatoo def yëpp voilà ñun bàyyi ñu def suñu tour de table rek après yow nga tëj émission bi merci euh, Bijou. merci à toi Pape Cheikh c'était un plaisir ñëwaat encore ci quartier général.

73 23 jaxase naa numéro mais dinaa leen ko jox ci réseaux sociaux yi pour les bijoux c'est Mastouré donc euh, mi ngi marché Tilène 77 616 53 80 pour la perruque euh, Ndéla moom numéro mi ngi nekk le. 77 349 27 73 make-up glam style by Mado di remercier bu baax par cher sama sponsor en jou ci biir quartier général bi muy baaba bu dee da ngeen bëgg jus ci korité bi mun ngeen ko woo 78 327 91 11 sunu doom la dadi bàyyi rek ñu defar ko bi mu jàll merci beaucoup et puis à demain incha allah. incha allah Modou. Khoule. waaw ah, kay jaajëf maa ngi lay kontaanee bu baax di di ah, di bëgg ci ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi ak les téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi woon seen kër dañu seetaan di wax Henri. encore une fois jaajëf euh, le frère merci beaucoup parce que bi may nekk xale yëpp di football Henri la ñu daan woowee eh, waaw sama waaw euh, j'ai failli être waaw euh, mais comme yàlla moo dogalul loolu donc moom sama enfance yëpp Henri la ñu doon woowee dama mënoon daw et puis lu ma yoroon rek dama koy dugal donc waaw maa ngi ah tamit yooyu yëpp ci histoire bi la donc gars yi maa ngi leen sant bu baax ah di leen gërëm Mbaye ñoo moom tamit mais kii moom pas moom am na lu ñu waxtaan fii nee naa ko yéen mënu leen nekk ay jeunes ñun ñu nekk ay jeunes yéen ngeen di fayeeku li ngeen di fayeeku fayeku li ñuy fayeku te du ngeen jël ak waxkat di ñu ko jox ñun ñi nga xam ne ñooy ni waxal donc ngeen bàyyi ci xel ba pare di leen invité ci le 5 juillet euh, da ngeen dem ci spectacle riir fu nekk ci àdduna ah, da ngeen dem fu nekk donc am na ci seen dëkk ngeen ñëw le cinq juillet foofu au Grand Théâtre donc ngeen mën ci jàpp seen ñëwaat ak ngeen ñëw ñëw waaw ñu ngi leen xaar daal donc euh, di kontaan ci bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo solal daal yi global choose eh, boo demee ci samay eh, réseaux sociaux di ko fekk yére bi bay Turquie eh, yëpp rek made in Sénégal may kontaan ci ñëpp bay jaajëf. jaajëf Aba merci euh, Awa Gaye Thank you, Pav Share. Uh, jërëjëf, uh, di leen uh, remercier bu baax. Thank you guys for sharing the platform. Tamit di jaajëfal bu baax ki nga xam ne mooy borom Lifa Couture di Khalifa Mbergane si um, yëre bi mu ngeen ko call si 77 442 29 16 moment de exception moom tamit she did my um, pedicure and rest mun ngeen dem foofu noonu mu defar seeni loxo and everything mun ngeen ko call si 77 660 699 29 29 Glam Style by Mado for the hairstyle euh, mun ngeen ko call si 77 522 39 78 Baye Cheikh mhm. euh, di la jaajëfal bu baax a baax it was a pleasure to be part of Quartier Général euh, di nuyu waale sama yaay ak sama papa di nuyu waale samay waa kër ñëpp ak képp koo xam ne yaa Twitter wala foo mënti nekk si àddina bi duñu seetaan di uh, encouragement love prayers yëpp uh, yal na yàlla nangu uh, nangu ñaani yëpp kon ba um, ba quartier général année prochaine incha allah kon boog that was it thank you <laughs> journal what Sophie merci. merci beaucoup à toi Baye Cheikh maa ngi jaajëfal ñi nekkoon ci plateau bi yëpp Baye Cheikh euh, di remercier maman Anna euh, ñoom Mbayang Ndey Ami ak euh, maman Soxna yaayu Mamor remercier tamit baaba mi nga xam ni moom ma jox tenue bu rafet bi leen jox rendez-vous demain incha allah ci beneen ci beneen recette Baye Cheikh jaajëfal aussi samay partenaire bu baax a baax. jaajëf Sophie Mamadou Ndiaye yow it ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm Pape Cheikh di gërëm téléspectateur di gërëm suñu invité yi di wax ni comme ni ñu koy waxee rek bu sport sport bi taxaw surtout football dañuy dem ak passion ñuy jéggalu bu fekkee dafa am leen lu ci dëng di souhaiter gars bonne chance di wax ak gars kontaan nañ ci yéen surtout vraiment di saluer prestation wu Papis ñoom ñëpp ah mais Papis li mu wax ni retour bi ngay def ak yooyu noonu yëpp dañ ko doon suivre vraiment cette saison bi nekkoon saison bu compliquée en tout cas di la encourager 15 bi c'est pas saison bi di la gën encourager Mbaye euh, Pan ñoom on est la même génération <laughs> étudiant très dynamique moom tamit euh, Diatta Sall euh, numéro téléphone 77 732 17 29. voilà Merci. donc c' est ça euh, sëñ u ñu ngi lay gërëm bu baax profito ci wax rek sànq bi ñuy commencé ñu ngi annoncé ay xale yu réer au moment où ñu koy jeexal ñu ngi ñuy xamal ni mujj na feeñ donc alhamdulilah lii la ñu tàmbalee woon parce que depuis ay jour ay famille am gisuñu ko donc tey bi ñu ko waxee ci début quartier général bi xale bi mujj na feeñ donc ñu ngi sant yàlla et puis ñu feeñ demain itam incha allah ñoom la ñuy tàmbalee euh, bu ko defee ñu euh, man ko wane ba képp ku leen gis rek euh, mën ñoo contacter wala contacter seen ay famille donc yàlla na ñi ci des feeñ Mado yaay tëj balaa ngay tëj ñu bàyyi sëriñ son yi bu mu wax ñu tuuti rek ci ay kàddu moom it boo tàggoowee mu doog tëj ak sikar si donc sëriñ son yi bu Mbaye yaa ngi jëm ci ndéwénal sant sëriñ fàllu Mbacké Euh, lendemain euh, Korité euh, ñu koy amalee ca Médina Gounass en face station Touré à partir de 9h di programme bu mag boo xamante ni ñu ngi ciy woo ñëpp. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ Pape nun nun tàggatu yonent bi noo ngi leen di nuyu yéen waa plateau bi. di leen jox seen wàccuwaay ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. noo ngi leen di nuyu te di leen jox cër bi leen yàlla jox. Mm-hmm. yow itam. moo ngi lay jox sa wàccuwaay ngir yar teggin bi ngay séq ak nun mm-hmm. te yàlla tax bis boobu sant Serigne Fallou la Serigne Boubacar noo ngi lay ziar ngir yëg gi nga yëg Seydina Muhammad mm-hmm. noo ngi la ciy bëgg ak wàccuwaay yu ñu jox noo ngi la ciy delloo cër bu baax a baax Baye Cheikh bis boobu sant sëriñ Fallou la ren mooy juróom-ñeenti at mm-hmm. ci ndigalu Cheikh Modou Lamine Bara at mu jot ba fi mu ne soxna maam Awa Mbakke caatum Serigne Fallou. Mhm. moo koy teewee. macha allah ñu ciy doxee ci ndigalam. waaw ah. soxna maam Awa nag Serigne Fallou ni woon dee leen ko ñaanloo. Mhm. ndax am ne ku la fa mujj gën la faa xam lu fa ne. Mhm. mooy caatum sëñ Fallou. wallaahi mi ngi ñu ngi jotal ab nuyoom ci yow. barki démb rek ñoo ñoo nekk kër Ngone Ndiaye. waaw bis boobu nag. dafa doon bis boo xam ni. noonu daf noo ñor. ndax bis bu ne la ñuy sant sëñ Touba. Mhm. waaye bis boobu la ñu sëñ Fallou carale cërale macha allah muy bu nu korité ba ca suba ga lendemain korité lendemain korité ñu waree ba ca ëllëg sa incha allah li ko waral itam mhm. mooy fan koy defee mhm. dafa am leneen lu fa daan xew ca gunaas ca eh, bu nu wooree ba noppi am na leneen lu gën la fa daan may xeex loolu ba yàlla dimbali ma ci. ba bis boobu ña daan def loolu. Uh-huh. fi mu ne ñoo may soññ ci bis boobu mooy mbootaay ga fa nekk. macha allah macha allah muy sant Cheikh Madal Fadel Mbacke. Uh-huh. sëñ Fallou nag daf ni woon man maay Sénégal. Ah. ñu ne lu tax mu ne Alaaji malik mooy sama jaay sëñ Tuubaa mooy sama baay. kon man maay Sénégal. moom bis boobu ma ci woo kulli jullit yëpp nag. Uh-huh. ñu ñëw sant la ma sëñ Fallou. incha allah maa ngi ñaan ku ca teew. yàlla nga da daje ngërëmal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, bis boobu dafa maa ñorul di la ci invité nag ndax xam naa sa digganteeg sañ Fallu waaye dama bëgg nga jaayanteeg sëñ Fallu ñëw jaayante ci ndax xam naa ni am na fu la sëñ Fallu toll sama copain la waaw sa copain la lool euh, di ziar nag kull koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci barab bi di ziar di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha. yàlla na fi yàgg te wér. ak njabootu Sëñ Tuubaa gi nga xam ne. fii ma toog sànq ba léegi maa ngi xool seen i message wallaahi ma seq ak ñoom Sëñ Tuubaa ñu am sër bi ma jox ngir Sëñ Tuubaa. maa ngi leen jox seen wàccuwaay képp ku sant Mbàkke rek. macha allah di leen ñaanal sa borom defal kon ñu ngoog balaa ngay tëj ak uh, sikar si uh, ñu dig leen daje ca kanam tombé ak 22h uh, jot en direct lay doon ci quartier général ci télévision Futur Média Madeleine aw la <laughs> waaw remercier invité yi ñu bokkaloon plateau bi ñaanalaat euh, Sénégal ndax seen ndam suñu ndam la incha allah mm-hmm. amaat mbégte partagé waat plateau bi ak ki nga xamante ne moom moo di Henri Camara boobu dañ doon fëgg sax ay dëkkandoo pour seetaani télé bu gañee woon ñu jóge Baobab daw tàkku leen ba këram kon loolu sant la toujours am fierté di ziarale bu baax soxnaam et ses enfants ndax ñoom itam ñu baax nañ et puis remercier Thiat Couture nga xamante ne moom moo ma habillé 77 426 97 17 02 mi ngi nekkee marché HLM Baye Cheikh. alors suba Mimi Touré mooy nekk invité quartier général ah. Mimi euh, Touré incha allah. d' mm-hmm, kon boog mm-hmm. na ci mbokk téléspectateurs yi toogaat seetaan rek euh, waxtaan ak ki nga xamante moom moo di Mimi Touré di la baalu àq rek sànq yaa ngi doon wax néew bi nga xamante ne dañ ko wane woon mu décédé. donc euh, mu bokk ak ay nit yoo xamante ne kiy liggéey ak man mu di frère ah. mais ñi ngi doon demander à ce que ñu dimbali leen parce que ça fait un mois c' est bi. Mm-hmm. en charge. Mm-hmm. léegi ñu ngi ñaanaat rek bu fekkee mën nañ leen dimbali encore ñu mën a indi néew bi. parce que ñu rapproché wu ci consulat wu Sénégal bi nekk Casablanca. waaw parce que moom moo leen dimbali sànq wax nañ ko gërëm nañ mm-hmm. leen bu baax. parce que mm-hmm. boobu ba léegi ñoom ñoo ko yore woon. donc loolu laa doon wax bu ñu leen mënee dimbali. macha allah itam euh, pour ñu indiwaat ko incha allah. mu ngoog ayca sëñ Souhaïbou ni moom Sëñ Fallu nag. waaw ñaan naa ku ne ci plateau bi boo ci awoo yàlla nga am jàmmi àdduna ak alaaxira. amiin te ci aw yàlla boo paralysé. ayca Sëriñ Fallilu loo nelaw nelaw Sëñ Fallu yeela xiir la ci loo gëlëm gëlëm moo la waar la. loo nelaw nelaw Sëñ yeela. ana soppey Sëñ Fallu Mbàkke loo gëlëm gëlëm moo la. sëñ Fallou yeela xil loo gërëm gërëm wala wala wala wala ana soppey Cheikh Fallou Mbacké loo gërëm gërëm sëriñ Fallilu loo nelaw nelaw sëñ Fallou yeela loo gërëm gërëm